مستعملا به ثواب لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم yaa rabbi yaj'al al-muridiina maa fi xisnika al-xasini wash-shamli ajmaa. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlaana rasulillah wa alihi wa saxbihi wa asna xadimihi wa man wala mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di. nuyu bokki alxadimiya di leen sant bu baax di leen ndokkeel ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu koy taxaw ci diine ji ci yoon wi jamono ju nekk euh, rawatina ci weeru koor wi ñu génn ak it lu mel ne bis bi ñu dëgmal muy juróomeelu fan ci weeru shawaal nga xam ne day fàttali ab euh, dat bu am solo ci yoonu murit ndax xam nañ ne Serigne Touba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa ardaahu wa nafaana bi ca Mauritanie ci atum ak Chachine muy vingt et nekk ci biir atum mille neuf xaj na wala ci cat la ci la jote woon al wirdu maxuus min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa jële ko ci boroomam bisub juróomeelu fan yooyu ci weeru shawal muy weeru kori ci la ko njëkk a génne joxe ko ki mu ko njëkkoon a jox mu Cheikh Ahmadou ibnu Hasan ci la ko joxoon ba moom Cheikh Ahmadou ibnu Hasan mu taarixaloon ko ci xasiida gum taalifoon ci wérdu wi gannaaw bi it mu tuddaat ko ci mbi euh, téere bi nga xam ne taalif na ko ci wérdu Maxuus muy dalilu man rama dalil kon dat la boo ama am solo boo xam ne saa yu dikkee ñi ko xam ñëpp daañ ko fàttaliku ndax jëmmal na lu rëy rëy rëy rëy rëy ci yoon wi doon loo xam ne itam li muy jëmmal lu rëy ci Sëñ Tuubaa lu rëy la lool ci Sëñ Tuubaa loo xam ne bari na fu ko junj ci ay mbindam bari na fu ko wax sax wax ju leer ci ay mbindam ci xéewal goog ko suñ boroom jox muy wirdu boppam muy loo xam ne naka jekk daan nañ ko wax ne euh, xaj na ñàkk koo xam moo tax léeg-léeg ñu di ko xaw a ñu bañ ko ñu ñu jo yëgewuñ ko daal léeg-léeg niñ ko war a yëgee ndax buñ xamee li muy firi loolu lu rëy la loo xam ne lu màgg a màgg màgg la loo xam ne lu ni màggee yombut yombut a dégg yombut a gis ndax sëriñ bi radiallahu anhu daa feeñ ci njaboot gu cosaanu ci diine ak xam-xam muy askanu mbàkkeek bu soobe ak aafe gi ko meññi sun boroom dogal muy ku teel a bëgg lu baax teel koo xeñtu mu yitteem mu def ci yitteem ci wet yépp ba ci njëlbeenam waaye juróom sëñ Mor Anta Sali anhu moo ko njëkk jox al wirdul xaadir yi wi nga xam ne moom lañ jële woon ci waa kër Cheikh Sidi El Kabir ñu jële ko ci waa kër Cheikh Sidi Moxtaar Kunti seenu càll la wooye wooye ba ci Cheikh Abdou Xaadir Jilaan radiyallahu anhu sëriñ bi yor wirdu woowa jëfandikoo ko at yu bari sonn ca coono bu rëy bu ne dem ci fu ne di ca wut ay secret ki mbóot ak lu ko cay dolli am ca yaakaar jam ca am dox ca diir bu yàgg ba dox ca ay jéego yu sori ba am ca ay maqama yu kawe yoo xam ne yombutoon ñu gis ku ko am ci jamonoom surtout ndax dem na ba yegg ci ca mujjam gis na Cheikh Abdou Khadr Jilani jaxaran mu joxal ko boppam werdu wi loolu lu rëy loo xam ne yombutu dégg waaye ànd ak loolu lépp ci bëggam lu baax ak xemmeem lu baax ak di ko ci lu ne demoon na ba yegg ci dajale yeneen i xeeti wérdu sax yu bokkut ak woowu dolli ko ca muy alwérdu chadali ak alwérdu tijaan yi doon den jëfandikoo ci jenn jamono loolu sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nett na ko ci annub al Ighnaul Adim ki ko wax sëñ beeg ko waxal ba fam direct wax ne ci njëlbeenam bu masaana toog waxtu wérdu day jëfandikoo ñetti wérdu yëpp doog a jóg dellu ci itteem euh, ci diggante boobu itam bi mu demee ba nga xam ne waxal na boppam wax jooju nga xam ne sëñ Basiiru nettali na ko te sëñ Tuubaa jëmam bindal ko boppam te yax ba ci sëriñ bi benn sëñ Mouhamadou Lamine daga na indi na ko ci Irwaa na diim indiwaat na ko itam ci Ignaawul Adim boobu may wax sëñ Basiiru itam li na ko ci Minaanul Baaxil Xadim loolu muy wax sëñ Tuubaa ju wér joo xam moo ko bind waxal ko boppam wax ne bi mu demee ba nga xam ne nag dem na ba lam ca doon amu ko ca di yokke yitteem aj yitteem ci ak ajoom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg malal ko boppam di ko tërbiyaal boppam ba mu wax ca lam ca wax lépp wax ne loola moo waral sax amatut benn sëriñ bu mu ajooti ci kaw suuf ci noonu ma ko waxee ci beneen leetar boo xam ne sëñ Basiiru nettal na ko ci Minanul Baaxil Xadiim mu doon wax ak kenn ci waa seex Cheikh Sidiya ci ab xissa bu xam xañ na jëru dugg day guddal Euh, sëriñ bi bi tontul ko ba fa ab naaru Mauritanie bu ko doon laaj te sëñ ma Lamin Jóob Dagana teewe ko ne ba mu koo laajee lu tax nga ma gis nga mel da ngay tudd ak Cheikh da ngay war ne ñooy see sëriñ mu ne ko loola day du woon lenn lu may boobu damaa mel ne silmaxa suy palamtu aw yoon comme dégg am ci yow yaakaar jox la loxoom waaye ba mu demee ba xam ne nag lam bëggoon lépp mënu koo amee foofa ba suñ borom dogal njàccaarul mag li mu yonent bi alayhi salaam dégg malal ma boppam di ma tërbiyaal boppam di ma tarqiyaal boppam ci la ñooñu ñëpp nag ci la tàggoog ñoom maanaam tàggoog ñoom waxin la mooy tàggoog ajootuma ci ñoom ajug doon ay sëriñ ki taalibe waaye léegi yonent bi alayhi salaam mooy sama sëriñ te leeral ko ca leetar ba wax ne nag ginnaaw tey araam na mooy ajooti ci kaw suuf ci kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk lu ko jiitu itam mu doon ko ñaan boroomam mu jox ko yëfi boppam bi mu demee ci géej gi sëriñ bi bindal boppam nettali ne Seydina Jibril dikkal na ko ci géej gi jël ci moom ndigal yi mu yoroon yépp ba mu jëlee ndigal ya nee na dellu si waatal ko ko jaare ko ci yonent bi salaam lu jiitu loolu dikkaat na ci moom dikkaat goo xam ne daa jaar ci loxo yi sëriñ sax xale ñoo ko yoroon di jiitu mooy Cheikh Abdou Khadir Jelaani ci wërdu Tija Xadri Cheikh Abul Hasan Chadri ci wërdu Chadri Cheikh Ahmad Tidiane ci wërdu gannaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam kaatal ko boppam joxal ko ko boppam ñetti wërdu yooyu yëpp ndax yooyu itam lu ma taxam la ñu xam ne wér yi tariqa yi ak tariqa bu mu mën a doon ci tariqa yi wér yëpp. wird yi dañ koy tudde seen i borom ngir rek jaar gam jaar ci seen loxo waaye seeni i borom ña ñuy tudde seeni borom borom moomuñ ko ci dëgg-dëgg wird yi yonente bi alayhi salatu moo ko moom yonente bi alayhi salatu wasalaam nag gannaaw moo ko moom sa alal sañ nga caa soppandiku nu mu la soobe moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam joxoon wird sàngam jëmm sàngam jamono sàngam amul lenn luy tere ne mënul koo dem ba jamono sàngam mu joxaat ko keneen te mat naa xam ne it wird yi itam du lu matériel loo xam ne day mel ne micro bi nga xam ne bu ma ko moomoon may la ko amatuma ko neen micro nag mën naa ko waaye bii moom amatuma ko faw bu ma ko bëggee jëlaat may ko keneen dama koy nangu boog doo ko man may keneen wala mu wut beneen may keneen waaye jëm micro bi moom benn la wérdi yi demee wut noonu wérdi yi moom du lu matériel loo xam ne boo ko joxee mënatoo ko joxewaat boo ko doon misaal da nga naan mi ngi mel ne xam-xam. yow mi jàng ba am xam-xam boo dajale ci sa bopp yàlla may la ko xéewaleel la ko xam-xam bi ngay jël di ko waat di ko jàngalaat ay nit doonu ne saa yoo ko joxee nit ba mu xam ko da nga koy ñàkk waaye ni nga koy joxee nit mu xam ko noonu nga koy joxewaat ñeneen joxaat ko yeneen génération muy wéy te du tax nga ñàkk ko mën naa am sax la nga amoon da day dolli ko kon moo tax euh, ñi am déggin woowu jàpp ne mel ne daal bu ko xasee jox kenn day mel ne ko jox keneen loolu amul leen lu ko tegtal amul leen lu ko firndeel tey it nag loolu lu yàgg la am la ci ñoom nit yàlla ci seen biir xaj na li ma ci seetlu mooy jagle gi sëñ bi moom laa mus a xam li ma ci seetlu mooy boo demee ci jawahirul maani Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ci nattalib Seydina Ali Harazim Barada nattal na ca ne alxisbu sayfi dañ xam ne lu yàgg la loo xam ne jiitu na bu yàgg sayfi ca yëfi Sëñ Abdul Xaadir Jilaani lu yàgg la wax ne yonente bi aleyhi salaatu wa moo ko joxaatal boppam te loolu ku na xam ne lu jiir si amati jaan ay siècle yu bari la waaye loolu kenn amul sañ-sañu weddi ko ndax yonente bi aleyhi salaatu wa lépp ci xam la nekk waaye noonu nga xamee ne kenn amul sañ-sañu ko weddi ko itam noonu la ñuy xamee ne it kenn wurta mën a am sañ-sañu bu weddi bu sëñ Tuubaa ne yonente bi aleyhi salaatu moo ko joxaat wérdu qaadir yi ak wérdu tijaan yi ak wérdu chaadil yi kenn mënta am sañ-sañu weddi ko lu may koo xam ne ak weddeem da koo teg ci bakkanam rek wala leneen waaye ci xam-xam moom mënoo am firnde ju ko mën a weddi euh, sëriñ bi laata mu ciy jot mu doon ko ñaan boroomam di ko wax di ko di ko junj bi mu demee ba mu jege mu di ko junj di ko wax ay nit di ko junj ci ay wax ba suñ borom dogal ci mujj koor googu ci atum ak chachin moomu mu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam jahran te fekk gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jahran lu ko jiitu lu kenn xamul nu mu toll lu kenn xamul nu mu toll te taxagutoon mu jox ko ko waaye mu dikkal ko ci anam googu jox ko wirdu boppam boo xam ne moom wirdoo ma ndax ci liñ xam ci histoire tasawuf masaayix yi fi ma sa jaar yëpp yor ay tariqa benn tariqa boo ci mën a dem gis ko mu bokk bii muy benn amut kon wirda ma te loolu gëstu nañ ci ay gëstu yu ñu may ñu war caa mën a wax dara waaye ku ñu sut fuuf ci xam-xam ci yàlla ci lépp muy Cheikh Mamadou Lim Diop Dagana wax na ko ci raw na dim wax ne ne kenn mësu koo yor lu ko jiitu ab wér la woo xam ne kenn mësu koo yor lu jiitu benn sëriñ mësu koo yor lu ko jiitu kon wér boppam la te sëñ Basiiru it boo demee ca Minanul Baaxil Xadim junj na ca luy tegtale loolu sëñ Basiiru sax daf caa dem ba wane ne jotug wér du maaxuus ci la sëriñ bi amee tariixa boppam bu beru sëñ Basiiru la la wax maanaam sëriñ bi ba bi muy jot wérdu bi amagut tariixa boppam bu beru amagu ko waaye lu ko jiitu dafa nekkoon ci tariixa Xaadiriya ba ni demee lu jiitu muy dem ci géej gi la ci la ci la ci la ci la ci la tàqalikoo ak tarixa ba lu jiitu muy dem ci géej gi lu toll ci ñaari at euh, akus lëf bi mu demee ci géej gi diggante boobu ba tey tarixa bi doona doonagut tarixa bu bu beru donte ne mi ngi jële ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wërd ya ko jiitu woon waaye la yoo xam ne daa am ñu ko yoroon lu jiitu sëñ Basiiru noonu la leerale wane ne maanaam wërd wii nga xam ne ci la yëf amee nag beruk boppam ndax dafa doon wirdu woo xam ne dafa am euh, càllala gu jóge ci Yonent bi alayhi salaam direct muy sëriñ bi ba noppi itam am loo xam ne dafa am euh, tartiibu boppam tartiib xaas nga xam ne dëgg la la ca nekk ci ay sikkar ci tur yàlla ya ca nekk ñu koy sikkar boo demee ci yeneen wirdu yi mën ko caa fekk da nga ko ci fekk sax wala da ci fekk yenn ci yooye waaye la ko wutale mooy lim yi ak toftale gi loolu mooy leen di wutale ndax tariixa yi loolu bokk na ci leen di wutale Euh, muy lim yi ak toftale gi loolu nag sëñ Bachir wax na ci la sëriñ bi amee euh, tarixa boppam boo xam ne bu beru la bu beru la kon loolu lu rëy rëy la rawat na bu ñu xamee tarixa li mu jëmmal ci ci ngirum yoonu yàlla ndax euh, ci wàllu yoonu yàlla moom mboolem li niru xeetu ay ay ay organisation ki ak euh, lu ni mel euh, diine moo ci féete kaw diine bu diine weesoo la ca féetewaat kaw mooy tariqa tariqa moo ci féete kaw tariqa moo féete kaw sax madahib yi ñu xam ci ay madahib fiqhiya kalaami yanang yooyu tariqa moo ko féete kaw ci wàllug spiritualité ak la ca nekk ci mbóot moo ko féete kaw foofu lu kawee kawee kawe loo xam ne ay benn nat la ko suñ borom jox ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam yëpp ak liñ yaatu yaatu yaatu kon loolu lu rëy la ñu gis ne itam ci askan wi mu bokk ak gox bi mu bokk muy ci Afrique sowu jant xamuñ ci liñ xamagun kenn ci histoire ko xam ne xam nañ ne kii kat mas naa am tariqa suufiya lu jur Cheikhul Xadim boo demee ci Minanul Baaxil Xadim sëñ Basiru bi mi leeral leeral yooyu ma doon junj léegi wax na ci ba wax ne ku mel ne Cheikh Sidi Muxtaar Kunti radiyallahu anhu nga xam ne kilifa la gu mag mag a mag a mag a mag donc ko Sëriñ Tuubaa fonkoon te naw ko di ko tudd ay di ko tuddee tur yu kawe ci ko Jinaan ak ci yenn ci mbindam sëñ Basiir wax ne Cheikh Sidi Muxtaar ak fi mu yeggoon fépp ba yegg ci doon jëlee ci Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sax waaye taxutoon nag mu am euh, limi boppam ak toftalik boppam loolu moo waral Cheikh Sidi Muxtaar ba tey kàngam la ca kàngami ak tariqa al qadiriya waaye doonul ku yor tariqa boppam boo xam ne bu beru la bu ñuy wax tariqa al kuntiya loolu euh, majaas la waaye doonul xaqiqa boo xam ne day mel ne day tariqa mustaqil la déedéet ndax loolu it mën naa xam ndax tariqa dafa am ñaar daa am tariqa boo xam ne dañ koy woowee tariqa mu nekk tariqa mustaqil la bu beru boo xam ne bu beru la jóge ci yonent bi aleyhi directement am tariqa yu ñu tudde tariqa te fekk ci dëgg-dëgg duñ tariqa dëgg-dëgg waaye maanaam duñ duñ duñ ab buut wala nga ne duñ ab dàttub garab waaye ab ab bànqaas lañ waaw misaal tariq xaadiriya boo ko waxee mooy cosaan loole jóge ci Cheikh Abdou Khadre Jilani waaye diirub siècle yi mu jaar dafa am ay banqaas yu bare bare bare bare bare bare am na al alkuntiya ñu cosaanale ko Cheikh Sidi Moussa Kunti moom ak imaamam am na alfadiliya ñu cosaanale ko askanale ko Cheikh Mouhamed Fadilul Dumamin am na alboutshichiya ca côté Maroc ak euh, réew yu wet yooyu am na yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare bare bare la yu yaatu niki noonu tariqa chadiliya itam noonu la mel cosaan li moom mooy cosaan li waaye nag am na ay bànqaas yu bari yoo xam ne dangay dégg ñu naan la euh, al tariqa al al al euh, côté Maroc te darqawiya chad bànqaas la ci chadiliya dégg ñu naan la belqaidiya wala ñu naan hibriya wala ñu ne euh, rajabiya wala yu mel noonu yëpp te teewul benn cosaan li benn la muy chadiliya waaye ay banqaas la wala lu mel ne tariqa tijaaniya misaal Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu ci moom la yàlla feeñal tariqa bi mooy boroom tariqa bi waaye euh, sun boroom ci barkeem ak yaatalam feeñal na ci loxol Cheikh Ibrahima ñas radiallahu anhu miy dëkk ci réew mi di sénégalais euh, alfayda tijaaniya muy lu am solo lu rëy rëy waaye taxul mu firi ne day mel na lu beru ci biir tarixa wala mel na day doon tarixa bu bees bu beru déedéet waaye cosaanul tarixa bi dëgg mooy ab tarixa ya kon euh, loolu rek laa bëgg a leeral noonu bu doon ci ñun ñi ci nii ñuy waxe mu ngi mel ne nga ne woon rek waa taalibey maam Thierno Birahim taalibey maam Cheikh Anta taalibey Cheikh Ibrahima Fall taalibey Cheikh Issa loolu ay bànqaas lañ waaye benn kenn gu mag gi moom benn la muy yoonu murit muy Sëñ Tuubaa ñëpp ci moom lañ aju euh, kër gu ci nekk nag mën nañoo am seen yenn ndolle ni bopp yu ñu dolli di ko def waaye bànqaas mag bi nga xam ne moo cosaan li ñu bokk moom ñëpp koy bokk ñëpp bokk nuñ koy jëfandikoo kon loolu rek laa ci bëggoon a leeral euh, loolu lépp nag yàlla dogal na ne ci jamono jooju la ko sëriñ bi génne joxe ko muy ci datub juróomeelu fan ci weeru sawaal woowu sun boroom defit euh, mu doon loo xam ne ren ji itam bu ma juumut day day dëppook dat ba ndax dafa mel ne ren itam ajjuma mooy nekk juróomeelu fan ci weeru kori day mel ne te cheikh si cheikh ahmadu bnu ahmad cheikh ahmadu ahmadu ca waayam wayit ba mu cay tudd dafa waxoon ne juróomeelu fan ci weeru shawal la woon doonoon bisub ajjuma loolu la waxoon Ah, daane num euh, nu mu ko waxeeti euh, abrazahu ama shahidna karama xaamisa shawalin xafifan salima euh, wax ne wax ba tudd na yowmul aruba yowmul aruba mooy bisub ajjuma loolu la ko lañ ko daan wooye ci tuuri cosaan yegg ya kon ci bisub ajjuma ci la ko sëriñ bi feeñaloon joxe ko mu dëppoon ak juróomeelu fan ci weeru kori mel na itam ren yàlla dafa dogal mu dëppoowaat ak juróomeelu fan ci weeru koor wi ñu nekk itam ren euh, euh, jëmmi nag werd dañu xam ne mu ngi dugg ci buntub li ñu tuddee tudd yàlla tudd yàlla nag dafa yaatu tudd yàlla moom dafa yaatu lool te doon lu kawe euh, buñ demee ci alxuraanu karim suñu borom ay aay yu bare bare bare bari yoo xam ne day day day digal jullit ñi ñu di ko tudd moom yàlla am foo xam ne day wax sax naan dee leen ma tudd ma di leen tudd wala nga ne dee leen ma fàttaliku ma di leen fàttaliku ndax it jëmmi tudd yàlla na nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg li muy firi mooy fàttaliku yàlla loolu lay firi maanaam tudd yàlla dëgg li muy firi du tudd yàlla waaye fàttaliku yàlla loolu lay firi maanaam bu ma yoree sama kurus wala ma yoree sama jukki alxuraan wala sama dolub xasida wala ma di ko def sama làmmiñ noonu rek di tudd yàlla dëgg-dëgg tudd gi li muy firi mooy may fàttaliku suñu borom di ko teewlu loolu lay firi daa tolloog nag fàttaliku ga moom ca anam ga gën a kawe ab dox lay doon bu nit di jéego di ci góorgóorlu ba yegg ca waaye du doon loo xam day jóg rek tëb daa di cay dem waaye day tàmmal làmmiñam mu takkoog turu yàlla ba dem ba mujj làmmiñu it tàggatu ca loolu ba làggi ca ba dootu diis ci moom da koy yomb day jàppandi ci moom mu boole kook di tàggat xelam ak xolam ci di ko teewlu bu koy def loolu ci njëlbeen giitam day diis day metti moo tax nga gis ñu bari ñu la ko jàmbat man de maa ngi wirdu maa xuus wala maa ngi wirdu sàngam wala damay jàngal xuraan waaye daal teewlu daf maa jafe teewlu moom yombut waaye lu ñuy góorgóorlu la nànk-nànk boo demee ci alxikam bu ibn ataillah as-Sakandari def caa wax ne bokk na ci pexe seetaane loolu day ci jéem a yàqal nit daal di wax ne moo tax dëgg la dayo bu mag bañ bëgg nga yegg fa mooy nga yegg ci dayob booy tudd yàlla sa xol ne lapp ci sunu borom ba di si jóg jenn jamono du ko fay mu ko waaye loola yombut a gaaw a yegg kon moo tax ñàkk gi nga ko ñàkk man a man man a man a teewlu léegi ba na ko bëggee bu mu dox sa diggante nga ne kon gannaaw mënuma ko naa ko far baax ndax boo ko defee seytaane far la mu bëggoon ci yow man ko ndax seytaane moom li mu bëgg mooy fexe ba tàggalee ak tudd yàlla loolu la bëgg kon moo tax tudd yàlla dëgg-dëgg fàttaliku yàlla lay firi anam yi ñu koy defee nag yu bare bare bare bare la yooyu ma tudd léegi yépp ci anam yi tudd yàlla bokk jàng alxuraan buñ ko doon wax sax dañ naan mooy faratay tudd yàlla ni ma koy nettalee damaa dégg benn borom xam-xam bu ñu xam ci réew mi Oustaz Ahmad Dame Ndiaye hafizahullah mu wax ko muy wax ju am solo wax ne tudd yàlla bu doon am farata danga nga naan faratay tudd yàlla mooy jàng alxuraan wax na dégg jàng alxuraan sunu bor Serigne Serigne Touba radiyallahu loolu la wax wa afdalu dikri kitaabullahi dafa wax ne tudd yàlla gi gën ci tudd yàlla yi mooy mooy jàngal xuraan ba noppi. kon moo tax nga gis ci ca Masaalikul Jinaan ci buntu jàngal xuraan sëriñ ba ba mu cay wax dal ci kaw bu baax ñenn ci ñi nga xam ne dañu woote ak sufiyanke ba mu yóbbu leen seetaane jaxase seeni xel ñu mujj sàggane jàngal xuraan fonk seeni wërd jiital ko ba jàpp ne far wërd yee war naa mën a wutal xuraan wala ñoo xaw a yem sëriñ bi wax ne ñooñee seytaane rek leen war leen nax waaye lañ nekk dara du ca lu wér ndax alxuraan amul lu mën a tolloog moom kon jàng alxuraan mooy li ci jiitu bu jàllee nag yeneen xeet tudd yàlla yu yaatu la bu dee ci ñun ci suñ yoon wii yoon yoonu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jàng xasiida ci tudd yàlla la bokk jëfandikoo du xuus ci tudd yàlla la bokk jëfandikoo yeneen xeeti tur yàlla ak yeneen ak yeneen ci xeeti sikkar tudd yàlla la bokk ba ci sax ba xeetu saalihaat yi nga def ba jullee ba sërmal ci tudd yàlla la bokk kon tudd yàlla dafa yaatu waaye nag ni mu yaatoo itam dafa doon loo xam dafa am ay niveau yu tolloowut moo tax bu dee ci wàllu tariqa suufiyanke yi moom toujours dafa bokk ci seen doxin faw ab tariqa day am wird woo xam ne moo koy jëmmal nga xam ne wird bi moom bu ñoo doon wax naan kenn ab bi dañu naan wird bi mooy doon kenn ab bi loolu moom tariqa suufiyanke yépp loolu lañ xam noonu la mas di doxee ndax ku mas di ñëw sax ba ci ba nga xamee ne tariixa sosoogut ba mel nii mu mel saxit ca lu yàgg a yàgg teewul li ñu tudda talqiin moom daa mas di am te loolo ma nga jo tàmbale woon ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ci xadis nettal nañ xadis Shaddaad ibn Aws boobu ñu ne dañoo toog ak yonente bi aleyhi salaatu wasalaam néeg ñu toog ba ci ak yonente bi sallallahu alayhi ne leen ndax ab jàmbur nekku fi kenn raxu fi maanaam booba daa bëgg a wax ku bokk ci ñun ku dutub jullit wala ku bokk ci naafeq yi wala nangam ñu ne ko ñun rek fi nekk de mu ne nañ delloo bunt bi ñu delloo bunt bi tëj ko nee na yonente bi alei salaam daal di saleen baatub laa ilaha illallah saleen ko ci anam gu yéeme goo xam ne ku ne xam na loola mbir la ndax ñoom ñëpp wax laa ilaha laa leen taxa dugg ci dugg ci diina ji te ba leen di wax loolu fekk na dugg nañ ci diina ji diir bu yàgg ba mu diina ji ba noppi ba nekk ca ba góorgóorlu ca waaye mu tëjaat bunt bi ber leen sawaat leen ko te ñoom ñëpp ñu xam ko manoon ko di ko defee nañ ko war a defee waaye mu leen ko sawaat mooy am na lu muy tegtale kon mooy am na lu mu bëggoon dugalaat ci ñoom ñu tëj bunt bi mu sawaat leen ko wax le gëmm ba tam yëkkati kàddoom wax ko wax le ñoom ñëpp ñu gëmm seen i bët seen kàddu wax ko euh, sufiyanke yi moo tax it loolu musta ñàkk ba ca ña nga xamee ne ci kilifa tasawuf yàgg yi amuñu woon ay tarixa itam waaye tudd yàlla guñ daan sa seeni donga ma musta ñàkk am loolu musta ñàkk kenn koo xam ne mas naa dem ci sëriñ jox ko boppam te talxiinu ko amul benn turu yàlla yu mu ko jox mu di ko jëfandikoo loolu naka jëkk daw dam kon ci loolu la la sun borom demee ba tariixa feeñ sun borom ci coobareem di jox ndigal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam muy indil lenn ci kilifa yu mag yi ay tariixa muy wërd yii ndax tariixa bu ñu ko waxee ci dëgg-dëgg faaw ñu xam ne dëgg dëgg bu ñuy wax tariixa wërd mooy li koy symboliser mooy li koy jëmmal léegi wirdu wi nag waaye day ànd ak ay sarta ki ay condition ki ay yëf yu bëree bëri yu ko accompagner bu ñu dajale loolu lépp mooy la ñu tudde ba bokkut ak nag li ñu tudde tarixa ñun comme waxiinu doomu aadama nga xam ne mbooloo lay lañ ciy jublu mbooloo mu ànd diw jiite leen ci yoon yàlla loolu moom tarixa la ci waxiin wii ñuy wax waaye bokkut ak li su fiyanke di tudde dëgg-dëgg tarixa moom bokkuñ ñaari bokkul la kon moo tax ci tarixa bu mën a doon jëfandikoo wirdo moom loolu lu mënta ñàkk lay doon bu ñëwee ci wir yoonu Cheikhul Khadim yi radiyallahu anhu sëriñ bi naka jekk euh, ba mu jógee ci géej gi lu jiitu muy dem ci géej gi sëñ Basiiru lim nett ni ci mu noon baaxal Khadim mooy ba muy wax ci diggante ña sëñ bi doon yar laata ca njëlbeen ga ca Mbàkke Kajoor ba ca Daaru Salaam ba ca Mbàkke ba Mbàkke Bawol Daaru Salaam ba ca Touba lu jiitu dem ci géej gi dafa xam ne booba ñi sëñ bi daan tërbiye taalibe yi ñaar lañ dañ daa ñi nga xam ne dañuy ñëw jox ko seen bopp ba noppi bàyyeekoo seen bopp pour des fi nga xam ne moom bis bu sat mi ngi teg ñoom bët di leen defloo di leen dindiloo ak beneen kuréel bi nga xam ne dañuy joxe seen bopp ba noppi dem nga xam dañuy dem ak a ñëw di dem ak ñëw waaye desuñ fi dañuy dem di yëngatoo ko nekk seen yitte léeg-léeg ñu ñëw tëbbalu si sëñ bi barkeelu si moom siyaare ko demaat waaye ñooñu sax sëñ Basiru dafa wax ne sëñ bi da daan jox ay wér yu daan jëfandikoo léegi sëñ bi nag bu fekkente ne ñi nga xam ne dañu dem ak ñëw sax jox na leen ay wér duñu jëfandikoo kon astamaa ñi nga xam ne moom dañu fay des doon ay laxasaay ñoom ñoo ñoo waxi nopp te lii loolu sëñ Basiru moo ko bindal jamono jooju sëñ bi ci tariq xaadiri la nekk te moo ko waxal boppam ci ay mbindam yuñ xam ñun ñëpp ñu gis ko booba tariq xaadiri boobu mu nekk wérdu xaadir ak awraad ya nekk ci biir tariqa ba yooyu leen daan jox gannaaw bi itam bi mu amee yeneen tariq yooyu des ci ndigal yam ko amoon mu daan nañ ko jox bi mu demee ci géej gi ba dellu si sëñ Mat Lamine Diop nattali ne gannaaw bi sëriñ bi jógee ci géej gi yor tarixa yoo yor werdu yooyu ko yonent bi alayhi salaam joxe ci géej gi alayhi salaatu wasalaam nee na sëñ bi ku ñëw ci moom di jébalus ci moom te fekk yoroo woon benn gannaaw dane gannaaw bi nga xamee ne sëñ bi jot na werdu maxuus nee na ku ñëw ci moom te yoroo woon benn sëñ bi dalay jox werdu maxuus bu dee koo xam dafa yoroon beneen tarixa ci ya jiitu woon te xaj na doxoon na ci diggante bu yàgg wala nangam nee na sëñ bi lag-lag day jël ba ca tabam yoroon da koy jëlaat yeesalaatal ko ko waaye bu ko yeesalaatal danaan ko danga koy jëlaat nag ci ndigalul ne maa la ko jox tey loolu di lu am solo mooy ndax am na koo xam ne dox na ci xaadiriya wala saadiriya wala tijaan ay at ba jot na caa mos mos masu lëf te sëriñ bi fi ne moom moo fi nekk nekk nekkaayub loola maanaam moom man na koo joxe na ko seeni borom doon joxe ndax yonent bi alayhi salaam moo ko joxoon moo ko jox kon moo tax du problème ci moom mu jox la xaadir ak chadiri wala tijaan yi wala mu jox la wérdu maaxus suñu yem ci moom ndax yëpp ay bagaasam la yu ñu ko jox moo ko yor sañ na ci jëfandikoo bu ci neenam ko soobee kon moom du problème ci moom mu lay jox bi wala mu lay jox bee ndax bu mu la ci jox rek ma yow mi mi jox it yow bu la jox rek moom nga war a xënte woo sa wut nekk ci beneen ndax yow amook tànn moom moo xam li ëpp solo ci yow te damay wax ne foofu lu ma ta xam mooy baat boobu sëñ Mat Lamin di wax daa am lu mu jëmmal loolu mu wax ne sëñ bi dalay wax ne la da koy wéyal waaye ci ndigalul ne ci man nga ko jëlee ci yéenee ne ci man nga ko jëlee sëñ Tuubaa li ñu tuddee xasu du ko def maanaam ay waxam foo ko fekk ci mbindam ak waxam ak léppam baat par baat amul benn baat boo mën a génne ci waxam te doo am doo am jeexit ci la mu wax maanaam ndax baat bu wax da koy tànn baat bi boo ko seppee rek li mu doon wax dootu firi li mu bëgg a wax ndax ay wax ay waxam da koy tànn kon moo tax bu ne ci yéenee ne ci mën nga ko jële mooy ne léegi day wan léegi rupture am na mooy yow Sëñ Mbàkke démb ba ngay ñëw ab xaajir nga woon yoroon wirdu xaajir jëfandikoo ko ay at amoon ci ndigal amoon ci nangam tey jii bi nga ñëwee même suba wirdu ba nga yoroon démb ngay wéy di ko jël jëfandikoo suba itam waaye nag jëfandikoo wootoo ko ci yéene ja ko doon jëfandikoo demb ndax yëmb yaa ngi ko doon jëfandikoo ci yéene yi aju ci tariixa Cheikh Abdou Khadre Jilaani di ca tëbbuloo te yaa ko yor ci yéene yi aju Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di ci taw di tëbbulu ci moom te it yaa ngi ko yore ci geneen càllala gu bokkut ak càllala ga nga ko yore woon te càllala daa am jeexit càllala ga nga ko amee woon démb càllala gu jaaroon ci ay kilifa la ba yegg Cheikh Abdou la Jilani jóge ci yonent bi alayhi tey càllala gii nga ko yore tey Cheikhul Khadim la di sëñ di yonent bi alayhi salaam kon loolu am na am na am na jeexit ju ju ju muy wane ni noonu itam. Euh, faaw ñu xam ne euh, loolu euh, caalala googu ma wax dafa am solo ndax caalalu gàtt gi caalalu gàtt gi dafa am jeexit moom it loolu yi doonaat beneen mbir mu am solo ci wér du maaxuus wi ñu Sëñ Tuubaa indil loolu lu ñu tuddee uluwu sanat mooy caalalu gàtt boroom xam-xam yeeg nit yàlla yi boo gisee ñu daan def léeg-léeg nit jël tariixa ci diw ba noppi déggaat ñu ne sëñ diw sàngam wala mu xaddam diw sàngam ci dëkk sàngam am na ko ci silsila bu gën a gàtt mu jaral la takk say bagaas laxas dem wutali ko di fanaan ak yendu ci àll ba yegg ca moom ngir tëbbul jëlaat ci moom dara daw ko tax lu weesu ngir bëgg am càllalu gën a gàtt càllala googu nag sëñ bi moom li ko sëñ Tuubaa li ko suñ borom defal loolu ci jamono moom gisee su ko fenn mooy moom la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Sidi Ahmad Mismo wax na ne sëriñ bi daana leen ko wax ne leen lam yatuli sanadu lan yatu lam yatuli sanadu bay na bay na ko bay na lam yatuli sanadu nu mu ko waxeeti lam yatuli sanadu bay na ko bay na rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama ana wax wahdi maanaam seen càll la bi leen jokkaleeg yonent bi alayhi salaam guddut ndax menn man dog maa fi dox menn man dog maa fi dox loolu doon loo xam ne solo si day feeñ ba suñ jamono jii ba fii mu koy waxee toujours ni ma koy waxee ne ba léegi bu la soobee yow sëñ Mbàkke mii di dund ci deux mille vingt deux bu la soobee sa càlla la sa digg ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ñetti nit a fi dox bu la soobee suba suba ndax boo demee ci sëñ mu jox la ko sa digg ak yonent bi aleyhi ñetti nit a fi dox sëñ Muntaxa la sëñ Basiiru Cheikhul Xadim boo demee ci ku mel ne sëñ Mudu Maamun Ñang ba tey sëñ Mudu Maamun Ñang lay doon Cheikh Mahamadou Lamine Jóob Dagana Cheikhul Xadim yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak ñi nga xam ne am nañ càllal yu mel noonu yëpp boo demee Mauritanie Cheikh Sidi Ahmad Cheikh Mouhamadou bin Ahmad Misk ñett ba tey Cheikh Mouhamadou Ahmad Misk Cheikh Sidi Ahmad Mismahu Cheikhul Khadim Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lii càllala gu gàtt gàtt la te càllala gi ku ne xam na ne am na jeexit ju am loolu xaj na waxtu wi duñu ko may ndax xaw naa eh, xaw nañoo sori sax ci waxtu yu ñu waroon am waaye càllala gi moom ku ne xam ne jeexit ju mu am ak li muy def ndax lu mu gën a gàtt gën a am doole li muy tëbb nit itam gën a am kàttan gën a euh, mën a def jeexit ci moom kon daal xam naa li ñu tëj rek mooy ñu xam ne tudd yàlla moom li ko sëriñ bi waxee wax ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru sax saxal tudd saxoo tudd yàlla mooy li gën a màgg ci lépp lu ab ku sóobu yoon yàlla di baril lépp loo xam ne donga bi sóobu yoon yàlla mi ngi koy baril di ci góorgóorlu saxoo tudd yàlla moo ci gën a màgg yëmut ak lenn ndax day jeexital ci xolum nit ki day jeexital ci moom wax fa ne itam ne euh, nu mu ko waxeeti bayit ba euh, maanaam mooy dafa wax ne dundub donga buy sóobu yoon yàlla ab taalibe ab dundam mooy saxal tudd yàlla mooy ab dundam maanaam ni ñam di def ci yaramu nit nga xam ne nit mënut di ñàkk di mosu ñam mu néew mu bari waaye mënu ko ñàkk def ngir yaram wi di dund di fi nekk niki noonu itam taalib bi soobu yoon yàlla ruuxam ngir mu fi nekk di dund ta ñàkk muy bari lu muy tudd yàlla lu muy bari lu muy tudd yàlla lu mu koy gën di bari lu mu koy sellal lu mu koy teg fa mu ko war a noonu lay dunde noonu lay màgge ci diggam ak boromam kon moo tax lu mat a yitte wala lu mat a sonne la jamono nag toll na foo xam ne nit ñi ñu bari daw nañ jëm ci bëgg bëgg yàlla ak bëgg lu baax tax ñu soobu ci foo dem da gis ay nit di wuti kurus di wérd di def nangam di def nangam ñu leen di jàngaloo ay yëf di def ay yëf lépp ngir bëgg lu baax ak bëgg yàlla rek waaye li ma ci mat di jàpp daal mat na ci bàyyi xel mooy euh, bëgg lu baax ak bëgg yàlla lu war la waaye bu ko nit ki na ko defee ci xam ndax sëriñ bi daa wax ne ca maxaliku neraan jëf faw xam da ko war a jiitu ndax jëpp jëf ju xam jiituwut bu ko borom xamee bu ko xamut faw ab ab rax dana ca am maanaam dana am lu ca yàqu rax ca te du xam ne yàqu euh, lu ko lu ko lu ko yàq rax na te du xam kon moo tax loolu lu mat a sëdd la lu mat a bàyyi xel la li nga xam ne daal lu assuré la lu wóor la te lu leer la doon tudd yàlla goo xam ne du jël ci yow temps bu bari nga mën koo def suba def ko ngoon mën a wax ne li nga ko def ci bis bi lépp boo ko xoolee mën naa am du mat sax ci yow ñaar waxtoo gen wàll du ko mat te doon lu assuré loo xam ne kenn du ma a gis nit ku ko jëfandikoo ca sart yaag na mu war a doxe lu may ne dana def jeexit ci moom ci comportement am def jeexit ci moom ci ruuxam def jeexit ci moom ci jikkoom def jeexit ci moom ci melokaanam def jeexit ci moom ba ci sax yu bari rek yoo xam ne sax bëgguma ko tudd waaye adduna jii nit ñi sax mën naa def jeexit ci moom ci am ami addunaam euh, doon lu assuré lu lu lu lu luñ sécuriser itam loo xam ne loru ci yombut li fekk ni kaa ngay tënku ci sart yeeg nam ci war a tënkoo doo gis mukk ku ne la doon jëfandikoo wér maaxus jëfandikoo ko nam jëfandikoo ba noppi nga xëy mukk ñu ne la lii dal na ko wala laa dal na ko te loolaa doo gis mukk waaye jàmm rek lay doon euh, bari na sax ñu bari ñoo xam ñoo xam ne dañ lay wax ne la yuñ doon jànkoonteel ci ay mbiri jafe-jafe yi ay àndandoo ki yeneen yëf yeeg yuñ doon ragal ak ay yeneen ak yeneen yuñ mën tudd gis nañu bañ tàmbalee jëfandikoo wér du ab diir yooyu yëpp daal jékki-jékki tàggoog ñoom kon moo tax lu mat a sonne la lu mat a jox yitte la te xam na it ci jamono ji ñu toll lu mel na moom ci góoraay amut lu mel na moom ci wóoraay lu mel na moom it ci jeexit ci jeexit ju foor ju mu am ci nit yombut loolu moom xaj na day tolloog li ma koy faral di waxee dama naan léeg-léeg sax ku koy jël léeg-léeg du mën a ñàkk gannaaw nit kuy dugg ci mbir faaw nga wax ko loo teg ci loxoom waaye dama naan wérdu yi sax moom li ci nekk ci jeexit fi ne ci dëgg-dëgg mënoo ko wax nit ki ndax ku nekk bu ko mosalee boppam ab diir moo ciy gisal boppam ay jeexit boppam yoo xam ne mën naa am du bokk ak yakaneen gis sax kon moo tax lu mat a jox yitte la te fonkat a euh, boole ko ci li ñu liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon ñu tënk foofu di jéglu ñëpp di santaat alxadimiya ci taxawaayu rafet yi ñu taxaw ci li ñu fàttali dat bu solo bi jar mu nekk di ci jéem a def ay waxtaan itam ngir di ko fàttali di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfeex te ubbi bopp ñëpp itam ba yittewoo giñ ko gi ñu war a am ci wérdu wi ñu gën koo am euh, safoo giñ ci war a am ñu gën koo am ci di ko jël te di ko jëlee nañ ko war a jëlee te di ko jëfandikoo te di jéem a góorgóorlu ci tënku ci sart yi suñ kam kattan ñaan suñ borom mu defal ñu nangu ñun ñëpp te may ñu fekk waat ko ay di bëree bëri te man dëgg góor ak tal ci barkeb Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم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 ñoo ngi sant bu baax yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa tey fàttaliku xew-xew bu mag a mag bu amoon ca koy ànd ak sunu mbokk yi di waa al ñoo ngi ndokkeelaat al xadimiya bu baax muy site internet bi muy lépp rek lu aju ci ñoom groupe presse bi di al xadimiya ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa ba bu déwénee ñu am seen télévision boo xamante ni day jàll fépp nag ci àdduna si wax xam ne fu waay toll di ko di ko di ko seetaan ndax kat lii am na solo ca gis naa ne jotaay bii rek waxuma la yi ci des waaye jotaay bii rek ñu ngi koy bëgg a def at yu bari ci ñoom ci initiative la bokk yu am solo kon ñoo ngi koy ñoo ngi ñaanal ñi ci nekk ñëpp ñu fàttaliku mooy wërdu maaxuus wërdu maaxuus lu am solo loo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel ñun taalibe Serigne Touba ku ne xam na ne Serigne tubaa bam sosee yoonu murit yàgg na ca Mbàkke Kajoor ku ne xam na ne daana jëfandikoo wirdu yu bari ci wirdu kilifa yi fi nekkoon Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani jaare koon ci sanadul kunti eh, ak yeneen wirdu yi gënoon na yi fi nekkoon yëpp Chaadili Tijaani ba ci sax danga dégg wirdu yu bare bari bu ci nekk rek jëfandikoo woon ko ab diggante ci jamono ndax xam njëlbeen ga da doon yar nit ñi di leen tarbiya waaye nag wérdu wum jagoo woon moom amutoon wérdu yu mag yi fi fekkoon rek waaye ku ne xam na ne ginnaaw bi yàlla jagleel na ko wérdu boppam ci Mauritanie ca Sarsara ci jamono joo xam ne soriwut jamono ji ñu toll suba la juróomi fani kori ci la ko sëñ Touba génne woon comme ni nga xam ne noonu la ko waykat bu mag boobee waxoon rek ahmad ibnul hasan ba muy euh, xaamisa shawwaala shahidna karama muxriju za taarixi taajul kurama ahmad ibnul hasan bokk na ci ñi liggéeyal wér duma xus suñu mbokk murtanee la bu jaayante woon ak Serigne Touba bokk ci ñi njëkk a jaayante moom foofa ca Murtani bind nay ne sañ toxale ko ci njabootam ne moom la sëñ bi njëkk a jox werdu wi xam naa li ko sëñ bi njëkk a jox tax na ba am ci jagle tax na ba mu liggéeyal wérdu bu baax a baax euh, taalif na ci sëñ bi lu bare bari jaar jaari sëñ jaar taalif na ci sëñ bi waaye nag taalif na ci wérdu wi dalilu man raama dalil an wérdi cheikhinal jalil wax na sëñ Tuubaa wérdu wi fan la ko jëlee dem na ba naan wa kullu za bi ardi gannaara wax nañu it ne façon wérdu yi am xafiif kaamil ak yépp lija al imaamu an imaami saqalayn an wirdihi an rabbihi wirdun ala kayfiyatayn wax na kañ la ko génne abrazahu yowmul aruba yowmul arubati liman ashhadahu llah min min abnaai zaman xaamisa shawal shahidna karama wax wala na ne sëñ bi donte ci mujj koor gi lañ ko ko jox waaye bi mu koy génne mooy juróomi fani kori gi lu yéemu nag am na ci ren alhamdulilah juróomi fani kori gi ajjuma la dajaloon ndax nee na yowmul aruba yowmul aruba mooy ajjuma ren jii dafa mel ne juróomi fani kore gi ak jagle amaat na ci ajjuma lay dajal kon anniversaire wird wi ngeen di fàttaliku yéen waa alxadim yi alhamdulilah mel na ne jagle yi leen ci yàlla jox ren bari na wird woowu di lu am solo bokk ci sëriñ bi nga xam ne yàlla moo ko jox sëriñ Touba mu andil ñu ko moo tax nag li ñuy wax kon li sëñ bi wax rek digal na ñi aju ci moom ci ay góor wal mutaalliqaati ak ñi aju ci moom ci ay jigéen ñu di ko jëfandikoo kon nañ ñuy def wird wi nii ñu amee fulla bay def suñ doge alxuraan yi amee ne fulla ba koo ci gis am na dogub xasida boo xam ne dana koy def xasida boo xam ne mënu ko ñàkk nañ nag nag kat bay def wird wi it ca xam ne it nag ndigalul sëriñ bi la ca comme sëñ bi ci lañ jokk moom lañ doxale def ko suñu sëriñ teg ko ci suñ kanam lépp lu yokk ak jokkook moom war nañ koy def te ko ne xam ne ne wird wi am na ci doole loolu am na ci solo ndax mooy li nga xamante ni mooy wird wi nga xam ne jëlewu ko ci benn cheikh ci yonent bi sala ci yàlla la jóge jaar ci yonent bi mu jox ko ko yàqasatan foofu ci sarsaara comme ni ngeen ko waxee sëñ Tuubaa diggee ci lu bari doy na sëkk nee na képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo wérdu wi da nga nekk mu'min muslim muhsin mooy da nga nekk jullit bu mat sëkk waxaat nañu ne it ne ci foo xam da ko way wahab liman axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim yow yàlla yàlla na nga may képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo sama werdu yi di ko jëfandikoo yiw woo xamante ni yemut fenn dañ ne daana waxit ne ba mu koy doog a génne ci li ko al alawi yi nettalee ci téereem boobu nafaxatul muskiya dana sëñ bi boobu da leen dajale ne leen wax wax werdu yi nag ko yàlla joxe wane ne ku yoroon waneen werdu te mën ko boole baax na leer la ci kaw leer waaye nag képp koo xamante ni mënoo koo boole nag da nga yem ci sama werdu ca te loolu ku ne xam ne ne loolu xamees na ko ndax nag comme sëñ bi mooy suñ sëriñ nag ci aw wérdam ci lañ war a yam nga xam ne ay taalibeem kon nag loolu loo ciy déggee mooy kon bu àggoon ci boole koog leneen mënta ñàkk bàyyi leneen la ci jëfandikoo loolu sëñ alaalawi moo ko nettali Mouhamadou Ndox Bayda Rahman ci nee na sëñ ko waxoon ci gànnaar ngëneel yi bari na lool nit ki jullit a doon la ñaane yàlla doon te wirdu wi bokk na ci liy mottali jullitu nit dana dox diggante nit ki def bakkaar loolu solo naa ko ci ñu bare bari ci loolu mu jarab la bokk na ci wir njariñul wir diir sëñ bi nee na ku koy def danga nga texe texe goo xam ne doo texee di ginnaawam Cheikh Amadou Bachir doomi Serigne Touba jooju nga xam ne ni ko ñenn ñi melale ashabihu bi xarfat da ko niru lool te loolu ku ne xam na ko taalif na ci wirdu wi ngir di ci soññ nit ñi comme noonu ko Ahmad ibnul Hasan defee xasida gudd gudd mi ngi tàmbale ci yaaraa imal kamaali fi saada min turqil mashaayix salaasa maanaam way yoo xam ne maanaam i daal bëgg naa woon ne yow mi bëgg ak kamaal ak mat texe yow mi bëgg a jariñoo yooni sunu sëriñ su tedd soosee Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Idi Ahmad Tijani Cheikh Abul Hasan Chadili na nga xam ne boo jëfandikoo werdu sëriñ Tuubaa wi yor nga sekkare werdu yooyu mooy werdu sëriñ Tuubaa wi daal kon njariñ li nekk ci werdu aqtaab yi mag ñi jiitu woon mi ngi ci werdu sëriñ Tuubaa wi te bokk na ci li lay tegtale loolu mooy sëriñ Tuubaa werdu yooyu bu ci nekk jëfandikoo na ko moo tax da nga gis mu dem ba ci biir naan fa jamaal kulla mooy mooy mooy mooy sëñ Tuubaa boole na wér di yëpp wazaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii laa taxaafu kapta kon loolu loolu la wax mooy mal ne daal boo ko jëlee jël nga wirdu yooyu yëpp kon alhamdulilah loolu da nga ci déggee moo taxoon sëñ bi lii gën a tegtale ci rek ne lim yoroon lu boole la loo xamante ni boole na lépp lu baax lu fi nekkoon loolu it ñu ciy am déggin wu rafet ak njàngeen wu rafet mooy li nga xam ne moom la aqtaab yi yoroon li nga xam ne la machaayix yi yorit lu wér a wér la lu ama am njëriñ la lu am solo la ndax ak am njëriñam tegtale na ci ne sëñ bi ne euh, sëñ ba Cheikh jaar Cheikh Ahmadul Bachir ne euh, euh, ne boo jëfandikoo wér du sëñ bi man la ne nga yooyu ndax loolu mbaax gu baax ak leer goo xamante ni nekk na ci ñi liggéeyal wérdu yu bari na da nga gis Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana tee boobu ñuy wax Ighnaa'ul Adiim da gisit ñeneen ñu baree bari ñoo xamante ni jëfandikoo nañ ko da gis magi murtaniyee yi ku mel ne Cheikh Sidi Ahmadu Lismahu danay wax ci wérdu lu bari eh, ak nettali ci lu bare bare bare bari daana sonn lool ci di ko jox ay taalibeem góor ak jigéen tey boo demoon Mauritanie da nga leen fekk ñu koy jëfandikoo am na baat boo xamante ne dégg naa ko ci kenn ci sunu sëriñ Cheikh Baawul Abdallah ne moom daana wax ne sëñ Tuubaa daana ko wax ay taalibeem ne leen yéen de lan yatuula sanadukum yéen de am ngeen chance yéen ñi may samay seen sëriñ ndax seen sanat ci wérdu wi de gàtt na lool maay ki nga xam ne maa ko jëlee ci yonente bi mu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi ma jox leen ko kon nag seen amuleen leen sanat bu gudd sanat boo xam ne da naan benn rek ne ñaar euh, maa ngi dégg xissa bu yéemu boo xam ne ci doom yi ki ko daan wax ci laa ko maa Cheikh Maola Aynayn doomi Cheikh Aboubacar euh, Ibn Fatan Cheikh Aboubacar Cheikh la woon bu bokk ci machaayix al xaadir yi yu mag yi euh, jaxasoo naag sëñ Tuubaa loolu na ci ñi ko fekkoon xumaag ba mu ñëwee bokk na ci ñi sàkk woon sëñ bi mu jox ko wérdam wi di wérdul maaxuus bi ko ko joxee mu ko daan jëfandikoo euh, doomam nee na ma dégg nañu ne doomam jooje baayam ku mosaa ñëw bëgg ci moom wérd di ko laaj wérd danaan la am naa ñaari façon wérd yoo xam ne am naa ko wérd wu gudd ak wérd wu sanat bu gudd wala sanat bu gàtt boo ci bëgg ne la sanat bi de mooy bi nga xam ne sëñ Tuubaa ma ko joxoon te ci yonente bi booba xam nga ne gàtt foofu la mën a yem daan ne nag am naa beneen sanat xam naa mooy wérd xaadir bi nga xam ne dëgg la wér na lool waaye sanat bi gudd na ndax dañ ko jëlee ci moom mu jaare ci baayam ci maamam muy jokkaloo ba mu àgg ci Cheikh Abdul Xaadir Jelaani ca xam ngeen ne loolu kon dana xaw a yàgg tuuti wér di ñu leen di leeral ne am na ci loo xam ne nañ koy bàyyi xel nit lu mu bëgg bëgg lu baax am na ñaari façon jëlee am boo ko jëlee nii di ko def de da nga ci jariñu ndax tudd yàlla la wér di wi génnut fenn alxuraan istigfaar moo ci ca ci yàlla moo ñu wax ci alxuraan ne astaghfiru astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara tudd yàlla moo ci am wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun tudd yàlla ak yeneen yi nga xam ne moo ci am lépp rek lu ci nekk rek salaatu ala nabi ba tey moo ci nekk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon wirdu wi ay cosaanam yëpp rek luñ xam la alxuraan rek la sunna rek la li borom xam yëpp dëppoo rek moo tax nag kon ku koy jëfandikoo nii ci amoo ci ndigal yaa ngi koy def da nga am tiyaaba ndax def lu baax nga yaa ngi tudd yàlla yaa ngi def istixfaar waaye nag ku bëgg jël li nga xam ne moo tax ñu naan sérul werdi li nga xam ne mooy mbóot mi li nga xam ne moo tax ñëpp di ci sonn nag nanga ko jëlee ci cheikh boo xam ne yor nga ko ndax nag wérdi daa ami condition daa ami charte ahmad ibnul xasan mi gis naa li ko sëñ bi bindaloon gis naa ko ci doomam ko ñaan wax taa ndeysaan ku baax a baax net ci làmmiñam sax la ma ko njëkk a nettalee l ijaasa bi mu ko bindaloon daan ne li yaalamal waaqif ala haza al marsum an al abd al xadim siiqa lahu su'lu min al qadim ata muridahu iznan wa isticmaalan ci ba lettre bi jeex kon dangay xam ne kon ndigal mën mënta ñàkk ndigal loola it nag na nga xam ne ci ku yor wedd yi nga ko mën a jële waaye nag faaqidu shay laa yatihi bu kon nag dee leen moytandiku euh, nit loo ko fonk-fonk it booy jël ci moom wedd bi nag ne la wóor na yor na ko na nga ko laaj ndax ku koy jëfandikoo la am déet ndax yor na ko ak it nag ndax nag am na jëfandiku ndigalul man koo joxe comme loolu nag bari na moo tax kon loolu dañ koy laabiri rek ñu mel ne man sama mbokki taalibe bi jëlee ko ci ku ko yor yor ko ba noppi am ndigalul di ko joxe loolu nag baax na ci loolu mooy tax nag dëgg-dëgg nga mën a nekk nga nga mën a yor wird wi dëgg-dëgg ci ay sartam sart wird wi xam ngeen ko mooy sart ab jullit dëgg-dëgg rek jàng laab jàng alxuraan euh, di jàng alxuraan loo man di julli julli mbooloo bàyyi bakkaar yi euh, res topp sa sëriñ bi sëriñ bi nga nekk ni ko doon say waajur ak mel noonu sart yi moom mooy tax nga nekk ab jullit piir loolu moom yàllaa ñu ko digaloon mooy sart wird wi kon nag baax na it balaa nit a jël wird wi sëriñ bi la koy jox nan ko wax ne ko na la ko sa bu la ko saa ba noppi na la leeral sart yi nag ndax nga tënku sart yi nag baax na sart yi na ngeen xam ne jafewut am nay waxtu nañ koy jëfandikoo ca sàmmanteeg waxtu yi muy waxtu yi nga ko def suba gi ak waxtu yi nga ko war def ngoon gi suba gi boo julee suba ba noppi ba jant bi fenk mooy mooy muxtaar mi daroor ji mën ko def ci li bi ngoon gi ginnaaw boo julee takkusaan ba noppi borom suñ borom xam-xami tarixa bi nag bind nañ ne di baax na it nit ki di ko def nit ki bu ko neexee mën na ko def ci njël gu njëkk saxaar mooy njëkk ñuy noddu fajar loolu nag dana dana dana arrangé lool sama classe gi nga xam ne ay doxkat lañ léeg léegi ca waxtu woowu mën naa fekk nga nga nga ngay yeewu ak yu mel noonu kon daal am na ay ay ay ruxsa it yoo xamante ne am na ci biir nañu moytandiku di ko def di wax euh, lu yéemu nag toog naa ci jotaayu nit ku ma xaw a miin ku may kaleel di ko tooñ gis naa ko muy wërd ma euh, ñu wax ak moom tontuwut waaye gis naa ni surtout ma gis ko muy naan café waaye dama ko reeba sonn quoi lii di kii maan la naan wax di yàq ci naan kafe ci lekk ak naan du ko yàq di xoromu na waaye damaa jàpp ne bi ñu bi ma ci waxtaan ak moom ba noppi xam naa rek réeréew moo ci amoon ak it léeréewu ko woon noonu waaye noonu la diine moom na la rek kon ngeen xam ne deesu ci wax boo koy def lu dar war a ju mënta ñàkk rek wala say sëriñ wala wala say waajur wala yu mel ne lu mënta ñàkk te it nag boo bu fekkee dar war la janeen ju bokkut ak ñooñu setee nag da ngay da nga koy tàmbaliwaat loo gën a mën a tënku sart yi jublu xibla Euh, ànd ak wegu nekk foo xamante ne coow du fa bari dal loolu moo ci gën loolu lañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ko def bu baax moo xam góor la moo xam jigéen la liñ ci yokk tuuti rek mooy bu dee jigéen la ngeen xam ne wérd di cosaan li luñ sopp la du du loo xamante ni ku ko defut doo doo doo ab jullit wala yu mel noonu wala doo ab sunni wala yooyu déedéet comme nag luñ sopp la nañ ko da ngay day jigéen bu ko mënta ñàkk def na xool ne comme bu doon koor kooru ngatt nga lu mu coobarewu rek la na dem waxtaan ceeg borom këram nag ba mu nangu ko ndax am na ak ci moom ca man naa am diggante bi muy jël wérdu wi wala bu koy def loolu mën na cee waral ak gàllankooram ci borom këram ak yooyu moo tax kon nag na ko ci laaj ndigal ba mu jox ko ci ndigal mu doog a dem ku mu ko jëlee ci moom bu dee sëriñam bu borom këram boobu na ko baax na bu ko amut it mu dem jëlee ko bi la jógee muy xafiif bi ñu bari di jëfandikoo muy akmal bi ngay dégg muy kaamil yi nga ci dégg yëpp rek loolu ba tey bokk na ci jagley wérdu sëñ bi mooy siixa yu wute yi mooy dafa mel ne daal man li ma koy jàngatee sama xel mu gàtt bëgg na kenn bañ koo bàyyi moo tax ku ci nekk rek wutal na loo tollool ñii xafif lañ tollool ñii kaamil ñii beneen lañ tollool ba ci ñenn ñu kii ñi sax nga xam ne mënaguñu àgg ci jël wërd wi wërdal bi nga xamante ni moom xam nga gàtt na lool te sax yenn mag ñi daanañ ko def di ko booleeg wërd maaxuus yi nga xam ne moom lañ xam waaye ci gën a bëri suñ ko daan def jamono yooyu bu fekkee da ngaa yor wërd maaxuus ñoom diggante tisbaar takkusaan nañ ko daan def waaye loolu yëpp rek ci jaglay ne day mel ne kenn kon daal xéewal la yiw la tiyaaba la ju baree bari nañ ko fonk ci di ko jëfandikoo ci sart yi bu kenn lay ne sart yi mënta daje ci man dégg naa Cheikh Sidi Ahmadou Lismuhu daana ko bokk mo saax mu ne la yow kon yow la wérdu yu baax ci yow ndax da nga war a def ndax nga matal sart yi ndax sart yi lu mënta ngi ñaan bu baax a baax yàlla jëriñ murid yi bu baax a baax ci wérdu bi nga xam ne ab Cheikh Mahamadul Muntaxa defoon na ko ci lu yàggul dara yeesalaat ko jox ci ndigal ci kilifa yi jiitoon yëpp daan ko def la tàmbalee ci xalifa sëñ Tuubaa yëpp la tàmbalee ci magam yëpp yi fi nekkoon ndax mag ñi yoroon nañ ko fonk nañ ko bu baax a baax sunu maam sëñ bu Buso xam ngeen ne macha allah taala ci ñi ko jiite woon ci ñi ko daan joxe bokk daa nga dégg ba tey ñu ne sëñ Saaliwu ci ko jëlee woon ak mag ñëpp man mi bokk na ci ñi ma ko jëlee sama sëriñ Cheikh Amadou Mourtada di ko doon ba tey Cheikh Abdoul gis ngeen ni ko fonke woon daan ko joxe daan ko jaarale suñ suñ bàyyi sëñ Jili Gànnaar ak xam naa ci lu bare bare sama mbokk mu baax sëñ Mamor Sey waxtaan nañ ci lu bare bare ñoroon na ko lool lool lool lool xam ngeen ne léppam ngëneel la doy na sëkk ngëneel la Serigne Touba magam Maam Mor Jaara xam ngeen ne kilifa la woon ci tarixal xaadiriya ndax tarixal xaadiriya moo fi nekkoon ñëpp moom lañ doon jëfandikoo bu njëkk bi suñu wërdu yi amagut waaye xam ngeen ne Maam Mor Jaara daana mujj di wërdul maa xusalaan jëfandikoo li koy tegtale Serigne Touba radiyallahu taala anhu dañ ne bi mu ci wërdu yi yónnee woon ko Maam Mor Jaara nusxa boo ne kenn ci suñuy waajur sax daanañ wax ne mi ngeeg moom cosaan loolu ba léegi daana ko wax ba ba ba nga xam ne mi moom eh, dañ ne it li lay xamale mag ñi ñor gu leen wërdu yi ñoroon tax na ba Mamor Diarra sëñ Mbàkke Bousso mos naa jëm gànnaar ci di seeti sëñ bi Mamor Diarra yóbbante woon ko ci sëñ bi ne ko wérdu wi ma yónnee woon de gis naa ko waaye dama cee gis yeneen nusxa yu wuuteeg loola ne ko nag na ma leeral loolu nu mu demee xam ngeen ne loolu kon ñëpp a yittewoo woon wérdu waaye mag ñëpp goon yittewoo Mamor Diarra xam ngeen loolu kiimaan ak yittewoo la euh, euh, kon ñëpp rek sëñ Mad Lamin Gay ba ci njabootu sëñ Tuubaa gi Cheikh Abdoul Bachir ak ñooñu ma tudd mag ñëpp rek ba ci suñ mag ñu yàggut ñii ñëpp rek ñoo fokkoon nañ ko daan nañ ko def bu baax a baax muy góor muy jigéen kon nag amul ngànt na ci ñëpp jëm fastabiqu ilal xayraat wahab li man axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim yaa rabbi yaj'alil muridina maa fi xisnika alxasin wa shamlaj maa ñoo ngi santaat bu baax alxadimiya ci leen di xamal ne seen taxawaay yi rafet na lool lii dëgg-dëgg de tur wi ngeen tudde seen bopp mooy alxadimiya yayoo ngeen ko ndax doy na sëkk ngeen yayoo ko mooy fexe ngeen ba aju ci alxadim lépp ngeen di ko saytu di ci sonn bu yàggut waxtaan nañ ci laytul xadri gi tey jii ñi ngi waxtaan ci wirdu wi alhamdulilah waxtaan nañ ci wirdu wi ay ati ati at balaa ëllëg ñuy waxtaane waat ci loo xam ne lu xew ci alxadim gi la ci xadim yi gi la mooy ci bamba ji loolu nag alhamdulilah tur de niru borom kon ñoo ngi leen di ndokkeelaat ci loolu di leen ñaanal rek ba fépp fu ab organe presse di àgg yàlla ngeen fa àgg wala yàlla ngeen ko weesu sax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا اكتب لمن احد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معاك في حسنك الحصين والشمل اجمعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني كن الآن دقي أزل عاجلا بالبشر مع عمل حتى أقسم الدين لها الكرم يسر جوعي توبا واحمني وقني أدل وراه والتد بسم الكرم كالسماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد شكرا أجيب وسلم بسم الله حسن محمد تعالى فاهم الله asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi siyaar ñëpp di di siyaare jullit ñi di leen tatagal di ci weer wu tëdd ñu génn di di ñaan yàlla mu defal ñu weer yi yëpp nag sa sa kër wala jaxal fitra fawqa sawmi yàlla ñu ko ko sum borom ci xam naa di di di di beral uh, am nuyoo waa al alxadimiya di jiital seen sëñ Mamour Touré sëñ Bakke boobu ñu nga xam ne moo yor caméra bi ak ñi koy saytu ñëpp rek xam naa xam naa ko ko ci kon daa mel ne kon uh, anniversaire uh, wërdu wi kon ñëw na. ñu ngi ci shawal ñu ngi ñu ngi ci okoriñ nga xam ne juróomi fan ci shawal ci ci la di wàcc ca gànnaar gànnaar nga xam ne eh, xafif ba moo fa wàccoon werdu di di lu am solo loo xam ne ab suufiyanke mënta ñàkk a jëfandikoo wér na salaay salaam sax daana wax ay oraat yu bari yoo xam ne jumbut nga xam ne lu mel ne subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi asim ko wax téeméer yoon ci bis kenn du def jëf jëf gën lu may daa wax lu ko ëpp ci misaal yu mel noonu nga xamante ne awraat yi moom sala sallam daa daana beral yenn saxaaba yi maa ñi ñi jé ñi ko jege ku mel ne Seydina Aliyu karamallahu wajhahu nga xamante ne daan leen jox ay awraat kon wérdu wérdu moom mooy dundal xol suufiyanke yi nag ñoom dañ caa gën a dañoo gën a ci ñu ñu ñuy teewoo werd ndax loolu mooy tibbul xulub maanaam ñoom ci xol yi lii la bëgg a laabal te li koy taskiya mooy sikkar alxuraan digal nañu ko nee na nee na ñuy sikkar lu bëree bëri sëñ Tuubaa ca Masaalik wutal ko bunt boo xamante ne sikkar rek la ciy wax بعدين فكل من سألني فليجاوب قبل ولا تجادلوا قبل الكتاب maanaam nga xam ne wala dikrullahi akbar ja lay wax ne ne ne sikkartu yàlla moo gën a na màgg suñu tubaab wax ne it nag ab képp kuy sóobu ci ci yàlla ab saadik li nga xamante ne mooy njëriñam wala muy ak dundam mooy dundal ruwaam mooy sikrullahi taala di tudd tudd yàlla tudd yàlla nag kenn ko tuddee nag nga xamante ne gis ko fenn rek di ko werd waaye da nga ciy am isna xaas isna bi baax na suñu tubaab nee na mu jara doone baadata lay doon yoo xam ne suñu borom di digal na ko jaam ni waaye bu bu ci bëggee ay leer ak ak ak i ak i koy tuñante ak góor ñi moo taxoon su su suwenke yi ñoom la leen yàlla baaxe ci ay awraat ñu di ko jox ku leen nangul ci jullit ñi wérdu wi nga xam ne kon ñetti wirgo la ñetti façon nga xam ne benn bi bi bi euh, borom xam-xam yi yi classé musannifoon yi ñoo ko classé tudde bi alxafif bi alkaamil bi alxaatim wala sax am ñu ko tudde neen waaye leeraloon naa lool ne nag ne tur yooyu suna salaam si tuwaa waxu ko jógewul ci yàlla yent bi déedéet si tuwaa waxu ko ñoom mustanifoo ni ni nga xam ne dañu tasnife naan lis lislaam ñu naan fiq liimaan ñu naan ñu naan tawxiid lesaan ñu waxu ko waaye mustanifoo ni ñoo ko noonu xam-xam yi nga xam ne nekkoon ndax xafif ne xafif jombul nit jaakaar ne ci baatu arab bi kon daa woyof fekk na déedéet ñu ñu kaamil ñu nekkoon kon man naam kon xanaa kon daa mat wala akamal ñaan dafa gën a mat yooyu yëpp kon moom nekkul loo xamante ne jóge na ci sëñ bi am na lu am solo loo xam ne foofu xafif bi tur bi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa joxoon mooy alxisbu rafic allazi min anniiraane xirsun manic wali duxuulil jannati aadamu shafic loolu la ko tudde woon xam naa loolu nag xisbu la xisbu nag doo mel ne wërti nag werd bu ñëwee ba ci xaatim bi mu tuddi ko haada huwa alwirdul xaatimu almaaxuusu min allahi bi rasulil xaatim kon kon foofu moom dafa préciser nag foofu werd la yéen nag man dafa wax ne la waaw waaw loolu nag xam naa jumbut eh, xam naa eh, xam naa eh, du sax ma a taxaw waaye xaatim bi daal kon ñoo xam ne xaatim bi moom mi mi ngi wàcce mi ngi mi ngi wàcce njaarim xaatim bi mi ngi wàcce moom moom nga xam ne moom jumbul a jëm si sin lay doon nga xamante ne euh, at mi nga xam ne suñ suñ tuwaa mat na la mu doon muy amul jiwaar kon kon euh, werd wi lu ama am solo la la munta ñàkk suñ tuwaa ne woon na kat ñu ko jëlee ci yéen tamit mu jële ko ci borom bi tabaraka wa la mu ne moom nag jëfandikoo na ko digal képp ko aju ci moom mu jëfandikoo ko mu muddata muksihim mu xam góor a jigéen muddata muksihim wa muksihin na fi duniyaa góor ak jigéen fekk fekk ñi ngi ci kaw suuf nañ koy jëfandikoo te bañ bañ bañ caa bañ caa wàññi dara nañ ko defee noonu rek mu sax dàkk diw kon werd wi ko kon moom mënta ñàkk ci ak murit moom Euh, am na euh, ab laaj nag bu ci laaju mooy na ndax ndax ndax sart la wala lan euh, sartu si xaala wala sartu kamaal sartu kamaal lay doon man ci ni ma ko jàppee maanaam mooy loo xam ne bu amee day gën a gën waaye boo ko defutoon it mën naa am du yàq dara ci ne ab morit nga lu ko waral mooy mag ña ñu bari ci mag ñi amuñu woon wérd wi wala koy amee yaa koy wutali sa bopp yaa koy cooba bareewoo sama baay man mii suñu bakka Madina um, ndeyamam la soxna Aminta Lo ko laajoon baayam ngir bëggoon mu jàppale ko sama baay dem ci moom ba mu ca demee ab diir sëñ bi joxu ko maaxuus sama baay coobare wu dem ci sëñ Mad Lamin Jóob dëgg niyu laaj ko ko sëñ Mad Lamin Jóob ne ko demal ci sëriñ laaj ci ndigal maanaam demal ci Cheikh Murabbi bi laaj ko ci ndigal bu dem suñ si bi ne ko baax na mu dem si sëñ Ibrahima di jox ko boobu it cheikhul la waaye du waxuma ma aada suñu aada sëriñu sa cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya ndax traitement bi bu ci dara bëggee dugg faaw dañ ciy dëpp moom balaa traitement maye jaxasoo waaw loolu it lu am solo la ñu ñu xàmmee cheikhu tarbiya ak cheikhu boo xam ne aada rek la fii laa fekkoon sama bàyyi mu ne fi mu ne fi kon maa ngi fi loolu moom aada aada rek la waaye du du cheikhu tarbiya du cheikhu fi fi orfil musu asufil kiram waaw nañ ko xamee ñoom du loolu lu may nekk sëñ booba kat daa doon cheikhu tarbiya boo xam ne daa wóotu sa bàyyi ca lépp ci yow ci wàllu roo waaw waaw kon moom loolu kon lu am solo la xam naa tomb bi nga xam ne bu am solo la moom it ci biir wërd wi mooy xaddiyatu siraatul faatixi faatixi am na ba tey murid yoo xam ne xamuñu ne siraatul faatixi ñoo ko moom ñoo ko moom waaw validation bu mujj bi ci ñoom la ne salaasalaama wari dal na ko cheikh Mouhamadul Kurdi nga xam ne moo jiitu cheikh Ahmad Tidiane Chérif joxoon na ko mu nekk ab sekkereem xadasalaw sirra ginnaaw ba cheikh Ahmad Tidiane Chérif salaa salaam jox ko nga xamante ne léegi ci buntam la jaar ngir mën a jëriñu ñu ci saatul fàtte xadasalaw sirra ñu dox ba ci suñ jamono yi noonu salaay jox ko Cheikh na léegi ku bëgg lu gaaw ci salaatul faatihi ci buntub Cheikh na Ahmadou Khadim ci nga koy kon noonu kon nuñ salaatul faatihi kon noonu ñoo ko mu mu jéegun xaw ba xam na keneen dinañu waat doom déet salaay salaam mooy joxaat ko ko waaye nuñ mënuñ moom bunt bi noonu ñoo ci ne nekkoon fi ñu toll nii ñoo ci ne Seexna Xadim mooy mooy bëkk néegu bunt ba saatu faatixi kon kon di lu am solo lool ndax moo tax ku ñëw ci kàngam yi ñu mel ne Cheikh Ahmadou Kurdi ak Cheikh Ahmad Tijaan Si Seexna Xadim xadisalaw sirrahum ku dikk suñu borom salaay salaam la ko joxaat la ko nga xamante ne kon loolu kon kooku kon day mel ne ne kon ci sa ci salawaat yi gën a tedd ci yonent bi ali alayhi salaatu wasalaam la lu mel ne salaatul ibrahim yi moom sax na ci sunna waaye bii nag moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko di di joxe di ko joxewaat di ko joxewaat loolu kon nu ngi ko yitte la tax na kon mu di ko yeesal ko kon salaatul faatihi kon bépp bépp julit ndax am na lu ma fàtte woon tuuti muy wérdu wi maaxuus du wérdu murit loolu njuumte la de wérdu julit yi la waaye dafa wax ne yàlla moo ko jox ne ko mu jox ko julit ñi kon nangu rek ci julit ñi ab ab syrien la la ko jëkk a jox dëkk xalab joxaat ko am Mauritanie loolu kon kon moom amut amut amut ne murit la tiyaan la ku soxla rek ñu ñu ñu ñu jox la ko. nga xamante ne seen nekkoon képp koo xam ne da ngay jëfandikoo saatul faatixi bëgg lu lu lu gaaw jaare ko ci Sëñ Tuubaa nekk sa apiyaan nekkal xaadir nekkal loo mën doon waaye da bëgg lu gaaw connexion bi gën a fees nga jaare ko ci silsila Seexuna Xaadim Tijaan bi su ko neexee jaare ko ci silsila eh, Cheikh Ahmad Tijaan Asrif lépp benn la waaye nag daa am lu baax ak lu lu gën ak lu lu gën a gën kooku kon day mel ne kon jamono Cheikh Tidiane Chérif kooku jëloon si silsila ba Cheikh Madou Kurdi baax na de waaye li gën booba mooy mooy Cheikh Ahmad nga jële ci moom jamono ji day mel ne li gën a gën mooy nga jële ko ci silsila Cheikhuna Ahmadul Xadim lu am solo la misaal tey misaal rek saa tur tur paati juróom-ñaar fukk ak ñaar ko koy def ginnaaw gee aw diir rek jombul ñeent fukki fan nga di ko def eh, ñeent fukki fan ginnaaw gee mën naa am dañ ci xam dara danga xam ci njëriñul salaatul faatihi dara te nga tëbboo ko nag ci Cheikhuna Ahmadul Xadim loolu loolu lu kon moom it ak ndiwéne dina lay doon ci jul ñëpp kon salaatul faatixi mi mi ngoog ñu dikkaat ci wérdu wérduwaat wérdu wi xam naa fiqul wérdu wi bu ci ci ci omda naa ko ab bunt spécial boo xamante ne fiqul laa ko tënkee xam naa yàlla mën naa dogal ma móol ko ma joxati ko ci ci téer ci omda móol ko waaye loolu lu matoon a def la nga xam ne nga xam ne tey jombut jombut buñ gisoon ku mën a coobare wu mool ko noonu mool fiq wedd boobu ci jóge ci coom da dana am solo lool euh, ndax ñu bind ko ci wolof ak ak arab ne bind ko ci français moolu ko muy yetti téere yu bokkut kon suñ ko defee kon dana baax lool ndax nit ñi gën gën a xam li ñuy li li ñuy def lu mu lu mu wund fekk mooy digg digg dara waaw loolu it ku ci kon ndax liñ naan wérdu murit ñu koy wax kon ñoom daa mel ne woon xamuñu fiq bi waaye du wérdu murit wérdu jul jul nit ñëpp la baatu murit boobu si suñu tuwaa xamu ko moom tuwaa saa bu waxee murit rek mu ci mu ci jublu concept bi ca école bu ñuy wax baxdaat mu desatu baxdaat suuf yi murid mooy volontaire waaye suñu tubaab dëgg-dëgg li xam mooy al muminul muslimul muhsin kooku xam kooku kooku ay ay namaakaanu rek ñooñu ñooy ñi ànd ak moom ci liggéey bi kon werd wi kon ci xaatim bi de xam naa lu mata fonk la gàtt na ay waxtoom it na mooy tusbaar ak timis muxtaar mi tàmbali tisbaar ba takkusaan takkusaan ba timis di daruur yi daruur yi mooy bu jeexee danga koy fay waaye dootoo yéen a joxe timis ba gee muxtaar gee ba fajar daruur yi loolu di lu am solo maanaam nga xam ne ci xaatim boobu soo amoon soxla na ngaa jàpp julli say ràkka wala jàpp rek wedd ko daal di ñaan soo amoon doom ju tàngat yaramam tàngat nga nga nga jàng ko ëf ko ko ci saasa loola la daal di teggi ko nga xam ne daal luy luy ay njëriñam bari na loo xam ne moom yu ñu mën a lamb la daj ko ndax wird ndax wird de bi nañu xam ne lu mat a xam la lu te lu yomb xam la mooy ne yàlla ci magasin si ni secret ya moo ca tànn werd wi jox ko soppeem bu mag ba muy sallallahu alayhi wasallam mu jox ko soppeem bu mag ba muy Cheikh na Ahmad Khadim kon loo soxla ci dara ci àdduna alaxira mën ngaa def werd wi ñaan ko ci am kon moom werd wi kon moom ab secret la foofu am na fi lu am solo loo xam ne léeg-léeg ab donc ab murid wala ab am yi koo xam ne xam-xamam xóotut ma mën na caa juum tey sëgg ci xaside yi wala alxuraan ji di ko jàng ba fàtte maaxuus déedéet alxuraan ji lu mu tëdd tëdd xaside yi lu mu tëdd tëdd Sëñ Tuubaa moo digal yooyu yëpp waaye bii moom daa wax ne yàlla ma ko jox jàllale ko ci bi ma jëfandikoo ko digal ko aju ci man mu jëfandikoo ko loolu moom amr la ten fii sii suñ bi ko digle kon moom ku amul ngant bala ngaa ittiwoo sa waxtu nga di ko peeseel ci xasida wala alxuraan dëgg nag war ngaa yittewoo maaxuus bi xam ne ab dog la ci biir bis bi boo xamante ne du yàq alxuraan ja du yàq waxtu ci xasida yi loolu it koy kon ndax léeg nga dégg koy laytoo eh, di war dara ko ko xam ne day wér la latif nangami am xaw yi wala nangam ba amul jotugu wér di maaxuus am koy am koy jàng xasida lim bu bari ba amul jotu maaxuus am ko jàng alxuraan lim bu bari ba amul jotu maaxuus fekk na neen yooyu yëpp ay dog rek la la yoo xam ne xaj na ci bis bi maaxuus it la boo xam ne xaj na ci bis bi benn ci ci ñoom du xatal moroom ja kon kon it maa ngi maa ngi soññeewaat képp koo xam ne amoo maaxuus nga dem wuti ko bu dee sëb sëriñ amu ko nga dem wuti ko ndax moom sëñ bi ñu ko digal ne ñu kat suukar am na ci ah, ah, su suukar day digal naa leen ngeen jëfandikoo ko suukar si kon buñ ko fekkee ci ci bitigu sëriñ ba ñu wut ko pagg ko buñ ko fekkoo di seeti beneen bitigum njaayeen ñu dem pagg ko ko kon moom wérde yi moom du doy sëriñ ne amu ko yow nag nga yem ca loola doy la ndax ndigal sëñ bu mag bi mooy ndigal ci fu kon moom eh, werd wi it ki la koy jox na ci am ndigalul jëfe ak joxe loolu mooy tax njëriñ li mën a agsi duñ tuwaa wax na ko ca du samin kooku ak muñ moo kubra ba kooku kooku moom képp ku la ko jox te amu ci usine xaas eh, mu jaral du nga baare képp lay doon waaye ku ci bëggee ay sekk rek ak leer da nga koy tuyante ak góor ñi kon léegi sa sa sëriñ it na na gore moom it na gore ba buñ ko laajoon ne ko maaxuus mu ne ah man kat daa mel ne euh, xam naa kon demal ci diw mu jox la ko misaal euh, daarul moxti am na diw sàngam mu fa jóge woon fekk ma toobaane ne ab sëriñam sàngama ko laa moom la ko laajoon suñu ba ko yuruma ko demal ci diw ñuy waxtaan mu ñëw fa nañu waxtaan mu ne daa bëgg ma jox ko nga ne sëñ bi yuru ko yeneen la yor waaye yurut maxuus loolu it loolu it lu ci am solo la ñi jàpp ne it isnaam bi bi doy na it daa mel ne mooy ab njaayeen bu ubbi woon bitigam ci ab koñ muy bitig bu yees mu daal di yëgle nekkat am naa suukar am njaayeen xel ma soriwut mu dikk ne ko jox ma jox ma suukar mu ne ko ana ana njëgg mu ne ko yaa waxoon ne am nga suukar mu ne ko waaw ne am na suukar waaye nag daa am punt boo koy jaaree ba bañ jot loolu mooy al isnul xaas isnu am mooy bitig bi am na am na suukar waaye nag dafa am fa nga koy jaare nag ba jot ca loolu la ñu tuddee is na xaas loolu moom ci tasawuf lépp la tasawuf moom lépp la maam Cerno nag suñu joxoon na ko ndigal alxuraan ca ca ca leetaram yi wax ko ca dégg ko ca yu bëree bëri yoo xam ne bu ko tëgg ba am ko doon jàng jëkk ndigal li loolu moom ko loolu moom loolu moom loolu moom ku xam dara ci tasawuf xam ko moom moom wedd bi mëne su ko jëfandikoo mukk ci jël jëndi ko ci wala wecci ko jàkkee téere rek di ko jëfandikoo loolu moom du xamul dara dara ci tasawuf rek koy wax moo koy wax moo koy def loolu moom du du du dara moom waaw kum neex nag ci nga doxee ndala neexe ku kum neex ci nga jëfe ko ci islam bi waaw kum neex loolu moom mbir bi mbir ma waaye ci fiqhul wird wi moom loolu mu mu mu nekk kon yett yi boo ci am wérdu wi am nga ko am na nag yu yu xew léegi dégg nit ku xam ne day am bi mu ne léegi kat booba nangam da caa bëgg a boole nangam beneen wérdu wi am ñoo xam ne dañuy jël ñetti wérdu yëpp di di di ko jëfandikoo am na ñu ne ñu ne waaw man de bi ne kon waaye léegi dama bëgg ñu toxo ci booba dem ci ca beneen loola mooy rek ku ci amul isne xaas ndax isne xaas boo boo boo ko ci amee maanaam léegi yow loola benn boo ci yor doy na danaa leen di wax mi mi ngi mel ne ko naan xiraatu qaaluun xiraatu warsh xiraatu xabs yëpp yëpp benn la yëpp alxuraan rek la kon kon njërul di jàllantu ci xiraa bi ak ak xiraa bële la ca ci ca am solo mooy xiraa saxiixa rek nga am ko koy wedd wi noonu la weddul xaatim bi nag moom bokk na ci tawfeex ji ci am mooy ne eh, mbindum Sëñ Tuubaa mi mi ngi ci loxoy nit yi waaw mbindum Sëñ Tuubaa ma xanaa moom xarfan bi xarf ya ca des da nga dégg sax ca xaf fi filaate suñu mu dem ci allahum allahu la ilaha illa huwa al moom mu naan wóoru ko ba xam sax kat ayit ma ne ah kon de suñu mu dem kon moom léegi annoncé ne kon kon xamu ko wóoru ko ne maanaam foofu mat na amatul loolu loolu la dara la loo am solo si si wàllu jub gore na foofu lool gore na ko ku mel ne moom ku toll ne moom wax ne kat allahu la ilaha illa huwa xuma ba xam foofu la moom da daa mat kon nañu soxla woon nañ kon minum minum sëñ ci awraad yi yëpp xarfan bi xarfan ni ko suñu Basiiru waxee ne am na ci awraad yi secret ba mi ngi ci benn baat waaye léegi bu dee allahu la ilaha illa huwa al ja daa mat kon te secret ba nekk ca nekk nekk ci ayatul kursi yi kon mbaa kon e, kuy jëfandikoo weddi woowu kon mbaa da dañ ci am dara wala boo ci amee dara mbaa kon du banque moo tax xaatim moom yàlla dogal na mat na sëkk bi ne ci loxoy donga yi xam naa kilifa yi bu dee ñoom yor nañ weddi yor nañ ci mbindum mbindum Sëriñ bu ñu ko mënoon a baaxee dimbali ñu dara am solo lool def ko ci internet bi sax ñëpp gis ko wala ñu def ko ci euh, exposé ko ci benn maktaba bu benn maktaba Cheikh Khadim bi moo xam ba ci ba ci jumaa ji mag ji wala wala maktaba du Cheikh Mouhamadul Bachir ba ci Darou Minam ku dikk mën koo poto mën koo mën mën koo yóbbu doon na baax lool nga xamante daal maa ngi li ma bëgg a wax dëgg daal mooy ñu joxaati ruux ruux la murid yi ñu joxaat ko yitte mooy secret yi dox ci wérd tigi ba xam dara dox ci wér di tigi ba xam dara tabax yu bari yeek oto yu bari yeek kër kër ji alal ji ñu sotti ko loolu lépp euh, matière rek la duruu de duruu de damaa dem foofu foofu laay misaal eh, xanaa tëjee fa damaa dem ca euh, na baax yi ci ci àll Cheikh Sidiya ànd ak délégation bu jóge bu jóge Touba bañ demee ci guddi gi. ña nga taal seeni ni lamp kii lamp ko ma euh, kii kuraamu ba ci guddi gi ma gis mbooloo mbooloo mu rang sol seen yére yi daraa yi naar yi rek daraa yi baxa yi rek woyof lu lool bi may ne tëll bi ci ëtt bi ñoom ñi nga rang dañu dañu teeru ma jàkk ma xool seen kenn ci ñoom ci ci biir mbooloo ma rang gi ci digg mbooloo mi ma ci misaal ma xool ko daal ni yi kee day bokku ci kee comme doon gaa yi xamuñu ko ma ne kee kee kee day bokkul ca mbooloo ma bañ toogee ba kii gaa yi ne ma ko kat mooy mooy rakki xalifa bi ma ne waaw gaa lan laa ko xàmmee du mbubb sul moom sul mbubb mu ñuy xàmmee baxala la sol ñu ñëpp sol baxa bu woyof waaye léegi nag luñ ko xàmmee moom loolu mooy ruuga ruu giñ ko xàmmee nga xam ne ruu gi ne ci moom te newul ci ay moroomam wala wala mu ëpp ci moom wala ay moroomam loola moo ko distingué ak ña ca des loolu mooy loolu yoon wi de waaye du ay tabax de kooka kooka rakki xalifa ba la ma nga woyoflu moo ñu daal lalal napp yi napp yi buñ dee buñ dee añ wala ñuy ndikki mooy ñëw dañu laal napp yi nekk ko ku tedd ku tedd koo xam ne boo xamee dara xam ne kii mbër la waniwu ko ci dara ci ci ci ak col ak ak këram gu mag gim ne kër gu rëy rëy la da koo génn ndekete mu ngi ci biir kër gi ndekete ab roq la ci jël jox ñu lépp ndekete ndekete foofay këram ba noppee mu jël ci as roq munoo man nee naa fa ba jóge fa keroog bi ñuy dem laa xam ne ci kër gi la ne waaye moo moo moo moo ñu laal nappi ndekki li li reer ba nappi di ñëw bu bu bu bu ba nappi mu dikk ah mbaa kon lépp kii na mbaa dara maa ngi wut nangam nangam tedd tëdd loola mooy ruuxul muridiyya loolu nag laa ragal lool yàlla bu mu daw yàlla bu góor gi daw ndax moom roo bu xasee daw eh, ceram wax duutu amal njëriñ eh, kenn. te bu yàggee it li ci xam lu may yóbbu ca ñàkk ba kon ko ko kon roo roo gi lay wax kon mooy werdul maaxuus mooy mooy werd foofu yi nag it ñu xam ne it werd wi képp kat kenn du ci yem déedéet ay awraat Sëñ Tuubaa yoroon na kurusug junni per ca ca njaareem ku ne xam ne ne kon werdul maaxuus kese Sëñ Mbàkke Jaxate moomee ci njaareem amoon na ci benn maanaam eh, eh, eh, Sëñ Tuubaa axwaan mujj na doon sama wér de firi wut ne kat axwaan ji lay jàng noonu rek am na ñoo xam ne ay ab aayab alxuraan mooy seen wér ci bokk na ci seen awraad yi ñu di ko wér ay lim am ci isni xaas loolu am na wala yu nabi ko misu lu xabiir waaye du ne jël jukki alxuraan bi di di ko jàng rek moom la Sëriñ Tuubaa doon dappetoo moom képp muy wërdam waaye ay awraat yu bari la def kuréel ju junni peram gi eh, leeral na ko ak ak ak xalawatam yi waaw yooyu kon moom eh, bu kenn ci waru ci loolu ndax loolu seetaane eh, ne moo koy naxe nit ñi moo koy naxe nit ñi bëgg ñoo dox suñu diggante ak sunu wér wi nga xam ne ku ci jàpp jàpp nga ca alxurwatul wusqa ne ko si Musaa Ka waxee ne alxurwatul wusqa du sew lu mu sew sew du moom du du dagg kon alxurwatul wusqa dëgg mooy kon euh, alwirdul maxuus moo xam ca bi askaalihi asalaasa wala sax mën naa am sax jumbul sax ñu dem ba ci yàgg ñu gis sax yeneen askaal yu ëpp salaasa yi mën naa am mën naa am ñu mu ëpp ñett yi mën naa am ndax am naa am na jumbul li li nekk ci dënni gaa yi buñ ko génnee mën naa am ñu am yeneen silsila yoo xam ne ci suñu tubaab lay jóge jóge ci yonent bi salaam ju jóge ci suñu borom kon daal ma xaw sa sa ngoog salaatul faatihi ku ci bëgg am connexion bu gaaw gaaw gaaw gaaw lool jamono jii jaaree ko ci Cheikhuna Ahmadul Khadim xaddasallahu sirra moo gën a na gaaw waaye mën nga koo jaare ci keneen Cheikh Ahmad Tijaan Sirif Cheikh Ahmadul Kurdi foo foo ko jaare baax na waaye la gën a gën a gën mooy nga jaare ko ci Sëñ Tuubaa sëñ bi nag waxoon nañu nañu kat doy loo lu doy jafe na waaye yéen li ngeen doy loo doy na waxoon nekk ne ne kat la gën a gën ñëpp duñ ko am la gën a gën ñëpp duñ ko am noonu nag am nañ la gën a gën mooy Cheikhuna al Xadim ak i bagaasam bagaas nag mooy ruuga waaye du du du jëmm ji du du du matière du ay tabax ak i oto kon e, e, ruug murit ga ay waay yàlla nañ ko aar yàlla na dund di wéy yàlla bu mu dee mukk yàlla yàlla bu ñu dee noonu ci jëfandikoo bu ñu koy jëfandikoo ak barkeem ga sax ci noonu sax ci sunu njaboot ba dina ndeytu tukki yàlla na suñu boom eh, jàppale Cheikh Mouhamadul aar ko aar dong yi ñëpp rek ñi nga xam ne bëgg nañ sa sëñ Tuubaa liggéey ba àgg message ba jàll fu nekk eh, jéggi frontières yi bañ a yem ci ak wolofeeku bawal bawale ak sénégalais africain yi waaye na jéggi àdduna bi fu fu ne mu fa amoon na mbokk marocain ca ginnaaw rek ñëw na fi di ab gëstukat di def test doctorat ñu waxtaan ci xuus ci tasawuf waxtaan yu xóot maak moom ak ñoom àndaloon ba sax jox naa ko wér duma xuus ba mi ngi koy jëfandikoo fi ñu toll dem na na Maroc waaye nag lu am solo euh, ba ñu waxtaanee ba kii ne nee ma day wër naa Sénégal ah waaye nag dëgg dëgg de li may dégg fii de man déggu ma ma ma ko feneen de li ma jëlee fii jële ci ma ko feneen mooy kon. jombul la ko gars yi wax ñu ay saxaafa la ñu wax nettali na ca kër nangam bu demee nangam nangam kaa yàlla koy wax mooy saxaafa bi nga xam ne mën na ko fekk ci téere yi waaye waxuñu ko tajribal xadimiya as sirfa tajribal xadimiya al asila sëñ Tuubaa expérience am mystique am waxu waxuñu ko loolu it daa mel ne moom it jàngale woon ko dana baax ci école yi université bi bi nga xam ne ñu ngi koy wax ay ñu amoon ca eh, di jàngale te te Cheikh Cheikh Amadou Khadim su wi ñu koy jàngale gone yi xam ko jël ko ay gone gi ngi jóge fu ne suwal Fadiouth ñu ngay jógee euh, université Dakar ñu ngay jógee Sandaga di ñëw dégg waxtaan yi di di ko jël si euh, waaw lu am solo ba ci sun biir nuñ kilifa yi Mbàkke Mbàkke da nga doomi diw Mbàkke nangam wax ne da koo soxla kaa kon jombul kon mën naam am nga moom jombul mën naa am kon maîtrise wuñ kon wedd wa wala boog joxuñ ko paal buñ ko ko joxoon yaakaar naa kon moom du du génn foofa di ko seeti feneen loolu lépp اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا foofee ca sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhillaahu sallaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haada nisaama xayra noorin qad halaa shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursaliin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi seetaan seen chaîne bii di alxadimiya ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci fan yu màgg yi nga xam ne ci lañu nekk muy fan yi julli korite di ñaan suñu borom nangul nu mboolem suñu jaamu yàlla ci weer wi ñu génn te may nañ ñu fekk ay déwén yu bari ànd ak tal ak ak kàttan ñu fas yéene ñëw rek ak ab tënk ci lu jëm ci njariñ yi alwirdul maxuuf muy wér bi nga xam ne moom la sunu borom baaxee sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mu jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy wér woo xam ne sëriñ baa ngi ko jot ci fan yi ñu nekk ci guddi ñaar fukk ak juróom ñaar ci weeru koor eh, gannaaw bi mu tongaate ab diir nag ba ci juróomi fan ci weeru sawaal ci la ko génne jox ko taalibe yi muy wirdu waa am solo woo xam ne jar na di waxtaane ak di fàttale ngir ñëpp mën cee jariñu ndax day loo xam ne xëy na ñu bëri dañ koo umpalee waaye bañ ko xamoon xam li ci nekk ci ay njariñ danañ ko fonk danañ ko yittewoo kon tey waxtaan wi rek mi ngi jëm ci njariñi wirdu wi nga xam ne mooy wirdu sëriñ bi ni mu ko waxee woon léegi <clears throat> xam naa sax ba ñoo ñëw ci loolu dañuy njëkk wax ci njariñul tudd yàlla ndax ku ne xam na ne tudd yàlla day lu mënta ñàkk ci am jullit ndax da koy Eh, dimbalee ci digganteem ak yàlla waaye di ko mësal ci seytaane ak yu bëree bëri yoo xam ne day yàq moo tax sëriñ bi waxoon ne lépp lépp lépp lu ab murit di bëril tudd yàlla moo ci gën lépp loo xam ne ab murit war na koo bëril nga xam ne tudd yàlla moo ca war a jiitoo hmm. amma dawaamu dikri fa huwa akbaru fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yukthiru te loolu suñu borom buñ delloo ci alxuraan dañu gis ne eh, li muy tudd li muy digle ñu tudd yàlla da teg nañ koy bareel kon day mel ni buñ nee tudd yàlla ci alxuraan mi ngi sant mi ngi sant bareel buñ demee ci alxuraan dañ fekk aayat yu bari yoo xam ne suñu borom day wax ne na ngeen tudd yàlla waaye di ko baril lool. yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kathira wa sabixahu bukratan wa asila muy aayar yoo xam ne bëri na loolu suñ ko doon lim du a jeex kon loolu day wane ne kon euh, suñ borom dafa digle bu baax ñu koy tudd waaye di ko bari li jamono junne ak saa moo tax mbooleem ñi nga xam ne ay nit yàlla lañ fonk tudd yàlla lool euh, di ko bàyyi xel ndax mooy ni ma ko waxee woon léegi rek mooy li nga xam ne moo leen dimbale di leen musal ci seytaane bi nga xam ne sëriñ bi wax na ne bokk na ci ngànnaay yi ñu ko mën a xeexe mooy bëri looy tudd yàlla kon ki bëri looy tudd yàlla day nekk ngànnaayam digganteem ak seytaane ba ko mën a lor su defee nag euh, werdu wii di werdu sëriñ bi léppam gëndul tudd yàlla te boo xoolee mboolem lim làmboo lépp mënees na ko delloo ci ay delluwaay yu wér ci lislaam Euh, moo xam yi nga xam ne moo composé muy basmala ak lu mel ne xasbala ak istixfaar euh, ak lu mel ne julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, li ñuy wax hayla la mooy laa mu illa allah muhammadu rasulullah daanaka yooyu boo xoolee bokk ne ci ëpp solo te yooyu yëpp benn bu ci nekk rek mënees na ko delloo ci ay delluwaay yu leer naka noonu it benn benn bu nekk ci bu yooyu benn bu ne ci yooyu am na njëriñul boppam maanaam soo ko benn bu ne am na njëriñul boppam loo xam ne bokkut ak boo ko boolee lépp mu nekk ci benn werd lu mel ne basmala ak lu mel ne euh, takbir mooy allahu akbar ak lu mel ne aoudu billahi min ashaytani lu mel ne alhamdulilahi rabbil alamin ak julli ci yonante bi ak xasbunallah wa ni'mal wakil yooyu yépp ak jéggalu yàlla benn bu ci ne boo demee ca Masaalikul Jinaan sëñ bi leeral na fa seeni njëriñ nga xam ne kon day mel boo ko beree benn bu am na njëriñul boppam rawatina soo ko mboolee nag mu nekk benn mu nekk ci benn werd mooy li mu wax ne wa adamu basmalatan wa xawqala takbiratan azbalatan wa xamdala qul wa salaatan wa kadaka xasbala wa mithluha istigfaaratun muttasila mun kon màggal nañ lool wax bismillahi rahmaani rahim wala quwata illa billah ak lu mel ne allahu akbar ak lu mel ne aoudu billahi min ashaytaani rajim ak alhamdulilahi rabbil alamin naka noonu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wax xasbuna allah wa ni'mal wakil naka noonu it di wax astaghfirullah al azim kon daanaka boo xoolee wirdu wi génnut eh, yooyu ma ma tudd léegi mu ñëw wax benn bu lan mooy njariñam mu ne wal kullu minhunna laha fawaidu maxsuusatun biha liman yujaahidu mu ne benn bu ne ci yooyu rek am na ay njariñi boppam yum jagoo waaw wal kullu minhunna laha asraaru kachafaha fi suxufi al axbaaru mu ne benn benn bu ci yooyu am na ay sekkare yoo xam ne waroom xam-xam yi wax nañ ko ci seeni téere wal kullu minha qad bada laha thamar fa kullu man lahu jana naaral watar mu ne benn bu ne ci yooyu ba tey am na meññit am na jeexit joo xam ne moo ci juddoo soo ko taqoo mu ne kon képp ko xam ne taqoo na yooyu dara am paju aajo fa kullu man lahu jana naaral watar maanaam ku ku watt meññan mi sa aajo faju maanaam ku ko jëfe daal ba am ca lañ cee digge sa aajo faju léegi mu tàmbalee ci wax benn par benn wax ne fa samru tahlili tawxidun sama lil aarifina qaalahu man alima mu ne meññetum wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mooy dalay may nga am tawxid nga am tawxid wétal yàlla xam ne yàlla rek moom ngay jàpp yàlla ndax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mooy yàlla rek mooy yàlla waaye muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko kon meññetam mooy day saxal tawxid ci xolub Eh, jaamu yàlla bi moo wax moo wax ne ba tey ne eh, thamru takbirin wa hamdin xad jala taadimuhu wa shukruhu jalla ala mu ne meññatum takbir mooy allahu akbar ak alhamdulillah mu ne seen meññit mooy day waral nit ki yëg màggal yàlla ci xolam ak sant yàlla ci xolam maanaam kiy bëril ñaari baat yooyu day dugal ci xolam màggal yàlla ak sant yàlla wa quwatu rajaay wa taxbibu fa inna kulla muxsinin maxbubu ba tey day jural nit ki yaakaar ju dëgga ci sunu borom ak sopp sunu borom ndax mu ne képp kuy rafetal jëm ci nit faaw mu sopp la te ginnaaw sunu borom moom moo gën a moo dàq e, def lu baax ñëpp kon faaw ki muy defal lu baax war na ko yëg war koo sant te moo ci gën a yaay Euh, mu ne nag bu dee lu mel ne xawqa la muy laa xawla wala quwata illa billah ak lu mel ne xasba la muy xasbunallah wa nixma wakil mu ne ama alladi yura thimar al awqala euh, inda al jamixi wa tafwidi ilayhi wa thiqatu xud xaridi mu ne kon meññetam laa xawla wala quwata illa billah ak xasbunallah mu day day jural nit ki maanaam wakkiirlu ci yàlla ak bàyyee mbir yi yàlla ak ak dëgërloo yàlla waaw kon ku bari baat yooyu di ko wax lam koy jural mooy wakiilu ci yàlla gu mat sëkk ak doyloo yàlla ak jox léppam yàlla bu dee nag julli ci yonent bi sallallahu alayhi moom ñëpp xam nañ ay njëriñam moo tax mu wax ne amma salaatuna ala nabii alayhi azka salawaati fa shiddatu shawqi lahu maa ittibaa sunnatihi thamratuha wal intifaa kon mu ne bu dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay njëriñam bokk na ca mooy day tax nit ki bëgg yonente bi sallallahu alayhi da koy jural bëgg yonente bi waaye da koy jural topp sunnaam naka noonu ci loolu lay mën a jariñoo ndax saa yoo bëggee yonente bi rek topp sunnaam mooy kon yow yaa ngi ci yoonu jariñoo kon li muy jural nit ki mooy bëgg bëgg yonente bi ak topp sunnaam moom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ne wa aytuma staghfarta rabbaka al ahad tajni istiqamatan ala abad maa maa maa fa dalika mu kon bu dee eh, njëgalu yàlla la ma lay jural mooy ak njub mooy sax ci ragal yàlla ndax day wane ne kon yaa ngi bàyyi xel yàlla di wane ne ab jaam nga kon kii bëril di jégalu yàlla la mu koy jural mooy ak ragal yàlla ak sax ci ragal yàlla waaye nag mu ne faaw nga sa nga sàmmonteeg tuub ndax tuub daam ay sart ni mu ko leerale ci yeneen téere yi kon gis nga ne nag mbooleem yi ma wax fi yëpp len lu ci nekk am na njëriñu boppam mu ne nag am na benn baat boo xam ne moo boole yooyu yëpp mu ne lakin hada kullahu majmuu fi fi dikri fardin qaalahu lmatbuu wa huwa laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu arsalahu mawlaahu salla alayhi llahu thumma sallama wa alihi wa sahbihi wa karrama li annahu l wa nihaaya ilayhi yantahi zawul hidaaya kon mu ne mbooleem yi ma wax fi yépp am na benn baat bu leen boole muy la ilaha illa allah muhammadu xam ne kon day mel ne baat bi amu na mbooleem yi ma fi wax léegi ci ay ci njëriñ ak ay secret te it ku nga xam ne baat bi ñëw na ci wérdu bi eh, kon day day mel ne kon mbooleem daal xeeti wérdu yu baax yëpp rek daa daje ci wérdu sëriñ bi ni alwidu almaxuuf kon loolu dañ ko doon rek ngir ngir leeral ne yi compose wird wi lenn lu ci nekk rek am na njariñul boppam waaye kon buñ ko dajalee ci wenn wird loolu day gën a day gën a am solo day gën a rëy day gën a bëri njëriñ léegi nag bu ñëwee ci yenn wird yenn yi nga xam ne ay njëriñ la ay ay la ci wird wi xam naa dañ koy tënk rek ndax bëri na lool waaye dañ ci tënk yenn rek ngir wane ne euh, wird la woo xam ne ëpp naa sàggane kenn ku ne war naa feex ba di ko def di sàmmante sart ya ndax li ci sëriñ bi diggee dafa rëy lool dafa kawe lool euh, bokk na ci njariñ yooyu mooy dafa wax ne maa ngi leen maa ngi leen di bëggal ne maa ngi leen di bëggal ne kat yàlla dama da leen da leen a jagleel loo xam ne ñu bari ci waa jamono dana leen ci ñee kon na ngeen ci sant yàlla waaw te te mooy mooy wërd wi di ar wirdul maxuus kon yàlla da koo jagleel waa jam waa waa kër sëriñ bi te ñu bari bëggoon ko te ñu ko am mu ne kon na ngeen ci sant yàlla te xam ne kat lu yàlla lu leen yàlla jagleel la ba tey naka noonu lay waxee ne it eh, lay ñaanale képp kuy jëfandikoo werd wi sunu borom defal ko tuyaaba joo xam ne du jeex uktub liman axada wirdi yaa karim kon ñaanu sëriñ bi rek képp kuy jëfandikoo wirdi bi daal yow suñu borom yàlla na ko may tuyaaba joo xam ne du jeex ba faw kon loolu beneen njariñ la ba tey ci ñaan yi nga xam ne moom la ñuy ñaan laata nga jàng wirdi wi wax na ci ne yow yàlla yàlla nga may képp kuy jëfandikoo wirdi bi loo xam ne kudul moom dana ko ñëwee moo xam ci àdduna la ak ci àlaaxira tey loolu lu lu lu am solo tere yi waaw mooy li mu wax ne hab li ma na amila bi hadal wirdi maa yaxbituhu bihi xayruhu fi dunia wal axira képp koo xam ne daal mi ngi jëfandikoo wirdi yow yàlla suñu borom yàlla na ko may loo xam ne ku dul moom dana ko ñëwee fii ci àdduna ak ci àlaaxira kon loolu ba tey beneen beneen njëriñ la ba tey na ne eh, bokk na ci njëriñu wirdi wi mooy képp koo xam ne taxaw na ak moom képp ku taxaw moom euh, yàlla da koy musal ci texee di yàlla da koy musal ci texee di te faw daan ci aw yiw ak jàmm nekk muumin muslim muhsin kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xam ne kenn ku ne mën koo ñàkk kon nee na képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo wirdi wi yàlla dalay musul ci texee di te da ci jàmm ju sëkk ak wiiw te it da nekk muumin mooy ku gëm ku gëm yàlla tey jëfe santaane yàlla yi tey rafetal jaamu yàlla ga mooy imaan ak islaam ak ihsaan kon ba tey loolu beneen njëriñ la boo xam ne bu ci amoon rek mu di mu di sëkk ba tey waxaat na ne képp ku taxaw werdi wi eh, dana tàbbi àjjana te bu liggéey kenn du ko xisaab waaw ah, képp ku taxaw werdi wi daal di di ko jëfandikoo ak sarte yi ci aju dana texe bu ëllëgee te kenn du ko xisaab te it suñu borom dana ko musal ci musibay àdduna ak alaaxira te it euh, noonu noonu yàlla bi gën a mag muy seytaane du ko jege fenn waaw ndax mu ne wirdu wi kat mën naa doy waaye wenn wirdu mënu ko wuutu maanaam doy na sëkk boo ko jàppee mën naa wuutu yëpp waaye weneen wirdu mënu ko wuutu loolu wax na ko ci ay mbindam wax ne inna man waadaba alayhi maa shurutihi yadxulu aljanna bi gayri xisaabin wala iqaab wa yamnacahu llaahu min almakaarihi fi dunya wal axira wala yaqrubuhu almarid wa hada alwirda min alsharafi annahu yugni anhu wirdun wird wa wird mooy ne ku ci jàpp daal mën nga mën nga cee yem du ngay jël weneen wird waaye weneen wird mën ko wuutu ba tey ba tey waxaat na ne képp ku jël wérdi wi di ko jëfandikoo danañ jëriñu njëriñ loo xam ne ku dul moom du ko am képp ku jël wérdi wi di ko jëfandikoo yàlla dana ko ñu loo xam ne ku moom du ko am man axada wirdi hada yantafiu bihi intifaan laa yura li gayri kon loolu am na solo lu mat a bàyyi xel la moo tax sëriñ Basiiru Mbàkke radiallahu anhu waaye na ci ay way yu am solo di ci leeral njariñu werd wi ngir di ko bàyyiloo xel nit ñi ngir ñu fonk ko xam ne kat ëpp naa sàggane ndax li ci ne ci ay njariñ bariwaay bi foog takk weesu na ko mooy li mu wax ne euh, yaara imal kamaali fi saada min turuqil mashaayixi thalaatha tariqati sheyqi al imaami al jiili wa shaadaliyi al xaaiji tafdili thumma abil xabaasi faxril kummali man xukmuhum fil qasdi xukmul awali maa qasaisa li kullin yaxtawi biha tariquhu ixtisaasan xadru wi faltasiman tariqata al abdi alxadim man xasahu bi irtiha rabul qadim li annahu li kulli wirdin sirru fi kilmatin fihi hadaaka sirru wala hadaaka albarru fi kilmatin fihi hadaaka albarru di wane ne kat euh, maa ngi lay dénk nga taqoo yoonu sëriñ bii di sëriñ Touba ndax su man daf koo jagle wirdu boo xam ne wirdu bu amee ay sakare la bu bëri sakare dem ba wax ne kat euh, moom wirdu wi fa jamaal a wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nixma murtaqa mu ne mbooleem wirdu yi fi jaaroon yëpp moom wirdu bi daa dajale seeni seeni sakare ba sax yokkaat ci loo xam ne néewtoon ci wirdu yooyu kon fa in axadta wirdahu axadta wirdal jamii la taxaafu kapta kon day mel boo ci amee rek mel mel nga ne ku boole mboolem wird yi nga xam ne moo jiitu woon wirdu sëriñ bi wal waada minhumu taxuusu thumma la xawfa alayka min waidin musjala li annahu li tarki kulliyan wa fa bil qasaisi qaman kon boo ci amee rek da nga am mbooleem tuyaabay mbooleem secret yi nga xam ne moo newoon ci wérdi yi jiitu woon tey it moo ne boo ci yemee doo ragal lenn luñ lay ko wala yu mel noonu kon dañuy gis ne kon eh, loolu yëpp ay njëriñ la yoo xam ne wérdi wii di wérdul maaxuus lamboo na ko ba tey mën nañ cee yokkaat eh, lu mel ne li sunu mbokk yi nekk Mauritanie di wax ne suñu mbokk naar gànnaar yi seetlu nañ ci ne ñi koy jëfandikoo yàlla da leen fanu gudd ak. ak ak barke loolu it euh, secret la boo xam ne xëy na maanaam expérience moo koy moo moo koy wone mooy ñoo xam ne daal jëfandikoo nañ ko ba gis ci ne am na njariñ yoo xam ne daf cay juddoo mooy bokk na ca day maye gudd fan waaye day maye it euh, barke kon yooyu yëpp day wane njëriñu wérdul maxuus xam naa bu ko doon lim mën na mën naa bëri lool. waaw moo tax. Euh, sëriñ bi naan soññee lool ci taalibe yi ñu fonk wird wi di ko jëfandikoo moo tax mu waxoon ne digal naa mboolem ñu aju ci man moo xam góor lañ wala jigéen ñu koy jëfandikoo ngir jëm yàlla diirum ñu ne ci àdduna waaw te bañ koo bàyyi bañ koo sàggane kon day mel ne ndigalu sëriñ bi la ndigal loo xam ne dafa jëm ci mboolem taalibe wax ne digal naa leen yéen mboolem taalibe yi moo xam góor la wala jigéen noonu la ko waxee uh, wastaamalahu wa amara almutaalliqina walmutaalliqaati bi adyaalihi li wajhi llahi taala alkarim bi isticmaalihi muddata mukthihim wa mukthihinna fi dunia bila tafritin anhu abadan kon day mel ne bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen ñëpp la boole ne nañ koy jëfandikoo diirub diirub ñu ne ci àdduna te bañ koo sàggane kon loolu ndigalu sëriñ bi la loo xam ne bu bu dul dara it jëfe ndigalu sëriñ bi war naa tax ñu koy jëfandikoo ba tey moo waxaat ne eh, ku ñu wax alxalawi yi wax na ca téeram bi nafaat almiskiya eh, ne sëriñ bi wax na ne jox naa leen wér wii kat ngir jëm yàlla ngir jëm yàlla suñu borom kon na ngeen ko téye bu dëgër dëgër na ko téye bu dëgër dëgër daanaka képp koo xam ne amoon na wérdu koo xam ne daana ko def lu jiitu werdu wii Eh, na ko booleeg moom kon day nekk leer ci kaw ak leer waaye koo xam ne nag mënut a boole ñaar yëpp na yem ci wérdu wi rek kon loolu ba tey day wane ne eh, sëriñ bi dafa dig la ñu fonk ko bañ ko sàggane mooy li mu wax ne aataytukum hada al wirda li wajhi llahi taala al karim fa xuduhu li wajhi llahi taala al karim thumma qaal xuduhu bi quwa neen ko jël ci doole neen ko jël bu baax a baax wa mën kaana minkum indahu wirdun xamlahu wa xadar ala jamiahi maahu fa huwa nuurun ala nuur wa in lam yaqdir iqtasara ala hadal wird alsharif kon képp ku amoon weneen wird boo xam ne daana ko jëfandikoo su ko mënee boole moo gën ndax day nekk rek lu baax ci kaw lu baax waaye su ko mënul nag na yem ci wird wi te xam ne doy na sëkk comme ni ko ni ko waxoon ci ginnaaw ndax boo ci yemee man naa wecc weneen wird waaye weneen wird mën ko wecc kon loolu yëpp yooyu yëpp bu ñu ko dee bu ñu ko dee wax lañ ci jublu rek mooy gën a fàttali suñu bopp ak mbokki taalibe yi ñu gën a xamaat ne lu baax moom du doy te ginnaaw lii sëñ bi la koy yàlla suñu borom jagleel muy loo xam ne ñu bari bëggoon nañ ko te amuñu ko kon bu ñu ko yàlla baaxee war nañ koo fonk lool di ko bàyyi xel di ko jëfandikoo ndax lu waay xat-xat lu waay ñàkk-ñàkk jot yaa ngi def yoo xam ne eh, wird bi moo ko gën a ñor moo ko gën a ëpp solo te soo nosee sa waxtu rek man ko organiser man nga cee def wird wi te it wax dëgg bëriwul lool lool bari goo xam ne mën naa yàq say yitte waaw ndax am na ñetti façon ñetti façon yoo xam ne wird wi am na ko am na ñaar yu xaw a gudd waaye am na boo xam ne moo gën a gàtt nga xam ne yow mi nga xam ne say soxla mën naa am euh, doo ci am temps bu bari mën ngay jël wirdu alxaatim nga xam ne moom boo gaawee ba gaaw mën nga ko def ci dix dix minutes wala sax mën na ko yées te ku ne xam ne di minutes moom wax dëgg lu waaye xat-xat mën na ko bokk ci waxtoom kon daal ñu ngi yam foofu di jéggalu di ñaan suñu borom defal na tawfiq ban jëfee wérdu wi ci ni ko sëriñ bi santaane ndax lépp aw yiw la àdduna ak alaaxira wasalaamaaleykum wa ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaafu ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu salaa wa sallama kama ahlaahu في آله وصحبه وجعلا هذا النسام خير نور قد علا xam nañu ne ci fan yi ñu tollu dafa am taarix bu mu am ak yoonu Sëriñ Tuuba ak dundam radiyallahu taala anhu ndax ci ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñett téeméer ñaar fukk ak muy mille trois cent vingt et ci gàddaay gi wala tolloog mille neuf cent trois wala eh, ci la sëriñ bi jotoon wirdu boppam yi ñu tuddee al wirdul maxuus min allahi taala bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam loolu nekk mbir mu màgg mm, ci moom màgg lool itam ci lislaam màgg lool ci taalibe yépp ak mboolem ñi nga xam ne dox jëm ci sunu boroom yitteel na leen kon bi mu jotee wérdu wi ci jële ko ci mu jóge ci boroomam yonent bi sallallahu alayhi joxal ko ko boppam ci lu dul ay nelaw ci bisub àjjuma ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru koor ci at moom ma wax ba ñu waree ba ca juróomeelu fan ba di àjjuma ba tey ci la ko njëkk génne génne jox ko taalibe yi ki ko njëkk a jox ci ñoom mooy taalibe mu ñuy wax Ahmad eh, ibnu Hasan ibnu Hamad yi bokk ci banu Daymaan loolu nag am bokki taalibe yoo xam ne eh, dañ ko bëgg a fàttaliku bëgg ko firndeel ci ay jataay waxtaan ngir bëgg ñu gën a bàyyiwaat xel wérdi wi gën koo joxaat yitte gën ci farlu moo tax ñu bëgg amal jataay bi mu dugg ci biir fàttaliku googu ngir mu nekk ab soññee nekk itam ak euh, laabirante akub fàttalante foofee jasar saara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hen dallaahi mu jox ko seex bamba biis nillaahi ñëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ñëpp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu salaa wa sallama kama ahlaahu في آله وصحبه وجعلا هذا النسام خير نور قد هلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بقي نجلين دنيا دين زيار دي لا ينتبير أينتي lu am solo loo xam ne ndigalul sëriñ bu mag bee radiyallahu anhu lu mu jox mboolem taalibe yi muy jëfandikoo wird wi ko yàlla jegleel muy al wirdul maxuudu min allahi taala bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa doon loo xam ne dafa am solo ci dundug doomu aadama dundug jullit bi ndax loo xam ne ab denc la ëllëg Sëriñ Tuubaa dafa wax ci masaalikul jinaan ne koo xam ne amul werdu wenn woo xam ne da koo saxal waxtu wu nekk ma ngay sànq waxtoom kooku ëllëg bu suñ boroom dee fay nit ñi moom du am lu may aw naqar ak njàqare aku tiis aku ay ndax sànq waxtu ku ko def danga ko rëccu ëllëg te dundal waxtu nag la ca gën mooy saxal aw werdu jaam bi day e, nekk koo xam ne munta ñàkk borom subhanahu wa taala fu mu toll tamit daa war di ci borom subhanahu wa taala moo tax ku la gën di tëbblu ci yàlla moo lay gën a dund ak ruux waaye ku la gën a sori tëbblu ci yàlla moo la gën a dee ak ruux moo la gën a màggal ak ruux yàlla musal loolu moo tax gaa ñu baax naka jekk dañuy xënte woo seen digg seen borom subhanahu wa taala euh, jamono bu ci ne ñuy dellu ci moom mu toog ay waxtu yoo xam ne su waxtu jotee rek ñu dellu ca loola moo xam njàng alquran la moo xam ay azkar la moo xam lu mën a doon loolu nag bokk na ci njëriñu wér yi nga xam ne moom la sufiyanke yor ci anam gu matale ndax aw yiw dëggantaan ni bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci gën mooy loo saxal te nit ki mënta saxal mbir lu may da ko wutal waxtu boo xam saa yu ñëwee mu mu def ko loolu moo tax nag naka jekk góor yàlla yi dañuy fonk wérdu yor ko mu ne loo xam ne leen lëkkale ak borom subhanahu wa taala dimbu bu dimbu buum boo xam ne mu leen jokkale wala di tiwoo boo xam ne moom ci lañuy xëcc am ndox muy ñëw tuwa bi lépp lu ko dog wala lépp lu ko fatt euh, duñ ci am sago ci dañal ko ci sekkarti ko mbokk yi xam nañu wérdu ci tasawuf rukkunun rakiin la maanaa tasawuf du wér du dëgër du sax te àndut ak wérd sëriñ mag bi xam anhu dafa jóg rek soobu yoonu mbaax wérdu yëpp mu topp leen di ci jaamu boromam sàkku ngërëmul ña ko yàlla jaare ci ñoom ba am seen ngërëm ba egg ci boromam ba am ndigal ci yonent bi alayhi sunu borom jox ko wërdu boppam ci gànnaar mu yabal mu yónnee ko ci réew mi yónnee ko kilifa yi jox ci ñépp ndigal. ba ko jotee ci gànnaar nga génne ko jox ko naar boobu mu ko mu ko joxoon bind lekk suñu am satu jaxate da koo yónnee mag ñi kam ko njëkkee nag mooy magam sañ Mor Jaara diggante murid yëpp nañ koy jëfandikoo mag ñi tamit fonkoon ko lool ndax wëyal ndigalu Sëriñ Tuubaa boobu noonu ba ci mag ñi ñi fi nekk nii sax ba ci sëñ Muntaxaa mi sax ak xalifa ko jiitu woon ku mel ne sëñ Saaliw sëñ Abdul Qaadir sëñ Abibu Mbàkke ak mag ñi leen jiitu woon ñun ñëpp naka jëkk dañ koo xante woo fonk ko lool waaye muy lu am solo tamit loo xam ne ñi ko saxal ñëpp yëg nañ loolu ci seen xol wérdu képp ko saxal rawatina nga di ko ba ñuy wax di ma yem ci max maxnaa yi kese eh, di yem ci baat yi kese waaye di max naa yi ngay wax bàyyi xel na kat yaa ngi ci sa sa kanam borom subhanahu wa taala moom ngay bàkk ay wax ay ngay wax loolu day feeñ ci sa dund feeñ ci sa jëflante waaye fal ceew yi tey àdduna ak i njàqareem ak i tiis tiisam ngay wéetlu ko sa borom subhanahu wa taala loolu ku sax ji wéetlu tuuti danga ko dund da ko yëg ci sa xol. wérdul maaxuus di wérd wi nga xam ne moo jóge ci suñu borom subhanahu wa taala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci cheikhul xadim radiallahu anhu sëriñ bi jot ci di ko jëfandikoo jox ko ak njabootam ngir ñu di ko jëfandikoo jox lañ ci ndigal ak bépp jullit bu bëgg rek. dafa doon wérd boo xam ne. bu tedd la sëriñ di wax ci lu bari euh, santaane ko it santaane goo xam ne ñëpp la maasale mboolem ñi aju ci moom di ay góor ak i jigéen mag ak i ndaw yëpp di ko maasale ko def lu jara yitte wala loo xam ne euh, képp ku bëgg lu baax rek war ngaa jéem a dem gëstu ji ko euh, gëstu nan lañ koy jëfandikoo lan moo di ay sartam wérdu maaxuus mooy lan wérdu maaxuus lu ñuy jàng la loo xam ne taalibe bi taalibe bi koy jëfandikoo da ko war di jàng da koy jàng bis bu set ñaari yoon benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi loolu mooy ay waxtoom benn yoon bu jullee suba ba noppi benn yoon bu jullee tàkkusaan ba noppi donte waxtu yi mën naa gën a yaatu selon nit ki waxtoom ak liggéeyam loolu mooy waxtu yi ñaari yoon nañ koy def ci bis suba ak ngoon ay baat lay ñuy jàng Cheikhul Khadim moo ko digal mbooleem ay taalibeem dañu di ko jëfandikoo tey soññ képp ku ko man mu jël al wirdul te sàmmonteeg sart yi te di ko saxal bu kenn wax nag ne dafa sart sart dafa jafe lenn lu jafe amut ci kanam pas-pas ak dogu ak yitte ju kawe dara jafewut sart yi nag du yu jafe ndax amul ci luñ sàkkuwut ci ab jullit bu ne li ci nur lu jafe soo ko saxaloon tuuti da nga yëg ne lu jafe nekku ci kon ndigalu sëriñ bee ñu ngi koy bàyyiloo bàyyiloo xel mbokk jullit yépp ñu fonk ko euh, di ko jëfandikoo waaye nag di ci xeer seen njaboot di jéem a tënku ci sarte yi yi mu àndal ndax tënku ci sarte yi mooy daanaka da lay gétan ci mbaax ndax fu baax ngay nekk ñu baax ngay jaxasoo waxtu wu ne lu baax ngay def julli mbooloo gi mu àndal jàng alxuraan gi mu àndal moytuwul amul njëriñ ñu àndal eh, yi baax yi mu àndal ku képp ku ko saxal danga gën say morom kon nag yiw la woo xam ne sëriñ bi daa bëgg ñu gën mu tegal ñu loo xam ne buñ ci sóoboo incha allah taala danañ gën. sart it nañ ko waxee jafewut te itam du ne nit kii day mën a sàmmanteeg yëpp ci njëlbeen gi door a tàmbalee jëfandikoo wérati bu fekkee ci njëlbeen gi it. munta matal sart yëpp it du tee mu tàmbali ko tey jéem matal sart yi bu ko tàmbalee rek di góorgóorlu ngeen matal ko rek yàlla dana ko dimbale ba mën koo matal. sart yi dafa am ay façon te du te wuute waaye ginnaaw ci tënk lañ nekk sart yi ci munta ñàkk ñett rek la bu njëkk bi mooy ku soxla wérdo yi da koy jëli ci ndigal ñaareel bi mooy ku koy jox day am ndigalul jox ko ko ñetteel bi mooy bu ci jotee da koy jëfandikoo ñaar yoon ci bis bu ne ñett yi ñett sart yi. ku ko mën a matale rek xamal ne man ngaa jël wér dama xoos jël ko ci ndigal ki la ko jox sañ la ko jox nga di ko def ñaari yoon ci bis bi am na yeneen charte yu ci tege nag yoo xam ne lislaam a ko digal jullit ñëpp ngir ñu war koo def wérdu wi ñëw nag feddali ko ngir bëgg taalibe yi gën fonk diine ni ko ngeen ko xamee ci Cheikh Xadim radiyallaahu anhu lépp lu jëm ci diine day bëgg ñu gën koo fonk charte yooyu nag bu jullit bi bu taalibe bi matalee ñett yee yi ci des da ciy def kem kàttanam lu mu mën ci charte yi mu di ko def bu mënee lu ko ëpp sax mu def ko lu mu ci mën mu ko def lu mu ci mënut mu di ko yéene kon loolu rek mooy charte wetu maaxuus ndax bunt boobu it bëri na laaj yi lu ñu koy laaj charte yi charte yi waaye charte yi noonu képp la demee ñett yooyu mooy yi ci mënta ñàkk yi ci des nag taalibe bi da cay nekk di ci góorgóorlu bokk na ca muut àndandoo yu baax loolu lislaam a ko digle bokk na ca muy fexe ba xam lu ay farataam ci diine loolu lislaam a ko digle bokk na ca muy jàng alxuraan bis bu set kem kattanam tënkuñu ko fenn loolu lislaam a ko digle bokk na ci guddi ku jot mu la fukki rakka comme ni ñu koy defee ci koor gi loolu lislaam ma ko digle bu ko mënul mu def li man ba ba mu koy man biir julli gi lu mu man mu jàng ko ca donte ñetti lixlaas la Cheikhul Xadim wax bokk na ca charte yi it euh, mu sax ci tuub te wattandiku mboolem bàkkaar yu ma yi yooyu it lislaam ma ko digle ñi dul murit sax sañu ñoo xëtt ndigal yooyu noonu kon loolu mooy charte yi bokk ci bunt bi nga xam ne it seytaan dina ci jaar ngir tiital nit ñi ba dañu xam lu doon kon loolu mooy charte wirdu mu ne képp koo xam ne sax na ci wirdu wi fexe di góor góorgóorlu ci matal sart yi kooku dana dugg àjjana ca kenn du ko xisaab kenn du ko mbugal loolu jar na kenn ku nekk gën koo fonk gën koy jëfandikoo wérdu bii nag moom day wérdu woo xam ne Cheikhul Xadim da ko fonkoon lool digal digal ko mag ñi ba tàyyi waaye wérdu yi doon wérdu am woo xam tamit day wérdu woo xam ne bu matale la jaamic la booy xool di gëstu ci wurdu suufiyanke yi jiitu woon sëriñ si borom tariqa yi ku ci na sa wurdu ñaar day am ci loo xam ci li gën a jëm ñee masal ci istixfaar ñu ci salaatu ala nabi ñii ci tasbihaat yi waaye wir moo xam sama wir boo xam ne moom lépp danga ko cay fekk lépp loo xam ne ñaar da ngay dem ci wirdu sàngam mu am ca lenn la kese moom da koy fekk ci lépp léegi la masal wér nga dem fekk ci benn mbir masala mu yem daanaka muy lu jëm ci listixfaar boo ñëwee fekk ko fi léegi nga dem ci wér fekk listixfaar fekk sa salaatal nabi boo ñëwee ñaar yi ba da nga fekk ko ci wér maxuus waaye nag loo xam day dajale lépp moom ci wér maxuus maxuus rek lañ ko lañ lañ lañ ko gisee kon lu am solo lool ñëpp gën koo fankaat ndax ndigalu Cheikhul Xadim la tey jaam bi ni ma ko waxoon sànq rek munta am waxtu yoo xam da ciy dellu ci borom subhanahu wa taala ca la li ko ciy may gën li ko ciy dimbale moom bañ koy sàggane waxtu yu saa yu ñëwee ba tey mu def ko mooy wutal ko waxtu sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek ahabul amali ilallaahi adwamuhu man kaamil ndax sa waxtu may na la ko gin woowu nga def nga def ko mu gën a mat ku ko mënut tamit man xafiif xafiif booyeef bi baat arab bu ni koy firee bopp waaye di teg la fu woyof ndax luis gann la sañ bi ci boppam jeex na ko ñu bare bare bare moom la joxoon sëñ Mbàkke Buso moom la joxoon sañ Mor jaar kon nekkul ne max naay daf woyof wala waaye aw tur la rek ku mën boobu ba tey xayrun ah, ku man ba tey yooyu yëpp sa sa sa tënku nga ba nga xam ne amoo waxtu amoo temps nga yem ci xaatam bi nga xam ne ah, am nañu ko doy la woon moom dong ci man ñi te moom it ci sëñ bi la jóge ku man xaatim ak xafiif ba tey nga boole leen kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di soññ mboole murid yëpp ak jullit ñëpp ñu gën koo fonk gën cee bàyyi xel xam ne mënta ñàkk ndax ab jaam daa mënta ñàkk borom subhaanahu wa taala la ko cay eh, gën di delloo di ko gën di yeew nag lu mu gën a dëgër mu gën fa ci loolu bokk yi ci gën a fees mooy werdu kon ku ne ci noonu war na koo fonk waaye fonk loo ko njabootam ñu bàyyi xel ne ay suufiyanke lañ ci tasawuf la ñuy dund te tasawuf bu wér nag bu ënd teg wér de moom ñu ne su ko ci àdduna bi kon ab julit bu nekk ab suufiyanke day wér. te wér al wérdul maxluud nag am ay ngëneel yu bari sëñ bi waxal ko boppam ñu nekkoon ak moom nettali ko mu wax ne doy na sëkk wérd ngëneel yu baree baree ngi ci muy loo xam ne bu ci waxutoon benn njariñ sax boo dee xool ne tudd yàlla dafa baax ci jàmm njariñ yi ci sëriñ bi wax sax am na ci yoo xam ne aji jëfandikoo ji bu ko tàmbalikoo di ko def moom moo ko yëgal boppam day mel ni njariñ bi ëpp na lii nga xam ne mooy li ñu bind doy na sëkk rek ne sëriñ bi nee na ku koy jëfandikoo dana dugg àjjana ci lu dul benn coon sëriñ bi nee ku koy jëfandikoo danga dugg dugg àjjana ci lu dul benn coon wax na yi ne ku koy jëfandikoo dana nekk aji texe ëllëg te it ab jullit lay doon aji gëm lay doon daanaka boo dee xool njariñ yi ci sëriñ bi wax muy njariñ yu baree bari koo xam ne yaa ngi saxal wér gi di ko def njariñ yi rek jaroon na di ko saxal di ko def te it am na fu wax ne doy na wëlis wérd yëpp ndax xolof wérd yëpp mi ngi ci biir dafa mel ni ku yàlla jagleel mooy sab yu baax yi tasaaroo woon ci biir gaa gaañu baax ni moom la ko moom la yàlla cërale mu daje ci wirdam yi bégle ci it wax ne sunu borom jagleel na leen loo xam ne ñu bari ci waa jamono dañ leen ci ñee ñaan yàlla na képp koo xam ne day jëfandikoo sama wirdu yi yàlla na ko may tuyaaba ji lu dagg faw wax ne képp kuy jëfandikoo wirdu wi dana jariñu fi ci àdduna ba laaxira xam ne képp ku koy jëfandikoo te sax ci wala ko sart yi dana nekk mu'min muslim muhsin kon loolu mooy li nit ñi bëgg kenn ku ne di dox jëm ci wax dëggu sa iman dëggu sa islaam dëggu rafet sa ihsaan wér te jëfandikoo wér du sëriñ bi dana ko may nit bari loolu ay ngëneel yoo xam ne ay ahadis surat na ci ci ay ñaan yu ci nekk yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci ku koy jàng suba ngoon ni la yàlla lay musale ak nim lay mosale kon danga mucc mos loolu nag ak jullit kon waru koo woyofal waru koo sàggane te it ndigalul sëriñ bi moom képp koo xam ne bëgg nga euh, sax ci ndigal moom bokk na ci ndigal yi sëriñ bi digal taalibe yi ñu di ko jëfandikoo jëfandikoo duma xos doy na naa ko faral di wax lu bari doy na gàllaaj jàmm bi da koy jëfandikoo ngir jaamu yàlla ngir gën a jege boroomam ngir gën a euh, am cër fa yàlla ngir gën a xejj fa suñu borom waaye lool lépp nag da koy boole yàlla man ko ci lu musalu ndax ay ayaat ak ahadis ay adaan yoo xam ne kaaraange rek la saa bu ko jàmbi saxel di ko def mboolem luy lore di saw ba ci seytaane wala bakkan wala bànneex yàlla mën na ko caa musal bëri na njëriñ doon nag yoo xam ne sëñ bi wax na ko xëy na ngir bëggal taalibe yi ngir ñu xam ne leen ciy xaar ëllëg bokk na ci yim nañ ci wax na leen képp ku koy jëfandikoo da nga nekk dëgg dëgg jullit bu mat sëkk ci wàllu yëpp muy mu'min muslim muhsin da nga am iman bu mat sëkk sa islaam dina mat sa ihsaan dina wax na la yéen ne ku koy jëfandikoo bu ëllëgee suñ borom du la xisaab du la mbugal insha allahu taala te loolu mooy li ñëpp bëgg muy mucc mucc gu wér bokk na ci li mu ci wax ne képp ku koy jëfandikoo seytaan du ko jege fenn te mbooleem lu ñuy musul ci àdduna ak àllaaxira suñu borom dina ko ci musal kenn ci mag ñi bokkoon si ñu ko joxoon waxoon na ne bis bi leen ko sëriñ bi joxee newoon na leen na ngeen ko jàpp bu baax te yàlla rek tax na ngeen ci góorgóorlu ne leen ku yoroon weneen wérdu bu bokk tëg maaxuus gi ku ko jiitu tey bu leen mënee boole na leen boole su leen munta boole neem ci maaxuus gi te xam ne lu muy wut ci leneen rek mi ngi ci li kon taalibe ñu ne dinañ xam ne luñ bëgg ci xeet yooyu ci jariñ yàlla yi ñun ñu jëfandikoo ko ci ñu jaaree ko ci maaxuus moo gën wala boog nañ njëkkee maaxuus luñ ciy teg ñu da ko ci teg ndax sëñ bee ñu ko fàggul te nee nañu mboolem li ñu soxla ma nga si ko joxee waxoon na leen ne leen buum gi dox seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen jàpp ci wetu yu ndax da naan man mii ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ba fii ñu toll nii nit ki mën naa am wetu maaxuus te ñiy dox digganteem ak sëriñ bi du ëpp ñaar nit ba fi mu ne nii mën nga koo jëlee ci nit koo ko jëlee ko ci kenn mu jëlee ko ci Cheikh mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne liy dox sa diggante ak yonent sallam ñett nit lay doon gën ngaa bari ñeent lu dul jeex suñu ko mën a joxe kon loolu it ñu bàyyi ci xel. wérdu yi nag li tax ñu war koo fonk mooy Serigne Touba radiyallahu anhu da koo fonk lu woon soññee ci lool wax ci ay njariñam lu bare bare bari sëriñ bi am na leetar boo xam ne bindoon na ko lenn ci ay taalibeem booba mi ngi Muritani mu wax ca ne ubashirukum bi anna allaha tabaraka wa taala xassakum bi ma yaxbitukum fiihi kathirun min ahli al asr fashkuruhu ala dalika al wirdi al mubaraki wa ala gayrihi mimma satajidunahu aajilan wa ajilan min fadlihi wa juudihi wa karamihi insha allahu tabaraka wa taala sëriñ bi da cay wax ne ko maa ngi lay bégal maa ngi leen di bégal ne suñu boroom subhaanahu wa taala jagleel na leen loo xam ne ñu bari ci ñun jamono danañ leen ci ñee kon na ngeen ko sant ci wérdu woowu barkeel woowu ak ci yeneen yi nga xam ne dangeen ko ami ci lu teew ak lu jublu muy tey ak ëllëg ci ngëneelam akuk mbaaxam akuk tabeem insha allahu tabaraka wa taala kon sëriñ bi soññ nañu ci ñu fonk lii nga xam ne ñu bari ci ñun jamono danañ <coughs> ci ñee képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ko téye sëriñ bi waxaat ne di ñaanal koo xam ne yaa ngi jëfandikoo al wirdul maquz wax suñu boroom ne ko uktub liman araza wirdi yaa karim bi bihi thawaaban laa yarim yow sama boroom bindalal képp koo xam ne jël na wirdu wii muy sama wirdu wii ku ko jëfandikoo nang ko bindal ab yool boo xam ne du dakk mukk kon loolu ndegam sëriñ bi ñaan na suñ boroom mu defal kiy jëfandikoo werdu wi ab yool kon képp ku bëgg jariñu tey ak ëllëg war ngaa fonk werdu wi sëriñ bi wax ci loo xam ne doy na ab soññee ndax li nit jullit di gën a daw gën koo ragal muy texee di nee na képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo bokk na ci njariñul werdu wi mooy képp ku koy jëfandikoo sax ci doo texee di mukk mu ne wa min fawaidihi anna man daawama alayhi laa yakunu shaqiyan bal yakunu ala xayrin wa aafiyatin muminan musliman muxsina ku ko saxal doo texee di bukk te danga nekk ci aw yiw nekk ci aafiya ak jàmm doon ab jullit doon ku gëm yàlla doon koo xam ne ku koy jëfe la mu gëm la doon koo xam ne ku koy rafetal la it. muy wird woo xam ne bëri na njëriñ lool donte sax nag bi bu koy def ay ay njëriñ ak yooyu waru ko ci dugal na ko def rek ngir Cheikhul Khadim mooy suñu sëriñ moom lañu suñu borom sedde moo ñu ko digal sëñ bi lu mu ñu digal rek suñu njëriñ la kon bu ci nit ki di dugg na ko def rek ngir jëfee ndigalul Cheikhul Khadim. bu du toon ngëneel yi sax waaye sàmmonteeg sàrt yi rek doy na ngëneel. muy sart yi nit war a sàmmoonteel buy jëfandikoo werd yi nit fexe ba loolu nekk ci moom rek doy na ngëneel rawatina nag yeneen yi ci dolliku te waxal ko boppam. sëriñ bi it bu ñu digalee sax daanaka du jar sax ñuy xool lam ñu digal ndax am na njariñ yum ca wax wala amul njariñ yum ca wax bind gi bind yaxal jox ko ñu bari ci mag ñi nga xam ne nekkoon nañu moom. ñu gis njabootu Serigne Touba mi ñu ko fonke woon ak gaa ñu baax ñi loolu rek jar na ñu dem wutali ko muy euh, ndigal loo xam ne it nit ki mën na koo tarxiya mën na koo tarbiya mën koo tarxiya ndax saa bu ci tënkoo dañ la yéegi li manqué woon ci yëpp dana ko mottali ndax dalay tënk ci mbaax tënk la ci ak ngib lu ama am solo muy lii di al wirdul maaquuz min allaahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi muy wirdu yi nga xam ne su ci borom subhanahu wa taala moo ko jagleel cheikhul xadim radiallahu anhu ca jamono jooja mu nekk gànnaar ca sarsaara muy lu barkeel lool njëriñ lool loo xam ne daa bokk comme ni ngeen ko xamee rek ci jumtuwaay yi nga xam ne euh, taalibe bi da ci jaar ngir mën a àgg ci suñu borom subhanahu wa taala muy loo xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi ngi ko jotee ca gànnaar ci at mam fa demee cent 1321 mais 1300 1903 sëriñ bi jot ca gànnaar di ko jëfandikoo jox ko taalibe yëpp jox lañ ci ndigal ñu di ko jëfandikoo boobu ba léegi muy lu rëy di lu màgg di lu barkeel lool loo xam ne daa bokk ci yi nga xam ne may yu rëy yi suñu borom defal sëriñ bi radiyallahu anhu wa arda muy wirdu woo xam ne mësee su ko jox kenn nitu yàlla ci sëñ bi lañ ko jox muy loo xam ne kon lu rëy la ci biir ku xam ku xam ci biir tasawuf ni ñu fonkee wird ak ni ñu fonkee nit ku dem am wirdu boppam ndax ñu néew néew am nag sëriñ bi nag yàlla baaxee ko jox ko wirdu boppam woo xam ne làmboona mbooti wirdu yëpp jox ci yëpp ndigal kon foofu am murit bu bëgg am ngërëmul yàlla am mbégum sëriñ bi du sàggane wird woowu ndax ab kuñ ne al muridu mooy ki nga xam ne ngërëmul suñu borom subhanahu lay wut ci lu nekk ci gërëm loola yoon wa ci gën a gaaw mooy lañ la digal ci sëriñ bi digle na ñu fonk wird wi ñaanal ku ko fonk wax ci ay njariñ yu yaatoo yaatu kon nag ñi ngi koy fàttali sunu bopp di ko fàttali suñu mbokk taalibe di ko fàttali jullit yi mu doon loo xam ne moom lu mu fonk la lool wax ci lu bari digle ko it surtout ci jamono ji ñu toll nga xam ne euh, seytaan dafa bari doole lool ci tudd yàlla day defar ab jaam ci biir ak ci bitti tudd yàlla nag goo xam ne dafa ànd ak ndigal ànd ak loo xam ne dañ koo waajal ba nga xam ne lu baax la ci taalibe bi lu mën a jëfandikoo la lu koy jariñ la loolu dara ëpp ko solo dara ëpp ko solo di wër ak laaj aw tuuf yaakaar naa lii nga xam ne sëriñ bi dajale na ko ñu tudde ko wér du maaxuus ca doon yëpp nga xam ne boo ci jël rek baax na loolu daa doon loo xam ne lu ñu waajal la lu ñu waajal la loo xam ne mooy li lay defar fii ci àdduna ak la lay defar fële moo tax njariñ yi bari bari na ci loo xam ne ki koy jëfandikoo léeg-léeg da ci yëg loo xam ne sax du ko mën a wax wala da ciy yëg loo xam ne sax moo ëpp li ñu bind ne lii mooy ay njariñam moo tax ku dib taalibe rek euh, war nga ko mën a jël te du yàq dara ci sa yitte lu jël benn temps sa jamono moo tax euh, lu am solo loo xam ne lu mat di fàttali la lu mat di yaatal la lu mat a gëstu la lu mat a xam la maa ngi ñaan suñu borom mu xiir ci ndaw ñi yépp góor ñi ak jigéen ñi ñu jëfandikoo ndax njariñ rek moo ci nekk njariñul àddina ak njariñul àllaaxira kon daal soññe googu daal jàppoon ne war nañ koo def ndax euh, sëñ bi jigéen ci aw yiwu mag dëgg la nag kenn du wax ne jëfandikoo wird mooy tax a doon murit waaye nag jëfandikoo wird lu mag a mag la al wirdul lu mag mi ngi ci moo tax kon képp ku ko man na ko jox yitte jële ko fa mu ko war a jële di ko jëfandikoo na mu ko war a jëfandikoo li tax ñu di ko soññee nag ak di ko fàttali di ko fàttali suñu bopp dafa doon loo xam ne bépp taalibe bu yaakaar sëñ bi war nga ko yittewoo war nga cee sonnewu war nga caa def sa kem kàttan ndax loo xam ne dalay jegeel sa boroom loo xam ne day defar sa ruux loo xam ne day tax nga texe tey ak ëllëg loolu ku ko suñu boroom jagleel war nga caa góorgóorlu ñuy fàttali rek ne nekkul loo xam ne mag ñi rek ñoo koy war di def wala góor ñi rek ñoo ko war di def sëriñ bi ni mu bind ne sant naa ñi aju ci man daa jëfandikoo baatu góor góor ñi nga xam ne dañoo aju ci man ñëpp ak jigéen ñi nga xam ne dañoo aju ci man ñëpp digal naa leen ñu di ko def képp ku ko jëloon nag ngir bëgg lu baax rek te jëlu ko woon ci ndigal na yeesalaat jël ko ci ndigal ndax sëriñ bi ne woon na ku ko jëlu ci ndigal yaa ngi def ak jàmm yàlla lu baax ngay def waaye nag njariñ yi ñu ciy séentu dëgg faaw nga jël ko ci ndigal saa bu ñu toogee di ko defit sëriñ bi waxoon na ne nañu ci sàmmoonte nañ fas ci suñu xol ne ñaan suñ borom mu jëriñ ñu ci wérdu yi jëriñu àdduna ak àllaaxira loo xam ne dara loolu ci am it mu defal ñu ci ak jege yàlla subhaanahu wa taala ak jege yonent bi sallallahu alayhi wa goo xam ne dañ ciy jëriñoo te duñ ci loroomu ko kon nit ki bu toogee di wérdu yooyu la ci war a fas muy jege yàlla ak mucc àdduna ak àllaaxira ak nag jëfee ndigalu Cheikhul ci xolam nu mu man jëmmi sëriñ bi eh, ñaan suñ borom mu taas ko ci barkeem loolu bokk na ci yi nga xam ne bu ñu toogee di wérdu war nañ koo sàmmonteel Euh, bokk na ci ci gën a mat a jamono ju ñuy wird ñu wattandiku suñ kem kàttan di wax waaw booy wird di gën mooy nga bañ a wax booy wird wala di seetaan télé wala di wird dox ci lu dul ndig ci lu dul yooyu yëpp ñu wattandiku soxna yéen ñu góorgóorlu ci bu baax a baax xam ne sëriñ bi bi muy wax ñu ngi ko digal dane al mutaalliqiina wal mutaalliqaati bi azyalihi góor ñi aju ci moom ñëpp ak jigéen ñi aju ci moom ñëpp digal na leen ko ñu di ko jëfandikoo seen kem kàttan ci charte yi waxoon na ci ne góor gi koy jëfandikoo su mënee di jullee ci mbooloo wala bu ko mënee defee ci jàkka ji sax moo gën jigéen ñi nag bokkuñ ci loolu ñoom kon loolu bokk ci sart yi nga xam ne rek lislaam da cee soññu jullit ñu ñëw di ko di ko soññee kon jigéen ñi ñu xam ne am nañu wàll ci mbir mi bi sedd na leen ci soññ na leen ci nañ ko jëfandikoo seen kem kàttan xam ne bu ñu amee ngànt yi dab jigéen ñi du tee danañ ko mën a wéy di ko jëfandikoo kon daal ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax dafa doon loo xam ne boo jàngee histoire bi ñu ko sëriñ bi jotee ak ni mu ko waaje waajtaay nga xam ne eh, ñëwagutoon mu di ko bind eh, di ko wax ba ba nga xamee ne suñ borom jox na ko werd wi mu bind yaxal ne wal waadu lii fii ramadaana najasa la ma suñ borom diggoon defal na ma ko ci weeru koor ci laylatul qadr eh, kon ñoo ngi ndokkeel mboolem jullit ñëpp di ndokkeel mboolem lislaam gépp ci xew-xew bu rëy bi nga xam ne ci jamono yii la woon mu ci la sëriñ bi génne woon wirdam bu barkeel bi jox ko njaboot bi jox leen ci digal ne leen moom mi ngi koy jëfandikoo te digal na leen ko ñoom ñëpp ñu di ko jëfandikoo te muy wirdu bu barkeel bu bëri njariñ boo xam ne ku koy def suñu borom dina ko musal àdduna ak àllaaxira dina ko jëriñ àdduna ak àllaaxira te loolu rek mooy li nga xam ne moom la nit ñëpp bëgg ñu jullit ak ñu du jullit jëriñu képp lañ bëgg wirdu bi nag sëriñ bi neen ku koy jëfandikoo di nga jëriñu àdduna di nga jëriñu àllaaxira yàlla ñu suñu borom defal ndimbal defal ñu tawfeex defal ñu ay taalibe yi sëriñ bi nangu seen taalibe kon yàlla yàlla dimbale bañ mën cee sóobu rafetal sóobu bi ñu ngi soññi mbokk yëpp den di leen ko di leen ko gën a dénk yàlla na ci yàlla boole dimbale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. foofee jasar saara la jote ma xuus wirdu sëriñ tuubaa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hin dallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ciy laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu wa sallama kamaa ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasan nisaama xayra noorin xat halaa wérdu wi am na solo lool bari na njariñ doy na sëkk ci njariñam ku koy jëfandikoo nag xam ne mi ngi jëfandikoo loo xam ne digganteem ak yonente bi càlla la gu gàtt gàtt gàtt la mooy sëñ Touba mi sëriñam ci la ko ci la ko jële sëñ Touba jële ko ci yonente bi xam ngeen ne silsila bu gàtt moom lu ama am solo la lu boroom xam-xam yi fonkoon la fan yii ñu koy ngeen di ko waxtaanee yéen waa alxadimiya ñoo ngi leen ci sant bu baax te di leen ci ndokkeel xam naa rek day mal ne li naan histoire dafa day nettaliwaat boppam dafa delloosiwaat boppam ndax euh, boroom xam-xami tariqa bi dañuy wax ne euh, juróom mi fan ci shawaal moo daje woon ak Euh, juddu wirdu wi maanaam wirdu wi juddu woon na ci la ko jiitu woon xay na ci semaine ba ko jiitu woon waaye bi ko sëñ bi génnee ci dat boobu la la dajaloon génne gi kon nag bu ngeen jekkee yéen waa alxadimiya ba tey ba dat bi ngeen di ko génne loolu am na solo ngeen xam ne euh, rek dara rek du hasard noonu ñoo ngi leen ci sant foofee ca sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waa sitir rasuuli hin dallaahi mu jox ko Seex Bàmba bismillaahi ngëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëpp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la sii laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu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 waa wajaal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa bi arshida bokk yi ni déglu noo leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel ci koor gu sell gi nga xam ne moom lañuy ñuy tàggutoon nii di ñaan yàlla liñ ci def lépp mu nangu ko te fay nu ci ngeen ji fay te defal nu tawféex ci li jublu si Euh, ginnaaw lool nag al wirdul maxuudu min allahi taala xam ngeen ne sëriñ bi mu ngi ko jotoon ci biir weeru koor waaye nag mi ngi ko jox taalibe yi ci kori ga ci juróomi fan ci weeru kor yi ci la euh, Cheikh Ahmad Wulul Xasan wax ne ci la ko ko sëñ bi jox wird nag lu am solo la lu ami njariñ la lu mën la ñàkk itam ci dundu ak tal ab ndax sëriñ bi moo wax ne xayru taami lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil maliki murid wenn ñam mooy ñam wi nga xam ne moom la war a gën a ëpp lu muy jëfandikoo maanaam ñam wi gën ci murid bi gën ci ruuxam gën ci xolam mooy saxoo tudd yàlla tudd yàlla nag euh, xeet yu baree bari la am na ci yoo xam ne ma ngi cee téere sunna ya waaye nag sëriñ bu mag bi dafa am jaglek rasulullahi tànnal ko ca yoo xam ni moom moom moo ko joxal boppam wax sax ne sunu borom ci boppam moo ko jox jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al wirdul maxuudu min bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne yàllaa ko tànnal sëriñ bi nag rasulullahi indil ko ko loola te dara génn ci alquran ak sunna yonent bi loola day gën a barkeel gën a amul leer gën a gaaw a amul nangu gën a bari jeexit itam gën a gaaw ci defar xolub nit ki ak yóbbu ko ca àgguwaay yi gën a kawe nga xam ne moom la góor yàlla yépp di dox jëm solo su rëy mi ngi ci Sëñ Tuubaa ci moom wax na ca masaalikul jinaan amma ida jahilta sha'na al wirdi fa'lam bi annahu azimul qasdi bu fekkee da nga xamul mbirum wird nee xam na maa ngi lay xamal ni lu rëy rëy la ay jubluwaay lu ami jeexit la li tax ñu koy defit mbir yu rëy rëy la moo ci ne ay sekkar yu bari moo ci ne teg ci ne mawqicuhu fi sharci min ajalli mawaaqici alqurabi indal kulli am na taxawaay itam ci diine bu rëy jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo lay jegeñal sa borom nee na ya ci gën a màgg wérd ci la bokk ndax wérd lépp tudd yàlla la te tudd yàlla sunu borom tabaraka wa moo ko digle ci alquran te fu mu ko digloo day wax ne na bari yaa ayuha alladina amanu udkuru llaha dikran kathira wa dhukuru llaha kathiran la'allakum tuflihun wa dhakara llaha kathira wa dhakirina allaha kathira wa dhakaru llaha kathira waxee dikr rek day wax ne na bari wala sëñ bi wax ne euh, mawqi'uhu fi shar'i min ajalli mawaqi al qurabi inda al kulli yi ñuy def ci ay jaamu yàlla ak di ko jegeñ jegeñ loo borom ñeneen la ci gën a màgg bokk na ca wird boo xam da nga koy saxal te def ci yitte sart itam nga dija jéem sa kem kattan boole ko teggin yi ñu koy defee itam moo sëñ bi wax ne wa in axasta wa in axasta al wirda faltu bajjili umurahu xayral masaaya tanali leen bu fekkee da ngaa jël wird na ko jox yitte te màggal ko jox ko cër bañ ko woyofal bañ koy foyee bañ koy waxtaanaale ak di ndax da koy jox fulla daal ju mat sëkk faltu bajjili umurahu nee na xayral mazaya di boo ko defee ngëneel yi nga xam ne moo ca ne da nga ca jot insha allahu taala waalam bi anna kasrat al ujuri bi qadri lawraadi ma al xuduri loolu suñ tubaab wax nee na ëllëg yowmal xiyaam ña fay ëpp ay tuyaaba gën faa bari le gën faa rëy daraja mooy ñi nga xam ne eh, ñu ëppoon lu ñuy def ci ay awraat ak di ko saxal ak ak eh, ko kon say daraja ak say tuyaaba ak sa tolluwaay ëllëg mu ngi eh, maanaam fi ñu koy xamee rek fi ñu koy xamee rek ak fi ñu koy natte mooy li ngay def ci ay awraad ak i naafila ndax awraad yëpp ay naafila la yoo xam ni ginnaaw boo defee farata yi boo koy def moom naafila yooyu bu yàggee suñu borom dalay soppal boobu boppam loolu la sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon kon wird tudd yàlla la yoo xam ni rawatina al wirdul tudd yàlla la yu kawe yoo xam ni sunu borom moo ko tànnal sëriñ bi rasulullahi jox ko ko ca aksasin mooy ba mu nekkee gànnaar waaw euh, lidal imaami an imaami thaqalayni an rabbihi wirdun ala kayfiyatayni yaakaar naa noonu la ko Cheikh Ahmadul Hasan waxee kon boo koy def yaa ngi def tudd yàlla te tudd yàlla daa mënta ñàkk ci ab jullit moom matlab shar'i la lislaam ci moo ko sàkko ci mboolem jullit ñëpp képp koo xam ne bëgg nga ngërëmul yàlla moom faaw ngay saxoo tudd yàlla yonente bi soxna Aysa dafa wax nekk daana tudd yàlla ci waxtoom yëpp waaw fi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidna Sahlu bnu Muaad na jële ci baayam ne dafa am waaj ñëw ci yonente bi ne ko ayul jihaadi azamu ajran jihaad yi ñiy def jihaad ci yoon yàlla ku ci ëpp lépp yoon mu ne ko aktharuhum lillahi tabaraka wa taala dikran ku ci ëpp looy tudd yàlla rek yaa ci ëpp la yool mu laaj ko yeneen jaamu yàlla yu baree bari ne ko ñii woor ku ci ëpp la yool mu ne leen ko ci gën a bari lu muy tudd yàlla mu ne ko ñii julli ku ci gën a bari tuyaab mu ne ko ko ñi ci ëpp lu ñuy tudd yàlla ñii natt asaka noonu ñii aj màkk lenn jaamu yàlla yëpp boo koy def te boole ko di tudd yàlla lu bari nee na yaay ëpple daraja yaay ëpple ab yool yonent bi ci moom mas naa wax ne ala unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi dahabi wal waraqi wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaaqahum wa yadribu anaaqakum xanaa du ma leen xibaar du ma leen jëf ju baax joo xam ni moo gën ci jëf yi ngeen jëf yépp gën cee sell fa sunu borom tabaaraka wa taala gën cee gën gën cee yëkkatiku daraja gën cee rëy daraja te itam gën ngay yor alal ju bari di ko joxe ci yoon yàlla di ko dépenser ci yoon yàlla nee na lu ko gën xanaa du leen ko tegtal du ma xanaa du loo xam ne moo gën ngeen yor seeni jees yi di jihaat ci yoon yàlla di caw yéefar yi ak noonu yàlla yi eh, suba ngoon bi mu ko waxee saxaaba yëpp ne ko balaa loolu kay moom bëgg nañ nga tegtal na ko mu ne leen dikrullahi taala tudd yàlla subhanahu wa taala mooy li gën ci jëf yi gën cee rëy daraja gën ci yëkkati gën cee sell fa sunu borom tabaraka wa taala kon tudd yàlla ci boppam rek daa mënta ñàkk rawatina nag tudd yàlla goo xam ni dafa jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu te mu jële ko ci sunu borom tabaaraka wa taala mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dara gënu koo rëy waaw ndax mooy ruuxuk tudd yàlla ku ne xam ne mooy ruuxuk jaamu yàlla yi mooy def ruux ci jaamu yàlla yi moo lay may itam itminaan waaw itminaanul qalbi tumaninatul qalbi mbooleem xeeti mbon mbon yeeg yu bari taq-taq yu ne ci xolit tudd yàlla moo ko ca mën a jële waaw te gis nañ waxtu yi ñu koy defit sax alxuraan ma ne ne ci lañ ko jële alxuraan moo wax ne udkurullaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asila mooy subaak ngoon ci lañuy def wirdul maaxuus mooy mooy bu njël jotee la waxtoom tàmbali ba zawal mooy tisbaar ngoon gi mi ngi tàmbalee bu ñu jullee takkusaan ba njël ga ca topp am muxtaar am doroor yi muxtaar mi bu dee suba gi mu ngi yem ci eh, fi jant bi fenke doroor yi mi ngi tàmbale foofu ba ba ba ba tisbaar am ñu wax sax takkusaan waaye bu dee ngoon gi itam muxtaaram mooy diggante timis ba gee am ñu wax ne ba ba diggante eh, takkusaan ba timis am ñu ne diggante takkusaan ba ba gee doroor yi nag doo ko doo tàmbalee foofu jëm nga xam ne jëm njël nga xam ne waxtu wépp boo ko fi def nga ko ci waxtoom bu weesoo loolu nag fay lay tudd moom dañ koy fay nag mi nga kon eh, wirdul maaxuus mi ngi noonu di lu am solo loo xam ni sëriñ bi kim ko njëkk a jox mooy al allaama shinqiiti ahmad wuldul xasan mi mu waxoon wuldu xamaad al yi mi nga xam ne bi ko bi joxee taalif na ci Euh, ab téere bu am solo bu gàtt def ko ay way tudde ko dalilu man raamat dalil fii fii wirdi cheikhina al muqaddamil jalil cheikh Mouhamadul Bachir itam leeral na ci lu bare bari wax na ca ne mboolem tudd yàlla yi ci kaw suuf secret ba ci benn baat la cay ne suñ borom nag baat yooyu moom la dajaleel sëriñ bi ci maaxoos nga xam ne boo koy def yaa ngi def mboolem eh, li li li li doomu aadama yi def ci kaw suuf ci ay tudd yàlla moo tax sëñ Bachir wax ne eh, li annahu li kulli wirdin sirru fi kilmatin biha hadaaka albarru wa ilmuha inda dawi lbasairi la gayrihim xikmatu rabbi lqaahiri mithaaluhu alleylatu fi chahri siyaam wa saacatu ljumuati fi lkulli turaam awlaahu mawlaahu alxabiaati maa min bacdi ma xadamahum wa rafaaha wa rafaa janaabahum li kër wajhil karimi xatta xabaahul kullu bi taqdimi da wax ne wird yi foo ko fekk wird wu ne am na secret ba mi ngi ci benn ci baat wala benn ci aaya wala benn dog ci biir wird wa lay ne wax ne ni ma la koy misaale mooy gis nga weeru koor dafa am guddi goo xam ne mooy laylatul qadr nga xam ne moom la ñëpp dàkk ajjuma itam am na ci waxtu woo xam ne suñu borom da cay nangu ñaan te du ca delloo ñaan muy waxtu barkeel woo ne moom gaa yu baax yëpp dañ koy dàkk loolu ni mu amee ci yooyu nag noonu la amee ci awraad yi waaye nee na Sëñ Tuubaa dafa liggéeyal ña ko jiitu woon ci borom tarixa yi ci seeni wird ak fonk ko ba tax nag suñu borom sëggal ko mbooleem secret ne ci yooyu yëpp mu dajale ko ko ci wirdul maaxoos nga xam ne boo koy def yaa ngi def mbooleem li eh, ñi ci kaw suuf yëpp tarixa yëpp la ñuy def yaa ngi koy def seeni jagle yëpp dalay da nga koy da koy am yow ni niñ koy amee te di nga am leneen lu ñu amul ñoom maanaam boo ko dee yaa ngi def mboolem di xaadir yi def lañ ci liggéey ci xaadir lépp dana la ci fekk insha allahu taala yaa ngi dem mboolem li saadali yi def yaa ngi dem mboolem li tijaan yi def turuq yi ci kaw suuf yëpp la ñuy def lépp yaa ngi koy def ba noppi nag lañ ci lañ leen dig ñoom it da nga ci jot yow moo tax muy tariq bu barkeel di wirdu bu barkeel bu mat a fonk moo tax sëñ Basiir wax ne fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in sa wirdahu sa wirdal jamici laa taxaafu kabta walwaxda minhumu taxuudu summa laa xawfa alayka min waidin musjala li annahu li tarki kulliyan wa man axadahu fa bil xasaisi xamin boo ko jëlee daal mboolem lu ñu digge ci yeneen awraad yi moom bul sikk ne di nga dajeeg moom boo ko fonkee te warmaal ko da jox ko gëdd gi nga xam ne moom la laaj eh, mboolem tëkku yi nga xam ne moom lañ tëkkoo itam ci ku bàyyi yeneen awraad yi yow tëkk yooyu du dal sa kaw ndax tëkk yooyu ku ko bàyyi lañ wax te yow bàyyi woo ko ndax la ñuy def yaa ngi koy def loolu ci am solo la moo tax sëñ Basiru mujj wax ne fa axduhu l xusna maa ziyaada li jamcihi l jamia maa ziyaada maanaam jël wirdul Cheikh Ahmad Bamba radiyallaahu anhu daal mu wirdul maqul daal nee na mooy alxusna wa ziyaada bi suñ borom wax ne lilladina axsanu alxusna wa ziyaada tawfiix ju kawe ji gën a kawe daal mooy am mooy jël ko wirdu yi nag ñetti xeet la am na bu ñuy wax xaatam xaatam mooy bi ci gën a tuuti waaye moom des koy tàmbale rek man nag wax dëgg yàlla jëpp ma ne wird la damaa jàpp ne ni ko Cheikh Mouhamadou ñu dagana tudde rek laa ko jàppee te mooy ab zeyl la ko tuddee nga xam nee na Cheikh Mouhamadou ñu dagana nee na dañ koy tàmbalee ba keroog nga tuuti rek doog a dem nag ci wird wa moom ab tàmbaliwaay la xataa euh, yaqwa wa boo dëgëree nag sa ruux dëgër tuuti nga doog ko dem nag ci wird bi moom ab tàmbaliwaay la des koy tàmbalee sëñ bi daana ko jox ñenn ci ñi muy tërbiya moo tax moom amul i chart ay aadaab la am ci la sëñ ba bind te usul yi awraad yi benn nekku ci amul istigfaar amul salaatu ala rasulillah amul euh, euh, maanaam hayla la muy dem kon ab tàmbali la boo xam ni des koy tàmbalee des koy boole itam ak wirdu bi bu la neexee nga jël wirdu bi muy xafif wala kaamil ba noppi boole kook moom bu baax nag waxtoom day soppiku bu baax diggante tisbaar ak takkusaan lay doon ak diggante mis ak gee nga koy def moom xaatam bi moo ci gën a tuuti am na nag ñu ko jàppe wut waaye man noonu laa ko jàppee ndax maa ngi ci topp itam Cheikh Ahmadou Hasan mi nga xam ne moom la ko sëñ bi njëkk a jox ci dalilu man raamal dalil xam nga da wax ne li dal imaami an imaami saqalin an rabbihi wirdun ala kayfiyatayn noonu la ko waxee euh, wérdu dëgg dëgg nag mooy xafif ak kaamil xafif dafa am ay ay ay ay ay ay moom it ay ay ay ay ay ay nusax dafa am nettali yu ci am ñaar ba ñett nettali ba ñeent sax ñaar ba ñetti nettali yoo xam naa ko yoo xam ne du wuute yu ci am maanaam day am nettali yoo xam ne dañuy indi ab aaya te bee indiwu ko bi nga xam ne moo ci gën a mat nag nga ne moom indi na lépp ci xafif yi ci li ma seetlu mooy bi bu sëñ Mbàkke Buso bi xafif bu sëñ Mbàkke Buso bi waa Gédé yi yor ak it bi nga xam ne moom la si Cheikh Mawul si Cheikh Mouhamad Misk bi muy joxe ca gànnaar te jële ko Sidi Ahmad Ndoussou mu jële Sëñ Tuubaa am na beneen xafi na bu nekk ci ixnaaw na ixnaaw adim nag boobu moom moom moom moom moom it moom moo leen ñetteel waaye dafa am lu yee indi indiwuñ ko indiwu ko moom loolu rek la te loolu sax du bokk ci usul yu wértu yi fi bi rek lay doon lu mel ne inna waliyya llaahu allazi nazzala al-kitaaba wa huwa yatawalla yee dañ ko indi te moom indiwu ko loolu rek la ak lu mel ne laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu al ko wa xam al ñee dañu indi yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu Cheikh Mahamadou Misk eh, riwaayam bi dafa indi yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu bi yadihil khayr wa alaa tey indi wuñ ko kon bee daa gën a am tuut lu mu indi te la indi ko moo tax loolu du wute bu am solo xafif bi moo ci topp xafif nag mooy ñi nga xam ne nag dañoo néew doole ñoom ñoo koy jël ñi am doole ak borom kàttan ni dëgg dëgg kaamil la ñuy jël kaamil moom la sëñ bi mujjee joxe joxe ko ci aw gàmmo ca bëgg sasin moom mooy bi ci mujj nga xam ne wax ne aaxiru tabyit la wax ne moom la moom la mujj a génne moo ci gën a mag kaamil boobu daal murid saadiq yi moom moom maa ngi leen koy dénk ndax moom li na ci des yëpp nga ca moom nag moo ci gën a mat ko defee euh, euh, sëñ bi nag daana tànnal am na ñoo xam ni euh, ci boobu moo leen tànnal xafiif am ñoo xam ne moo leen tànnal kaamil loolu nag daana ko def wird wi nag am nay charte te mooy am ci ndigal te ka la cay jox ndigal na fekk moom mu amoon ci ndigalul jëfee ak ak joxe loolu mooy charte ci awraat yëpp te am silsila itam bu ko jokkale ba ci sëñ ba yàlla def na itam tariqa murit yoonu murit mooy bi gën a gàtt silsila fi ne ci kaw suuf ndax nun ñii rek nga xam ne ñoo ko mujj jël kilifa yi ñu ko jëlee ñoom ñañ ko jëlee sëñ bee leen ko jox nga xam ne ñaari dox suñu dëgg ak mag bi bu dee ku mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mii di xalifa bi ak ku mel ne sëñ Modou Mamoun Niang ak Mouhamad Misk moom waxoon ñooñu moom kenn dox si ak seen digg sëñ Tuubaa dañ ko jëlee ci ku jëlee sëñ Tuubaa mooy sëñ Tuubaa rasulullahi la jëlee ku jëlee ci suñu borom loolu dara mooy li gën a gàtt ci kaw suuf moom eh, am ci ndigal mun cee ñàkk mooy li ci gën a dëgër sax nag ak def ko ci waxtoom ñaar yooyu laa gis ne moom mooy bu amoon surootu seexa loolu mooy surootu sixa yi mooy li mënta ñàkk def ko ci waxtoom wax naa yi léegi njël la tàmbali ba tisbaar fi ñu ko gën a tàmmoo nag mooy njël ba keru jant bi fenk bu dee ngoon gi tëkkusaan la tàmbali ba njël ga ca topp saan nag ba timis mbaa ba gee loolu mooy muxtaar bi moom lañ ko gën a tàmmoo waaye diggante boobu yëpp boo ko defee def nga ko ci waxtoom bu weesoo loolu nag fay lay tudd moom dañ koy fay moom bu la ci manqué da koy fay boo ko xasee tàmbali ki ko jël itam am na yeneen sart yoo xam ne suruutu kamal laa ko jàppe foofu maa ngi ci euh, topp Cheikh Ahmadul Hasan ci dalilu man raama dalil bi muy wax suróot yooyu da ko wax façon fi suróoti kamaali yi la wax moo tax yi ci des moom da nga ci jéem sa kem kàttan ndax loo ci gën a jéem ci sart yooyu di ko gën a def wirdu wi di gën a mat jeexit di di la gën a jege itam day gën a jege itam boole mi ci diggee moo tax sart yi mat te mooy bis seen nga jàng alxuraan sa kem kàttan rek fekkee na jot rek fi na julli nga mbooloo wala ñaar guddi gi itam boo na boo jullee gee ba noppi guddi nga fex ba nafila fukki rakkaa fukki rakkaa yoo xam nañ ci rek safaak weetal muy fukk ak fukk ak fukk ak ñett bu ko defee fukki rakkaay yi loo ci tari baax na bu lu neexee boo mokkale alxuraan mën nga koy tari ni ñu koy defee ci koor gi boo ko mokkalut nag nga tari faatiha ak ñetti lixlaas rek noonu la ko sëñ bi waxee eh, xam say farata itam xam ni ñuy jullee ak ni ñuy woore ba bu julli gi yàqoo nga mën ko defar bu loolu mën nga ko jàng sax ci internet bi kaset si Abdourahmane yi nga xàmmee say farata yooyu yëpp ma nga ci bu ko defee itam ñi ngay def xarit nañ nekk ñoo xam ni dañuy dañuy dañuy buñ nekk ñuy mooy yàlla mooy gu fës nekk ñoo xam ne ñu baax lay doon mooy bokk ci daayira yi rek te bañ a bokk ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla mooy gu fës bañ leen def xarit daal mën ngaa maslaa ak ñoom waaye ñi ngay def xarit dëgg-dëgg buñ nekk ñuy mooy yàlla mooy gu moom mooy mulazamatu ahli taatillahi taala bi qadri al imkaani wa taaq sa kem kàttan rek ak bàyyi kabaayir yëpp nag waaw loolu ci ci ci ci ci eh, sart yi la bokk bàyyi kabaayir yëpp te fonk tuub ak itam weer wu ne nga woor ci ñetti fan loolu ci sart yi la bokk am nay aadaab aadaab yi mooy booy toog di ko def nga def ko ci benn bërëb def ko ci laab yow nga jàpp ànd ak laab eh, te bërëb bi nga toog laab nga jublu penku teewlu sëriñ bi itam loolu nag lu ci am solo lu am jeexit la fi booy doog ko tàmbali mën ngaa teewlu sëriñ bi ba mu ñëw ci sa xel nga doo ko tàmbali bu fekkee mënoo ko continuer waaye bu fekkee ne biiru wirdu yëpp it mën nga ko continuer loolu lépp ndax da ngay mel ne ku yaa ngi janlo yaa ngi yaa ngi yaa ngi toog ak moom rek jataay ak moom te amul sikk sax nag fi ne sëñ bu saxal demee ci moom rek fi ne ngi mi ngi mi ngi lay séen mi ngi ñëw toog yow fi ne loolu nag jeexit ju rëy lay def ci la la am loo nangu gi ak barke bi li cëpp foofu la foofu foofu la foofu fi ne loolu mooy secret bi bañ ko boole nag ak ay diglu ay rajo seetaan télé dox ak wax ak yooyu moom ku ko mën moo gën loolu mooy tegg ni moom am na nag meññet yu yu baree bare yu ci yu ci sëñ bi digee wax yàlla defal ko ko ci bokk na ci nee na ku koy def du texee di mukk te ci jàmm lay ne ak ak ak ak ak jàmm ju ju ne bey ci lay nekk te neena dana nekk mu'minan musliman muhsinan dana am imaan ju leer naññ ak islaam ju leer naññ ak ihsaan bu leer nañ sëñ bi wax na ne ku koy def yadxulul jannata bi xeyri xisaabin wala iqaab faw dina tàbbi àjjana te kenn du ko xisaab kenn du lijjanti am te kenn du ko duma kenn du ko sonal ci genn wet duñ ko sonal fii duñ ko sonal fële ku koy def sëñ bi wax na ne ku koy saxalit laa yaqrubu cheytaanul marid cheytaan du ko jege fenn maanaam awraad dafa am awraad bu ne wërdi dañoo am seen jaglee jagle bopp ne tey wërdu tiijaan dañoo wax ne boo koy saxal boroom naatul bidaayaat mu Cheikh Maal Ayneen wax na ne aj màkk lay yomb ne lu mel ne wirdul xaadir koomu àdduna dara yomb bu dee wirdu eh, eh, saadal moom boo koy saxal istiqaama dara yomb maanaam loolu am nañ yeneen i jagle waaye lee da caa gën a fees nga xam ne moom dañ ko caa seetlu bu wér waaye wirdu si amul bamba wii nag muy wirdu murid moom lim gën a fese mooy seytaane du la ñeme dalay lay daw seytaane du la ñeme seytaane moom wi nag yitteem mooy bu ko kenn jël ndax ku ko jël duutu amal yoon laa yaqrabu sheytaan marid ku ko jël seytaan du la mën a jege fenn ak itam sëñ bi wax na ne ku ko jël dana am ci àdduna ak ci àllaaxira loo xam ni ku dul moom rek ak ku deful ni moom dana ko ca ñee lahu maa yaxbituhu bihi gayruhu fi dunia wal axira ku ko jëlee nee na yamnau llahu yamnauhu llahu min al makaarihi fi dunia wal axira yàlla dina dox diggante mbooleem yu bon yi ak yi yi ñu sib ak jafe-jafe yu bare bari suñu borom dana dana dox diggam mag moom ci àdduna ak ci àllaaxira waaw te nee na ku ko jëlee yantafiu bihi intifaan laa yuraa li gayrihi nee na da nga ci jariñu jariñu koo xam ne ku deful ni yow du am njariñ lu toll noone te itam waxtu na ñu ngi lay bindal tuyaaba lahu sawaabun laa yarim ak yu baree bari yooyu mooy yiñ ci mën a wax moo tax nag mag ñi fonkoon ko Cheikh Ibrahima Diol Massaly daa wax ne wa daa anka awraad almasayixi kullaha li wirdi xadimin murtadin bil xilaafati nee na wirdi yëpp teg ko fale te te jël rek wirdu Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di xalifab suñu borom bi xalifatullahi fil ard walan tara sëñ mbay jaxat dafa xam ne walan tara fi bilaadillahi ajmaiha man yacrifu alxaqa illa wirdahu axada nee na maarifa billahi moom jamono yi mënisu ko am te jaarewoo ko ci jël wirdam loolu nag waxi mag ñooñu la jubluñ ci maanaam wax ne leneen nekkul feneen waaye dañuy xam ne rek daraja yi wird wi ak jagle yi ci ne ak it euh, leer gi nga xam ne moom la ci suñ borom def te muy leer gu rëy rëy waaw te jeexit ju ji nga xam ne moo ci ne itam yàlla na defal barke ci yàlla yàlla defal tawféex ci man koy jëfandikoo te yàlla rek a tax nag bañ cee yéene leen njariñ yi ñu wax itam bu mu bu mu tax kenn maanaam boo koy jëf da koy def te yàlla rek a tax bu ko dee nag suñu borom bu la gërëmee te nangul la dana la jox mboolem yi ñu ci diggee ak yeneen yu kawe sa njort assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu foofee jasar saara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jërul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxtilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu sallaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa hëësan lisaama xayra noorin xat xalaa foofee ca sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko seex bamba biismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi xalayhi llaahu salla wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasan nisaama xayra noorin qad halaa bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru màgg bi nga xam ne ci la ñu génne ci bisu korite bi mooy ci idul fitr bisu mbégte bu suñ boroom neexale jullit yëpp ci koor gi nga xam ne digaloon na leen ko ñu def ko ba mu yàgg mu neexale leen bis boobu ñu def ko bisu mbégte bégal ko xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu dégg leen tam meneen mbégte mu gën a yaatu mooy bis ba mu leen di fay ëllëg ci aljanna ci koor gi ñu daan woor loolu kon ñi ciy ndokkeel ñëpp di ñaan sunu boroom mu nangul ñu mbooleem suñuy jëf jéggal nu mbooleem suñuy rëcc rëcc te may nu ñu fekkeeti ko ay ati ati at ci kanam at mu gën mu ñëw rek gën ci noonu ci wàllu dund gi ak ci wàllu diine ji di nuyu baax ak ziyaar ak ndokkeel Cheikh Mouhamadul Mountakha xafisahullahu wa raahu di ñaan suñu boroom dëgëral ko kattanal ko yàggal ko ci kanam mbooloom taalibe yi mbooloom jullit mi mu yàgg leen taxaw ba yàggale ko foo xam ne dana ci dana kana jortu lépp ñu ànd ko moom na mu gën rafete di ñaanal mboolem kilifa diine ci Sénégal yëpp leen ndokkeel euh, di ñaanal jullit yëpp itam ginnaaw loolu xam nañu ne ci fànn yi ñu toll dafa am taarix bu am ak yoonu Sëriñ Tuuba ak dundam radiyallahu taala anhu ndax ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñett téeméer ñaar fukk ak benn muy 1321 ci gàddaay gi wala tolloog 1903 wala 1903 eh, ci la sëriñ bi jotoon wirdu boppam yi ñu tuddee al wirdu maxuus min allahi taala bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa loolu nekk mbir mu màgg ci moom màgg lool itam ci lislaam màgg lool ci taalibe yépp ak mboolem ñi nga xam ne dox jëm ci sunu boroom yital na leen kon bi mu jotee wérdu wi ci jële ko ci mu jóge ci boroomam yonent bi sallallahu alayhi joxal ko ko boppam ci lu dul ay nelaw ci bisub àjjuma ñaar fukk ak ñaar ci weeru koor ci at moom ma wax ba waree ba ca juróomeelu fan ba di àjjuma ba tey ci la ko njëkk génne génne jox ko taalibe yi ki ko njëkk a jox ci ñoom mooy taalibe bu ñuy wax Ahmad eh, ibnu Hasan ibnu Hamad bokk ci banu Daymaan loolu nag am bokki taalibe yoo xam ne eh, dañ koo bëgg a fàttaliku bëgg ko firndeel ci ay jataay waxtaan ngir bëgg ñu gën a bàyyiwaat xel werd wi gën koo joxaat yitte gën cee farlu moo tax ñu bëgg amal jataay bi mu dugg ci biir fàttaliku googu ngir mu nekk ab soññe nekk itam ak euh, laabirante akub fàttalante euh, ci njàlbeen ñu wax ne wérd li muy firi ci ci ci ci ci fiq ci ci charian rek ci fiq li mu ciy firi lu wér di firi wér du baatu arab la boo xam ne mu ngi jóge ci baat bi ñuy wax al wurud wurud mooy firi root ba baatu arab bi ci ci làkk arab rek li muy firi mooy root waroot am ndox loolu la baat bi firi ci arab mm, waaye nag boroom xam-xam yi jëlee ko ci baat boobu ci maanaam moomu tudd jox ko seen maanaam bopp borom xam-xam fiq ñu tuddee ko gépp jaamu yàlla goo xam ne ab jullit da koo teg boppam da koo sasoo da koo sasoo ci coobareem gépp jaamu goo xam ne jullit da koo sasoo euh, da ko sas boppam ci coobare wutal ko nu muy toll ak waxtu mu koy def te saxoo di ko def saa su nekk moo xam julli la ak naafila gu muy def la moo xam alquran ju muy jàng la moo xam ay salaatu ala nabi yu muy def la moo xam ay tudd yàlla yu muy def la moo xam ay koor gu muy def la gépp jaamu yàlla rek goo xam ne nit kee ko sax sas boppam di ko def ci coobareem te wutal ko waxtu saa yu waxtu jotee mu di ko mu ko ca def te saxal ko faawu rek loolu la ñu tuddee wird ci fiq kon loolu su day yaatu xeeti jaamu yàlla yu bari mën naa nekk wird kon su boobaa waaye ñu amaat meneen maanaam moo xam ne moo xaw a gën a xat tuuti boo xam ne ba tey euh, jullit yi maanaam boroom xam-xam danañ koy tudde wérd te mooy lépp loo xam ne euh, tudd yàlla ak tudd yàlla gu nit di def rek te di ko saxal tudd yàlla gu nit di def di ko saxal moo xam ginnaaw julli juróom la moo xam ci yeneen waxtu la loolu tam dañ koy tuddee wérd euh, kon xeeti askar yëpp ay awraat ma su ay ay awraat loolu tam meneen maanaam su boobaa kon lañu waxoon ne mooy gépp jaamu yàlla guñ wutal waxtu guñ sasoo ci coobare wutal ko waxtu di ko def saa ne mu dugaloon jaamu yàlla yu bari bu dee fii moom dañ koo jagleel genn jaamu yàlla rek te mooy gu jëm ci tudd yàlla ci salaam yi waaye mu amaat nag meneen maanaam moo xam sufiyanke yi borom tariixa yi ñoom bu ñu waxee wér daa am leen lu ca jublu loo xam ne moom dafa yore meneen maanaa moo xam ne sorewut ak maanaa yee waaye dafa am lu ko tënk suñu waxee wird ci tariqa mooy xeetu zikar zikar boo xam ne dafa am lu muy doon loo xam ne dañ koy dañ naan lii ak lii ak lii la nit ki jàng nangam yoon ci waxtu sàngam nga xam ne ca boroom tarixa ba lay bàyyi ko tarixa borom tarixa ba nga xam ne ca moom la ñëppi jokk ca kooka lay bàyyi ko kooka it jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu joxal ko ko boppam ci ndigal sunu boroom mu wëlbati ko di ko joxaat ay taalibeem nga xam ni ñi aju ci moom ñoo koy jëlee ci moom di ko jëfe moo am ay sart yu muy àndal bu ñu waxee wérd ci tariqa ci tasawuf loolu lañ ci jublu kon nag maanaam ñetteel mii ñu mujj a wax te mooy li ñu tudde werd ci biiru tarixa loolu lañ bëgg a waxtaane ndax werd yi ñuy bëgg a wax nii benn la ci biir werd yooyu am maanaam moomu yortu woowu ñuy wax sëriñ bi nag euh, ni ñu ko xamee euh, dafa nekk jëmm joo xam ne ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir radiyallahu anhu waxee xuliqa rabbaniyan yàlla da ko bind ngir boppam suñ borom da ko jagoo féete woo ko moom rekk moo ko yonentam bëgg yàlla yàgg fees ci xolam mu indaale ko ci àdduna di doxit ci lépp lu koy jegeel boroomam lu mu xam ne bu ko defee rek loola dana koy gën a jegeel boroomam gën koo booleeg boroomam muy def itam ca loola te loolu di lum teel a tàmbali ba mu ñëwee ci àdduna rek la ko tàmbali di dox ca noona ba àgg ci ati ràññee ati ràññee eh, te mooy fi nga xam bu fi ñu tolloo ñu mën koo jàngal njàngum téere man waaw ah, njàngum mu daal di def itteem ci jàng xamlu ndax jàng mooy yoon wi jëkk ci wu nit di jaar ngir xam boroomam ak dox jëm ci moom mu def itteem ci jàng itte ju kawe ak farlu gu ma sëkk ak ànd ceeg matal sart yam laaj yëpp ba ba nekk ba géeju ci xam-xami sharia yi ak xam-xami xaqiqa yi ak xam-xam ya nga xam ne yëpp euh, mënee su koo ñàkk ngir am ñaari xam-xam yooyu mooy xam-xam yi aju ci làkku arab ak lu jubbanti xelum doomu adama ba wëlbatiku daal di jublu ci liggéeyal yàlla ci diine ji ak xeet wi di jàngale te loolu nekkoon ndonoom loo xam ne ko daa fekkoon ay waajuram ak ki maamam nekkoon ca mu nekk ca ak waajuram ba waajuram bàyyee ko ndono loolu mu di ko wéyal waaye lépp it teewul itteem ju jëkk moo yàgg ci boroomam ak xam ko ak jege ko ak dëkkaaleek moom ba tax na euh, itteem yëpp mi ngi ko jëme ci soobu yoonu yàlla ci ni ko sufiyanke yi daan defe bi nga xamee ne nag waajuram jóge na fi ci atum junni ak ñetti ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci weeru muharram muy weeru tamxarit wéy na ca liggéey boobee mu doon def ci wetu waajuram muy di jàngale ba ca at ma ca topp muy atum junni ak ñetti téeméer Eh, ci weeru koor ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñetti téeméer mu am ginnaaw mu amee ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ak moom jaxran ne ko bul yem ci njàngalem kese waaye na nga ci boole di tarbiya ñi nga àndal ci yitte ju kawe ma bul yem ci di leen jàngal waaye jàppal ci seen loxo di leen gax ak a tàggat ak dim ak a dimbale ci li li nga leen war a xamal ñu di ko jëfe di ko di ko jikkawoo wan ko yoon wa nga xam ca la war a jaar ci yar boobu ci tarbiya boobu ci dat bii ma wax mu ñaar fukk ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñetti téeméer ca la dajale woon waa daara ja xamal leen ni koo xam ne jàng rek moo la fi indi man nga seeti fu ñu koy defee koo xam ne nag jubluwaay bu bi bëgg bu yees bi ne fi man yéene ji yees yéene ji ma amee te bëgg cee dox te am ci ndigal ku ci bëgg ànd ak man nag mën ngaa toog ba ko defee daara ji yëngu yëngu bu rëy rëy am ñu daal di dem ca saasa ñu gën a bari dañoo daal di dem ca saasa am ñu new ñu daal dogg ci ñoom dañu toog ci dañoo ne ci diggante bi di dangi dangi ñee bëgg a dem yób ñee dem bëgg leen yóbbu ñi toog bëgg leen téye ba mu amul diir nag euh, ak dal door a am ñay dem dem ña fay des des fa ña fay des nag bañ fa desee rek ba ak dal am ñëw ci moom ne ko nag yoon wi nga bëgg a jaar wi ngay bëgg a sóobu ku ci bëgg a ànd ak yow nu muy def mu xamal leen ne ku ci bëgg a ànd ak ñoom moom da ngay jaayante ak moom da ngay jaayante ne da ko bàyyee sa bopp bàyyee gu mat sëkk lu la digal danga ko def lum la tere danga ko bàyyi loolu jaayante googu la ñuy tuddee jébbulu nee na kon daal di jébbulu jaayante moom ci ne bàyyi nañ ko seen bopp bàyyi ko mu sëkk fu mu leen awalee danañ fa aw lu leen digal ñu def ko lu leen tere ñu bàyyi ko mu ànd na ñoom di dox tàmbali dox ñoom mën naa am nag jëmmi tàmbali jëf ji moom mi ngi am ci mi ngi gën a tàmbali ci atum junne ñetti téeméer ak benn 1301 Euh, kon ci la tàmbali di tarbiya nit ñi ci yoonu gaa yu baax yi njëkk ya tarbiya boo xam ne dafa tege ci ay ay ponk yu sukkandiku ci njàngalem tasawuf mu yàgg mi fi nekkoon te mooy dogu jëm ci yàlla bàyyi lépp lépp lu jëpp yitte ju jëmu ci yàlla rek jëpp yitte joo xam ne du jëm ci yàlla rek nit ki bàyyi ko bàyyi àdduna li ci biiram ak mboolem li ci àdduna yëpp def itam muy jànn mooy euh, jublu ci sunu boroom jaamu ko ak wéetal ko ak tàggat tàggat sa bakkan ak yar ko mu ànd ak dox ci noonu di jëfandikoo euh, jumtukaay yi nga xam ne moom la gaa yu baax njëkk yi daan jëfandikoo te bokkoon na cee jumtukaay yooyee li ñuy tuddee werd werd ci ni ma ko waxee woon sànq ci tarixa loolu da benn jumtukaay jumtukaay yi nga xam ne ñu baax ñu njëkk ñi dañ ko daan jëfandikoo ci yar gi ñu yar nit ñi ba muy waaj woote bi nag defoon na tukki bu yaatu boo xam dem na fu baree bari ci biir réew mi dem Mauritanie dem fa it ci barab yu baree bari giseen ay nit yàlla ay borom yi xam-xam ay nit yi ay wàlliyu euh, ay nit ñu baax ñu bari mu giseen ñoom ci diggante boobu yeeslu na fi yeesalaat na fi yeesluwaatal na fi boppam werdu xaadir bi nga xam ne moom njëkkoon na ko jël te jële woon ko ci ay waajuram ak i ci sëñ Mor Anta ak ci sëñ sëñ mu dem Mauritanie euh, maam As Camara yeesala ko ko yeesalaatal ko joxaat ko ko ba noppi jox ko ci lijaasa ne ko mën nga koo jëfandikoo mën koo joxe seexal ko itam jox ko màndaga yi ñuy seexale ci weeru xaadar waaye doy loowul loola mu jàll dem Mauritanie gis rek Cheikh Sidiya Baba mi doomi si Sidi eh, Sidi Mouhamad mi doomi Cheikh Sidiya mu mag eh, nga xam ne ci ñoom ñoom seen silsila ci xaadiriya mi ngi jóge ci si Cheikh Sidi Moussa Kunti yi radiallahu taala anhu te ci Cheikh Sidi Mouhamad moomu moom ci la ñaari waajuram yi maanaam nijaayam ak waajuram baayam ñoom ci ñoom ci Cheikh Sidi Mouhamad moomu lañ jële lijaasay jëfandikoo lijaasay wirdu xaadir moom waaye moom ba mu ne murid fekkul Cheikh Sidi moom it Cheikh Sidi Mouhamad moom di dund moom moo waaye mi ngi moom mu waaye mu fekk fa doomam Cheikh Sidi Cheikh Sidiya Baba mu yeesalaatal ko wirdu Qaadir mu jël fa it yeesal ko ci ndigal jox ko ci itam lijaasa ci joxewaat gi mu jaar ci dem ci ku ñëw Cheikh Baba Wuld Hamdi bokkoon ci tarixa Saasiliya mu jox ko wérdu jox ko ci ndigal jox ko ci lijaasa mu def noonu nu mel tam ci wérdu Tijaan moom gëstukat yi amaguñu lu leer nañ ci kan la jële wérdu Tijaan woowu waa jël na ko am na ci ndigal am ci lijaasa ba mu dikkee nag mu boole ñetti wird yëpp di ko jëfandikoo di ko joxe ne ci loolu boole ko di tarbiya taalibe yi ci yoon wi nga xam ne ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon ndigal ci mu tarbiya ci taalibe yi dem nag ba jëmmi jamono mu gis ne li mu mar wi mu mar ci boroomam Euh, ak li mu bëgg ci doxam jëm ci yàlla ko ci wérdi yi mu jële ci ñi mu ko jële mënu ko caa yóbbu mu daal di bàyyi wérdi yam jàppoon yëpp bàyyi it sëriñ sëriñ sam defoon ci seen diggante boroom ñëpp ñoom defoon wasila ci diggante moom moom ñëpp ku ci dul yonte bi sax ñi ci sim bàyyi leen bàyyi lépp bàyyi wérdi yëpp boroom digal ko ne na yam ci alquran ak sunna def yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk wasilaam def alquran mu nekk wérdam ba noppi di aw yoonam alquran ak sunna nekk aw yoonam mu muy muy dox mu muy teg mu muy leerloo bi ab làmpam mu muy gisee yoon wu muy jaar mook ay ñoñam ci la jaayante yonent bi sallallahu alayhi ci atum junni ak ñettee fukk benn mooy 1311 ci gàddaay gi ginnaaw bu bu mu bàyyi wér yëpp ak tarix yëpp ak sëriñ mu muy dem nag mu doyloo kon alquranul karim ak sunna sinante bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng alquran di ko settantal jàng xadis di ko settantal di leen jëfe waaye di sax ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay taalif ak di julli ci moom nga xam abdu xam kon ci ginnaaw bi mu jaayante yonent bi sallallahu alayhi nekkatul ci jëf ci jëfandikoo ay wërd ak di ko joxe waaye mi ngi yam léegi ci jàng alquran ak xadis ak di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ak di julli ci moom ba ne ko fi yàlla jëlee ci atum junne ñetteel fukk ak ñett ama jay sosin mu dem ci géej gi ba mu fa demee ba am fab diir ci lu ñu toxale ci eh, mag ñi Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana mu jële ko ci mbind mu jële ci Cheikh Mouhamad Fadil Mbacke mu war a jóge ci sëriñ bi ñu wax ne ba mu demee ci géej gi ci la sunu borom yabal Seydina Jibril mu jëlaat ci moom wird yi nga xam ne jëloon na ko te mu joon ko bàyyi mu ne ko moom mu jël wird ca moom rekki ko ci moom yoratul wenn wird nekkatul ci ci ci kóllëreem ba mu amub diir euh, ci biir géej gi ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikkal boppam joxaat ko joxaat ko ñetti wird yi nga xam ne bu ci nekk jëloon na ko daa ko jëfandikoo mu yóddu xaadir ak wér wirdu Chazali ak wirdu Tijaan bu ci nekk yonent bi joxal ko ko boppam joxu boppam jox gu mel ni gam ko joxoon seeni boroom seen boroom yañ ko xamee jox gam ne ko joxoon mu joxaatal ko boppam jox gu mel noona mu am ci sañ-sañ ak ndigal euh, yu toll ni ca seeni boroom am euh, seeni boroom it ñoom bëgg ca loola dikkal seen bopp ku ci nekk joxal ko ko boppam joxuk boppam def ko jëw jëwriñ ci aw yoonam Euh, mu ne ca nag waaye taxagul mu amoon wirdu boppam woo xam ne moom moo ko jagoo te wu kenn mësta yor wu kenn mësta moom wu mësta jox kenn ku ko jiitu ba ni mu ñibbisee nag euh, ci atum junni ak ñetti ñaar fukk mille ci gàddaay gi tolloog mille cent deux bañ ko fi jëlee mu dem Mauritanie Euh, ca at mañ ko yóbboo rek mooy atum junne ñetti ñaar fukk ak benn ci gàddaay gi mooy mille trois cent vingt et un tolloog mille neuf cent trois ba ñëwee ba ci weeru koor bi ba fa njëkk a fekkee fekk mu ne ci gàdd gu ñuy wax Sarsara ci Mauritanie ci weeru koor ci guddik àjjuma ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la ko yonente bi sallallahu alayhi dikkal jaxaran ci lu dul ay nelaw daal di koy jox wërd bu bàyyi ko ci sunu boroom mu jox ko ko jox ko ci ndigal ci jëfandikoo ko ak jox ko ay taalibeem mooy moom la ñuy wax al wirdul maxuuzu min allaahi taala bi waasitati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy wirdu bu jóge wirdu mu jële ci yàlla mu jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul ay nelaw yaqazatan laa mën a man waaw kon loolu nag mooy kon loolu mooy tam moo ci la amee kon wirdu boppam woo xam ne moo ko jagoo woo xam ne la ko jiitu kenn mësu ko moom ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi ko ko joxal boppam te moom wirdu yëpp ci moom lay jógee loolu nag nekk xew-xew bu mag a mag ci ab doxam ci yàlla diggante ma boroomam ak diggante ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam di doon loo xam lu mu yàgg bëgg la yàgg ko ñaan boroomam ba boroomam digoon ko ne ko dana ko ko jox ba mu doon ko séentu yàlla dogal nag dig boobu ñu jox ñu matal ko ci taarix bii ma tudd léegi ñu jox ko ko woon ci guddi àjjuma ñaar fukk ak fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci at junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn 1321 ci gàddaay gi war a tolloog mille neuf ci juddug yonent yàlla Isa alayhi bañ demee nag ba ca ba ca ga juróomi fan ca koor ga di bisu àjjuma ba tey ci la ko génne jox ko taalibe bi mu ko njëkk a jox muy euh, Cheikh Ahmad ibnu Hassan ibnu Hamad mu nekk nag loo xam ne Euh, dafa am ay ay ay ay ay tëggiin dafa am dafa am ay tëggiin ñetti tëggiin maanaam ñetti ñetti jàngiin yu wuute yoo xam bu ci ne am na nu koy tuddee yu ñu ko ci njëkk njëkk a jox jàngiin yu ñu ko njëkk a jox mooy yu ñu tuddee alxafiif wér yu ñu tuddee xafiif maaxoos wér du maaxoos yu ñu tuddee xafiif ñetti wér yëpp maaxoos la tudd al maaxoosu minallaahi bi waa seet noonu la tudd waaye wu na dafa am ñetti jàngiin ñetti tëggiin yoo xam ne tëggiin wu ne am na turuñ ko jox tëggiin wu ci nekk sax am nay am nay am nay xeeti jàngiin yoo xam ne dana am tuuti ay wute waaye yëpp a yëpp yëpp bokk yëpp a yem euh, tëggiin wu njëkk wi nag la ñuy tuddee moom lañ ko jox ci ñaar ci guddi àjjuma ci ñaar fukki fan ak juróom ba ca gàmmoo ga ca topp ci guddi gàmmoo ga topp ci at moomu ci at ma topp ci gàmmoog at ma ca topp mooy ci atum junni ak ñett téeméer ñaar fukk ak ñaar ci guddi gàmmu ga ñu joxaat ko weneen jàngeen ci wérdu wi beneen tëggiin euh, woo xam ne moom kaamil lañ koy waaye bañ ca tegee ab diir joxaat ko weneen tëggiin wu ñu tuddee alxaatim waaye ñetti tëggiin yépp wenn wérdu la euh, woo ci am ndigal mën nga ko jëfandikoo kon loolu mooy taarixu mm, jotub werd wi loolu tam mooy ay ay tëgginam ak i jànginam mu doon loo ma ba mu amee sëriñ bi da ko dafa daal di jox ndigal taalibe yépp góor ak jigéen ne nañ koy jëfandikoo te am ci passeef te fonk ko te sax ci di ko jëfandikoo seen giirug dund jëfandikoo gi nag am ay charte yu mu war a àndal charte ba ci jëkk mooy da nga koy da da koy jël da ci am ndigal xam nga am na ndigal ñu al isnul am mooy ndigal lu ñëpp bokk sëriñ bi nga xam ne moom moom wérdu bi nga xam moom ko yonent bi saa suñ jox nga xam kenn ñu koy jëfandikoo te ndigalu la ko jox na ci ndigal ñëpp mooy al isnul am jox na ci ndigal ñëpp loolu mooy al isnul am waaye nag yow bala nga ko sañ jëfandikoo danga nga ci am isnun xaas mooy sa ndigalul bopp loo xam ne yow dangay dem ci ku la ko war a jox mu joxal la ko bopp nga am ci sa ndigalul bopp sa ndigalul bopp lu bàyyi ko ci ku la ko war a jox kon sart bi njëkk mooy da koy da ci nga am ndigal ci jëfandikoo gi kala ciy jox ndigal dafa war am dafa war doon koo xam ne moom ci boppam am na ndigal ci jëfandikoo ga am ndigal ci joxewaat ga ki la ko jox daa war a am ndigal ci jëfandikoo gi am ndigalu jëfandikoo ko am ndigalu joxewaat ko ndigalu jëkk li moom la ñuy wax iznu mooy ndigalu jëfandikoo ndigalu joxaat la ñu tuddee ijaasa kon koo xam ne ci am isnu ci jëfandikoo ko am ijaasa ci joxe gi ku noonu moo la ko moo la ci war a jox ndigal kooka yi da koy jële ci ku mel noonu kooka jóge ci jële ko ci ku noona muy jokkaloo ba yegg si ci sëriñ bu mag bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi njëkk jox ndigal jox ko ndigalu jëfandikoo ko ndigalul joxewaat ko kon eh, nga war am ndigal loo xam ne day jokkaloo ci ku mel nii mu jox la ndigal ci nga jëfandikoo ko loolu mooy sart bu jëkk bi bu ko defee nag bu la ci joxee ndigal bokk na ci sart yi mooy nga di ko jëfandikoo ci waxtu yi ñu ko war a jëfandikoo dañ koy jëfandikoo suba ak ngoon bu dee ngoon maanaam bu dee ngoon gi waxtu mi ngi tàmbalee ci maanaam euh, wird yi daf ni ni waxtu julli yi mel nga xam waxtu julli wu ne daa fa am waxtu wuñ gën a taamu ku ca julli ñu ko tuddee muxtaar ak waxtu woo xam ku am ngànt man ngi caa julli te doo am bàkkaar ñu koy wax daroor yi bu ñaari waxtu yi jàllee nga war a fay wird bi itam noonu la mel dafa am ñaari waxtu wu ñu tànn ak waxtu woo xam ku am ngànt mën nga ko caa jëfandikoo bu jàllee it da koy war a fay bu dee ci ngoon gi ginnaaw tàkkusaan ba ba ñuy julli gee diggante boobu mooy waxtu wi ñu ci taamu mooy muxtaar waxtu muxtaar wi ci jëfandiku gi boo koo xam ne am na ngant ci diggante boobu defu ko li ko tàmbali ci ginnaaw gee ba ci ba njël mën na ko cee jëfandikoo bu njël xasee jot nag kon te te defu te euh, kon su boobaa na jàpp na yoddu ngoon woowu faat na ko da ko war a fay bu dee waxtu suba wi mu ngi tàmbali ci waxtu njël googu ba euh, jant bi fenk ba jant fenk diggante boobu yëpp waxtu muxtaar la ci suba gi waxtu woo ko ci jëf defee def nga ko ci waxtu tànn koo xam ne am na ngànt ba diggante boobu defu ko ci bu jant bi fenkee ba ba digg bëccëg di jot zawal maanaam lu jiitu noddu tisbaar fanweeri ci fanweeri minute diggante boobu mooy waxtu daaroor yi ci wérdu suba bi koo ci xam ne nag waxtu woowu raw na ko ñaari waxtu yëpp ci suba gi raw na ko kon da ko war a fay kon ni nga xamee ne julli yi juróom ku ci am bor danga nga ko war a fay wird it boo ko deful ca waxtu ya nga ko bu jàllee da ko war a fay ndax day yore arteb nisar nisar mooy yàlla goo teg sa bopp goo xam ne yaa ko waral ci sa bopp ne danga nga koo da koo warlul yàlla loolu day daal nekk waajib day nekk arteb lu war ci yow loo xam ne yàlla waralu ko waralu ko woon tegula ko woon muy lu war waaye yow yaa ko teg sa bopp muy lu war yàlla fekk la ca kon loola day daal di war nga sàmmanteeg moom moo tax bu la faatee da nga ko war a danga ko war a fay kon sartu ñaar bi mooy jëfandikoo ko ci waxtu waxtu ñaari sax ci di ko jëfandikoo ci ñaari waxtu yi ñu wax loolu bokk na ci sart yi tax mu wér bokk na ci sart yi wax tax mu wér itam kii jëfandikoo wird bi dafa war a tuub tuub gu sell boolem bàkkaar yu mag yëpp bu fekkee daana ko def da ko war a bàyyi te sax ca bàyyi ga kon tuub tuub bu sel te sàmmanteeg sàrti tuub da koy war loolu sart la ci bokk na ci yi itam dafa war a jàng diineem daa war a xam ay faratam li war ab jullit mu kàllaf mu nekk loo ko war ci diggante ma boroomam muy lu mënta ñàkk loo xam ak defam mënta ñàkk tàmbale ko ci wetal yàlla ak attey ponk lislaam yi ak attey jëflante yi yëpp mu xam ko ak lu ci ne mu xam la ci aj ci atte yi mënta ñàkk loolu da ko war a jàng ba xam ko kon daa war a jàng ay faratam daa war a xam ay farataam loolu ci sart yi la bokk dafa war a taqoo nit ñu baax ñi di jaxasoo ñoom te moytu jaxasoo nit ñu ñi ñu sàggan ñi dafa war a wéeru ci yàlla lu ci moom ci mboolem ay mbiram loolu tam ci sart yi la bokk takkoog it takkoog julli mbooloo julli mbooloo mooy di bañ di julli moom kenn mbooloo mi ngi tàmbale ci ñaari nit jëm kaw kon su dee julli julli goo xam ne du ko julli moom kenn rek ma ngay def julli mbooloo waaye la gën nag julli mbooloo googee mu koy defee ci jàkka moo gën kon yii moom mooy sart yi nga xam ne sart yuy tax jëfandikoo wérdi wi wér la am na yeneen sart yoo xam ne day tax mu gën a mat day tax jëfandikoo gi gën a mat day matal mbir mi waaye du ko yàq waaw kon bokk na sart yi tax mu wérit ba tey bokk na ci mooy boo xasee bay tàmbalee wérdi nga bàyyi lépp lu dul wérdi wi jublu ci wérdi rek doo lekk doo naan doo waxtaan ba ba muy àgg loolu tam ci la bokk fekkee yaa ngi wérdi ba noppi di waxtaan maa ngi yor di lekk maa ngi yor di naan su boobaa yor moom baaxut yàqu na dog kon bàyyi loolu lépp ci itam ci sart yi la bokk sart yi tax mu wér ci la bokk sart yi mu mat nag bokk na ci nga sàmmanteeg teg teg ni wird mooy boo koy tàmbali nga na fekk nga yor ak laab na nga laab ci sa jëmm laabuk toj laabit laabuk sobe eh, sol yére yu yiw toog ci benn barab jublu xibla teewlu def sa xel ci ne yaa ngi eh, fas yéene yokkoo yokk yokku ci sa diggante sa borom ci sa wasila yi nga xam ne ci moom la yor di bàyyi ko nga def sa xel ci ne yaa ngi jëlee ci moom yaa ngi bëgg a eh, jëlee ci moom li ñuy tuddee madat te mooy baatin baatin ak mbóot yu jóge ci moom di jëm ñëw ci yow di la yokk pësteef di la yokk kattan di la gën a jegeel sa borom ngay def sa xel ci ne loolu yaa ngi yaa koy jëlee yaa ngi root ci moom yaa ngi roote ci sa yaa ngi root si ci sa wasila yaa ngi jël si ci moom euh, la la yokk ci sa boroom nga teewlu loolu ci sa ci tàmbali def sa xel ci sa ci sa sëriñ def sa xel ci ne yaa ngi fas yéene yokk yokkoo ci moom baatin bu lay jegeel sa boroom Euh, bu ko defee euh, nga jàng ko ba mu jeex ci waxtu ya nga xam ci lañ ko war a jànge kon teggi nii kuy tudd yàlla nga sàmmanteeg moom ci waxtu ngay wérde loolu moom bokk na yi nga xam ne day tax mu mat li ma leeral fii nag mooy yu bari dañuy jàpp ne wérdu yi dafa bari ay sartam yi dafa xaw a diis ba koo xam ne boo ko jëlee doo ko mën a matal ci saasi rek da waroo koo jël loolu njuumte la euh, li ci am solo mooy ki koy jël sart yu jëkk yee jëkk jëkk te mooy mu am ci ndigal ci ku ko ci ku ko war a joxe koo xam ne am na ci ndigal te am ndigal joxe waaw rek mu jëlee ko ci ku mel noonu te am pas-pasu fas ko yéene saxal te fas yéene matal sart yi loolu rek bu ko xasee def mën naa tàmbali di wér di donte sart yi mënta daal di mat ci saa si bu saxee ci wér bi bu yàggee sart yi dana yàlla mën na ko dimbali muy ñëw ndànk-ndànk ba ba muy mat baale ci mat kon jàpp ne mënoo koo matal bu mu la ko jël eh, na ko jël rek am pas-pas su sax ci am pas-pas su itam koo matal kem kàttan la nga ca mën nga di ko def la nga ca mën nga di ko yéene ba bala ko yàlla yi man loo eh, kon loolu mooy aju ci sart eh, yi ci li nga xam ne moo ci teew bokk na itam yi nga xam ne ci la bokk mooy ki koy jël day takkoo jàng ku kuy wërd maaxoos war ngay jàng alquran bis bu set sa kàttan jàng ci sa jàng moo xam ne du doon ci julli nga xam la nga mën ci alquran tiim alquran ji di ko jàng maa nga di ko tare la nga ca man bis nga di ko def boole koo gis di julli guddi julli guddi goo xam ne bu dee ko boo dee ko mokkal alxuraan dañ lay digal lu mu néew néew na nga julli euh, fukki rakka yoo xam ne rakka bu ne da nga ca jàng rubon rubon alxuraan rubon alxisb rubon rubon isib xam ne kon julli gi fukki rakka yi da nga ci julli da nga ci jàng ñaari isib ak nisib ñaari isib ak genn wàll euh, tëjee ko safaari te muy fukki rakka ak ñett Euh, bu dee ku mokkal dañ koy sas loolu mooy la ci gën a néew bu mënee def lu ëpp loolu baax na bu dee koo xam mokkalul nag na julli fukki raakaat fukki raakaat yooyu tëjee sa safaak yu tarik jàng ca lam mën a jàng ci alxuraan lu mën a doon loolu ci sart yi la bokk dama ko teewlu toon ci yi ma ci tolloo waaye ci sart yi ñi sart ci ki jëfandikoo de ci loolu ci la bokk waaw kon loolu mooy li aju woon ci sart yi lu bari ngëneel la lu màgg la ndax wird la woo xam ne bokk si nga ne wird bi sëriñ bi wax na ne euh, képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo da ngay am jàmm amu yiw da ngay am jàmm ak amu yiw da yokk te it da ngay nekk mu'min muslim muhsin maanaam sa ngëm day yokku waxtu wu nekk sa ngëm day yokku da yokk ci wàllu sa ngëm waxtu wu nekk sa góorgóorlu ci jëf ju baax day yokku waxtu wu nekk itam sa sellal sa diggante ak sa boroom ak sa wéetal yàlla ak sa jege sa boroom day yokku ba ba ngay àgg ci mat ci ñett yooyu yëpp kon day wom mat kon nit ki di ko àggale ci yàlla euh, muy dox saa su ne na waxe woon ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxida sawa intamaali ilal jilaani aw intamaali ahmad tijaani aw li siwaahum min al aqtaabi is kullum xatan ala sawabi kon loolu wér na ci wérdi bii ne ku koy jëfandikoo da ngay yokk ci ngam ak jëf ju baax ak sellal ak wéetal yàlla ba ngay àgg ci sa borom kon wérd la wuy àggale ci sunu borom loolu doy na ko nga neel wérd la boo xam ne ku koy def sunu borom da koy aar ba seytaane du ko jege bu ko saxoo di ko di ko sellal seytaane du ko jege suñu borom da ko dàqal seytaane bokk ci ay ngëneelam suñu borom day jàpp dal wërsëgam di ko may ak yokkute ci wàllu mm, wërsëg euh, loolu bokk na ci ay ngëneelam bokk na ci ay ngëneelam wérd la woo xam ne dafa ëmb secret yi ñetti wérdi yi sëriñ bi mas a jëfandikoo muy wérdu secret bi nekkoon ci wérdu xaadir mbóot ma mi ngi ci biir wirdu Maxuus mbóot ma nekkoon ci wirdu Chazali mi ngi ci biir wirdu Maxuus mbóot ma nekkoon ci wirdu Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi ci wirdu Maxuus ba noppi nag am meneen mbootum boppam mu ci ne mu nekkul ci ñetti wird yee nga xam ne boo ko dee jàng boo ko dee wird mel nga ni yaa ngi wird ñetti wird njëkk yee boole ceeg weneen wu ca yokku loolu Cheikh Maodo si di wax naan fa jamaal kulla wa zaada wartaqa bi muhkami tanzili ni'ma murtaqa fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii laa taxaafu kapta nee na wirdu maaxoos ëmb na lépp lu nekkoon ci wirdee ko jiitu ci ay mbóot ak i secret euh, ba nag am lu ca dolli euh, loo xam ne ci mbootum alxuraan mu ca yokku mbootum alxuraan def nañ ko ci mu yokk ci euh, mu ne kon boo ko jé boo ko dee jëfandikoo mel nga ni yaa ngi jëfandikoo wird ya ko jiitoon yépp ba tax na tëkku yi ñuy def ku jël wird ba yàgg nga ba ko tëkku yooye yow bu fekkee ne wird dama nga yoroon bàyyi du ma xas nga jël tëkku du dal ci sa kaw buñ ne ne boo yoree wird tarixa sàngam boo ko bàyyee da ngay alku su fekkee ba ko bàyyee wird du nga jël doo du ma xas woowee na wird nga yoroon dañ doon la tëkku ca bàyyi ga kon loolu itam bokk na ci eh, ay ay ay ay ay ay moo tax kon lu mat a fonk la loo xam ne sëñ bi joxewoon na ci isnu na am maanaam digal na taaliba yëpp ne nañ koy jëfandikoo te am ci pësteef te sax ci seen biir dund muy góor ñi muy jigéen ñi kon képp koo xam ne dégg nga wax ji te am man-manu jël gi ak jëfandikoo gi ñu ngi soññ suñu bopp te di la soññ ci nga am ci pasteef ak yitte ndax lu am solo lool la ak wàccaay bu kawe ci kuy dox jëm ci yàlla waaye rawatina koo xam ne taalibe sëriñ Tuubaa nga di jàpp ci moom bokk na ci jumtukaay yi sëriñ bi daan jëf yi jumtukaay jum bokk na ci buumi buumi sëriñ bi buuma mi ni ñoddee taalibe dañ jëme ci yàlla wér yi bokk na ci buum yu dëgër yooyee mu ñoddee ku ca jàpp ba ba ak ja kon buum la ci buum yi yoo xam ku ci jàpp jàpp bu dëgër sëriñ bi daan la ci ñoddi ci baaxu suñu borom a kattanam ba nga yegg ci sa boroom te xam nañ ne euh, ci jamono ji mu toll nii euh, na mag ña daan doxe ci not seen bakkan ak wéet ak euh, soobu soobu ga nga xam ne moom moom la mag ña daan def àndandoo sëriñ bi xam nañ ne yombatul ci jamono ji ñu bari amatuñu passeef boobu ku ko amoon it ci bari jamono tolluwaayu jamono say say mbir du la ci dimbale te lii moom mënees na koo jël mu nekk lu lay womat jëme ci yàlla di la jàppale bu baax a baax kon ñu ngi ci soññ suñu bopp ñu ci soññi bokki taalibe yépp Euh, ci xew-xew bi nga xam ne moo tollook jamono yi nga xamee ni ci la ko sëñ bi njëkk a jotee te jëkk cee joxe euh, jëkk cee joxe ndigal bu ko nag wérdi bi jëfandikoo wérdi bi amul benn danger amul benn danger kenn kopp ko xam yaa ngi koy jëfandikoo amul lenn lu la ci fekk ci fitna mbaa ay lor yu ci juddoo dara luy loree nekk ci lu jariña kees kese kese moo ci nekk mu mel ni alxuraan mel nga xam boo ko dee jàng loo ci jàng lu mu bari bari doo dégg na nit ki jàng na alxuraan ba yàgg mu tëlbati mbaa dof na wala dara déedéet wérdi yi itam amul benn wérdu boo xam ne da nga ko da nga ko wii wérdu wii kenn du ko du ko jëfandikoo di ko jàng ba dégg ñu naan wérdu yi daf tax na ko dof wala tax na ko kon amul benn diisaay wala diisaay fitna ak lor ju ci na ju tax nit di ko ragal loolu amu ci euh, seytaan nag mooy def bépp buntu bu mu gis ne buntum njariñ la bu ca nit ñi jubloo mu dox mu bëgg leen a gàllankoor am leen am yum leen cay wan yu ca nekkut ngir bëgg leen a tayalloo bokk na ci leen wan ne diis na mbaa ku koy jëfandikoo am na at yoo ci àggul da loru mbaa sart yi mënoo ko jë mënoo ko matal wala yu mel noonu euh, te euh, loolu ñu baree baree bari amuñu gàllankoor bu mel noonu waaw xëy na am mën naa am ñooñ am nañ gàntul jëfandikoo ko xëy na mën naa am xañ na waaye nag ñu baree baree baree bare daal ci taalibe yi moom mën nañ ko jëfandikoo képp koo xam ne yaa ngi mën a jàng xasida di mën a jàng alquran mën ngaa jàng wet bi moom koo xam ne nag àgg nga ci foo xam ne yow jàng alquran mënoo ko am nañu yoo xam ne mënuñoo jàng alquran mënuñoo jàng xasida tudd yàlla xëy na la ñuy ci yeneen anam waaye koo xam ne moom jàng tiim dara jàng ko mën nga ko mën ngaa tiim ay xasida jàng ba mën ngaa tiim alquran jàng war ngaa mën a jëfandikoo wirdu wi te am pasteef ci jéem a matal sart ci kem kàttan def ca la nga man la nga mën nga yéene ko te xam ne ñàkk gaa def ngir jàpp ne am nga ci gàllankoor lu ci bari gàllankoor bañ cay foog nekku ca waaye lu seytaane yi def ci xelum nit ki waaye nekkul nekkul lu am kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu ngi sant waa site internet bi ñuy wax alxadimiya itte ji ñu am ci jàppalanteeg bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ci jottali leen njàngalem sëriñ bi ak di ci laabirante ñoom kon ñu ngi sant baax sëriñ Mbàkke ñu ngi lay sant sëriñ Mbàkke Mbegere ñu ngi lay sant baax yow mi nga xam ne yaa jël si waxtaan wi tey saytu site bi yaa ngi ñu ko àndal ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm leen ñaanal yàlla yokk leen dëgëral leen te dajal leen mu sëriñ bi ci liggéey bi te boo dajal ñu moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu foofee ca sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuuba wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hin dallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxtirul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu sallaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasan nisaama xayra xat xalaa foofee jasar saara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko Seex Bàmba bismillaahi ngëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëpp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la sii laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu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 inni uxaatibul jamil fihi wa fi alil udul wa saxbihi bila xumuun bi salliyan wa sallimi ñoo ngi sant suñ borom bu baax di jul di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanalit suñu kilifa sëriñ Muhammadul Muntaqa xafisahu ba waraa suñ borom yàggal ko fi ak mboolem jëwrinam yëpp di ko jaaree ci jëwrinam ji nekk ci kër sëriñ Xamsatu ak suñu jëwrin ji di sëriñ Alxaaji Mbàkki Jaxate moom itam xafisahu ba waraa di sant bu baax waa alxadimiya ak euh, juhudu juhudu bi nga xam ne ñu ngi koy def ci tasaare lislaam ndax tasaare njàngum Sëriñ Tuubaa mu authentique mi mooy tasaare dëgg-dëgg lislaam rek ci wax dëgg ràññee nañ ci bu baax a baax ñu leen ci sant leen gërëm bu baax waaw xam naa nag bu ñu ngir ñu bañ a guddal rek kon dugg dugg direct ci wax ji ñu ko waxee bu dee werd moom werd werd werd murit dañuy dellu rek ci werd en général ndax werd sot tekkiwul rek lu dul jël ab dog boo xam ne da nga koy sas sas sa bopp di ko def ci loolu bu ñu nee ba ci saxaaba yi nañ ko def Seydina Aliyu daan na daan sas boppam nangami rakka yoo xam ne da ko daan def Xasan eh, al Basri ñëpp xam nañ ko ci moom it yu ni mel yonente bi sax alayhi salaatu wasalaam wax na ci ba addis naan a min al ahmaali min al amaali ma tutiquun fa inna allaha la yamallu xata tamallu Euh, dee leen sas seen bopp ci jëf yi li nga xam ne da ko àttan daan ne yàlla moom du du yokkat maanaam du découragé fii ak découragé wu leen daan nag wa inna wa inna ahaba al wa inna ahaba al amali ila jëf ji nag jëf ji yàlla gënal fa moom mooy jëf ji nga xam ne boo koy def danga nga cay sax donte lu néew la loolu moo tax nit yi suñu borom yi niñ ko xamee ci njàngaleem Serigne Touba gis nga ko mu ci Masaalikul Jinaan ci ni muy tarbiya nit ki dañuy fexe ba muy bañ di widd toujours rek ñu fexe ngay nekk ci dara loo xam ne dana yombal sag soobu ci yoon yàlla danay yombal sag mën a gën a jege sa borom bokk na ci yooyu nag ñu daan tarbiya nit ki ci tarbiyatu ruuxee mooy bokk na ci werd ci la bokk werd nag mooy nga sas sa bopp loo xam ne ci ak jaamu yàlla euh, waxoo ne diina ji daa manqué nga ko ci yokk waaye yow ci sa bopp yaa ne dama sas naa sama bopp lii ngir di ko def ci ak jaamu yàlla sàngam ni ko saxaaba yi doon defee ak ni ko yonente bi alayhi salaatu salaam waxee eh, dog boobu ngay def nag la ñu tudde ci ay yoon yoon li ci nekk lépp eh, bil jumla manees naa waxam ne yaa ayyuha alladina amanu uskurullaha dikran kathiran wa sabihuhu bukratan wa asila suñ borom di digale nit ñi ñuy faral li tudd yàlla lu bari am na xaayna bi wax naan man ahaba shay'an akthara min dhikri nit ki bu bëggee dara day faral li bari lu koy tudd kon nag bëgg yàlla la ci ëpp solo ci la koy wane ci nit ki mooy sikrullaahi bari bi ngay faral di def werdu murit nag euh, ginnaaw bi ñu xamee histoire bi ni ko kilifa yi waxee euh, yee ca nekk ci werdu bi yëpp weesuwut at taawudaat ay ay ay mus ay muslaay ak basmala bismillahi rahmaani rahim Eh, ak ay ak ay sàbbaal ak ay haylala ak asalaatu ala nabi yooyu moom benn bu ci nekk yaakaar naa ku may mbokk yi ñu jàkkaarloo yëpp sa xel dina nekk ci aaya ak i addis yoo xam ne ña ngay soññee ci yu mel yu jëm ci yooyu kon lu xemmi lu gën a xemmi mu loolu mënee su ko xam lu dëgër la ci diine loo xam ne eh, ñi nga xam ne ñoo ko mos nag du ñàkk ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy gën a xam ñu ci bari it li ñuy faral di layale ñàkk werd mooy ndax bu ñu werd murid rek dañoo bëgg tënk mbooleem ñetti werd yépp eh, mooy sart yi nangam waaw sart yi werd murid yi xam nañ ne ci surutu sixa yi ak surutul kamaal yi ak wuute am na ci surutul kamaal yi mooy li nga xam ne day dëgëral day tax rek ñu gën a yaakaaru ne yow da nga ko surutu sixa yi nag daanaka boo ci génnee ñaar yi nga xam ne moom dafa ràññee ko ci werd yi ci des yëpp dañ koy sàkku na ci sàkku dañ koo sàkku ci jullit mooy am ci isnul xaas yow ñu koy jëfandikoo nga am ci ndigal ci koo xam ne amoon na ci ndigal ba ni mu àggee ci sëriñ bi ndigalul jëfandikoo bu fekkee da koy joxe nga amoon ci ndigalul jëfandikoo ak ndigal ak ndigalul joxe mooy nga am ci kon ndigal lu wér jëlee ko ci ku wér koo xam ne yi des nag daanaka yi ci des yëpp ma les wax ne dañ koy sàrt ci ab jullit ñu def ko kon amul lenn loo xam ne du ci kii lay doon ca it fi mu ne eh, néewaa na ci werd yi siixa boo xam ne da nga ko liggéey 30 moom xaw ko ci boobu quinze minutes am na ci wax ne 15 minutes tuuti sax juróomi minutes xam nga yooyu moom jullit bu nekk mën na ko fi mu ne ni boo boo sasee sa bopp sa waqafu alxuraan ba pare sasaat sa bopp genn xasida boo koy ñaareele ba ko ñaareele rek fi mu ne diggante bi ngay jàngee nooru daar yi mën nga fay werd ay yoon diggante bi ngay jàngee maraaxib mën nga fay werd diggante bi ngay defee ma faatifa bisir mën nga fay werd ci lii ci Sëriñ Tuubaa diggee ci werd wi su ko faneen fudul fudul fudul ci werd bi garanti yi mu ci teg daanaka mën su ko gis faneen fudul moom eh, ca gis nañ ne mag ñi nga xam ne toppoon nañ Serigne Touba gën a waaj ràññee ko ci werd yi daan ko def gis nañ ne guddoon nañ fan lool gisoon nañ ne amoon nañ barke lool mënees na ci buñ ci jëloon ki fi mujj njabootu Serigne Touba yi rek nga xam ne ñëpp xam nañ ko ak fonkom werd wi lool muy Cheikh Salih yaakaar naa ne yàlla nañu suñu borom wërsëgale ci wërsëgale suñu yëpp ñu àgg fa ay atam àggoon barke mi it tawarkal la te ñëpp xam nañ ne eh, dëgg dëgg dëddu àdduna ci moom la moom moom la dëppe woon ko sëriñ bi waxee aqiqatu zuhdi bi xaw xawli man naqat tarkuka xasduha bi xalbin li samat mooy àdduna moom da koy génnee ci sa xol loolu nag boo koy xayma ci ñooñu ci ñoom ñooñu lay nekk ci authenticité ñu ci mën a am ci wàllu silsila dinañ ko gaaral ci ba léegi da yàlla def na mbindum mag ñi dañ ko ci am ndax ñun fii ni ma la ko waxee du ñàkk dinañ ci wane dara ci mbindum sëriñ xamsatu moo xam ne loxo boppam la lettre bu mu sotteel Serigne Touba di waxi Serigne Touba yi direct yi boppam bu mu so bu mu sotteel boppam di di di natt leen di wéral ci ne werd bi Serigne bi mi ngi ko jotee ci e, ci ci ci Mauritanie ci Serigne bi ko doon tontu booba bi da ko sotti rek Serigne bi ko bind la bi mi ngi ko jotee ci Mauritanie ci bërëb bu ñu naan Sarsara ci Ramadan di dëggal li nga xam ne e, ñëpp dëppoo nañ ci manees naa jàpp ne e, tawaatur la la am muy. Eh, ne Sëriñ Tuubaa bi mu wax naan sama du xat aw saltali fii Ramadan maa rumtu min ka xablahu bi faydaan moom la ci jubluwoon man mii dégg naa ci samay waajur yoo xam ne Sëriñ Amsatu moo leen yar ñoom ñu nett li ne Sëriñ Muntaxa Jaxate mi ci la bokk yàlla na ko fi yàlla yàggal ci wéral ko eh, muy nett li ne eh, Sëriñ Amsatu benn bis doon na jàngaleel doon na sottil Sëriñ Tuubaa jukki yooyu mu ko doon sottil ca Mauritanie sëriñ bi fekk fekk ko fa. daan ne ko eh, la ma doon lama la waxoon nga ñaanal ma ci ca mu jëruloon ko ak jaaxle ndax sëriñ Tuubaa comme ñëw di la ñaanloo ca ngay ab dongaam danga am jaaxle waaye mu joxoon ko ndigal ca ñaan nga ne ko suñ borom defal nañu ko at ko war werd wi ko ko ci mbind mu gën a kala calligraphie eh, di ko wanal ne ko lu lu wees loolu it day wéral ne donte xam nañ ne ci weer wi ñu jëm si ci weer wi ñu nekk ci zawal bi mooy bisam bi nga xam ne ci la ko sëriñ bi njëkk jox naaru Mauritanie bu ràññee ko boobu waaye ci ramadaan ci la ko sëriñ bi jote njariñ yi nga xam ne nag euh, nit dana koy soxla ci wàllu muslaay lépp boo boo defee da ko xool ci ci mujjantal ga ndax ñun ñëpp xam nañ lu mu néew néew xam nañ aoudu bi kalimatillahi tammati min zari ma xalaq li ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax loo xam ne nit nit da koy da koy da koy da koy da koy da koy wax ci bismi ci basmala ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim boo demee fekk fa lubbu ba mboolem loo xam ne dañ koy wax ca loolu it am na bunt bu mag boo xam ne sëriñ bi da koo jagale loolu rek fasul fil werdi boo ci demee ci masal ku jinaan dafa mel ne dafa def diraasa ci eh, li nekk ci biir mu murit moom nga koy jàpp la ca nekk ci njariñ benn bu ci nekk yaatal na ci te gis nga benn bu nekk bu ciy tëj day mujj daal di daal di daal di tëjee rek ne li ci nekk ci ay njariñ xajul ci di ko mën a takk ci ay téere kon rawat na di ko mën a takk ci loo xam ne luy sensibilisé ay nit la eh, njariñ yëpp njariñ yi nga xam ne dafa nekk ci eh, salaatu ala nabi it Euh, gis nañ ne boo demee salaatul faatihi bi nga xam ne yàggoon na lool yonent bi yeesal ko ci ay nit yàlla yu mag ay yoon yoon ba nu agsee ci moom ba tey ma ca euh, kon daal li ñu mën a tënk ci gàttal ci njariñi werdu maaxuus moom mooy lépp loo xam ne nit ki da koy soxla ci wàllu ñaan xamal na mi ngi ci biir maaxuus moo xam lu muy ñaan la di ci muslu lay doon ñaan nga ca gën a nga fa moo xam lu muy ñaan di ko ñoddi lay doon ñaan ga ca gën a nga fa moo xam lu muy ñaan ngir def taxalli wala taxalli ndax salaatu xam ne bi yonent suñ borom moo ne li yuxrijakum min adulumaati ila nuur eh, yudalli aleykum maanaam suñ borom bu fekkee ne day ñaan xeewal ci yéen loolu ngir mu mën leen a def lii lay doon li yuxrijakum min adulumaat waaye mën leen a defal taxalli mooy ila nuur yóbbu leen ci ak leer ci salaatu xam ne bi yëpp mi ngi ci waaw loolu daal kon buñ ko doon tënk ci minutes yu néew mënees na cee jële yooyu ci sarti werd murit ñaari xaaj la muy sorotul kamal ak sorotu sexa sorotu sexa yi nag ngir bañ a sonal sa bopp ci yu bari yi ci mënta ñàkk mooy yi ci des yëpp dañ koy bëgg nañ ko ci ab jullit bu dee tahajjud yi ak yëpp bëgg nañ ko ci ab jullit mu it lañ wax kem ni nga koy mënee nekkul ne dañ la ci obligé ci loolu dara yi ci ñàkk ci werdu yi daal nga ko ci yokk ginnaaw xiraatu werdu yi moom xam nga ko ci subaak ngoon mooy fexe ba am ci ndigal bala nga koy jëfandikoo fexe bay ndigal li nga am di ko jëfandikoo mu nekk ci koo xam ne amoon na ci ndigal ci jox la ko ndax ndigal li moom lu mu néew néew mën nga koo tënk ci ñaari mbir yu ci mënta ñàkk mooy bu fekkee ne nit ku ko war a joxe la faw nga jox ko isnul istimal ak isnul i'ta ah, waaye bu ñu la joxee isnul i'ta nga bëgg a def isnul istimal yow moom mu ko joxe mën naa am ka nga ko jox mooy lu mel ne li Sëriñ Tuubaa di junju ci téereem boobu di ci jublu werdu yu mu doon jëfandikoo moom muy werdu xaadir di ci wax naan mën naa am fa ko jëlee woon ca la ko jiitu laysoo bi miin ñoom kenn defal kenn defule woon kenn defu leen woon mu xaddam da cee bari ñoo xam ne euh, tadxiixu tadxiix maanaam euh, wéral wéral gi ñu waroon a wéral saytu gi ñu waroon a saytu ne ki leen jox werdu yi am na ci ndigalul ndigalul joxe gi mën naa am dafa desoon ca loolu critique bi bi koy def ci boppam la ko tàmbalee moom werdu yi mu doon jëfandikoo avant que yonent bi di jox werd yi di ko yeesalaat muy jaare ci moom nga xam ne léegi bu ko joxeetee joxeetu ko ci silsila buy dem ba ca borom werd wa waaye da ko joxe ci silsila bi nga xam ne yonent bi da ko yeesalal werd wa moom direct xam ne bu la koy jox en tant que ku tënku ci bu njëkk ba mu koy joxee nga xam ne demoon na ba tàqee ko jaare ko ci ay nit ñoo xam ne mën na la koo jox ci turu werdu woowee nga daan jëfandikoo lu ko jiitu werdu murid nag moom day werdu woo xam ne ci li ñu xam daa boole mboolem werdu yu ko jiitu woon yépp ci lépp lu ci lépp loo gis ca werd ya rek ma nga ci maanaam moom jëfandikoo ko imdaad la ak tëbbaliku la waaye jëfandikoo ko du tekkiwut werd bàyyi werd ci ki nga xam ne daana jëfandikoo kan werd moom loolu nag ngir mu gën a leer da ngay jël jëfandikoo werd bi rek xam nusxa xay ñu fi am nusxa yi yëpp yu cosaan la yoo xam ne boo ci jël rek eh, benn dana fekke eh, sa jamono yi Sëriñ Tuubaa wala kenn ci mag ñaa ko saytu bañ bind ko mu toppaat ko doog ko fee nekk <coughs> fi jëfandikoo yëpp yooyu ci nekk ah, moo tax daal lii sëriñ Tuubaa yi eh, ñaan waxab liman axada wirdi yaa karim ñu ngi koy ñaanal képp koo xam ne mu ngi koy jëfandiku di ci soññ ndaw ñi ci ñu bàyyi xel ne bi ko sëriñ Tuubaa di jot di ko jox suñuy maam fii ñu toll ñun ci at ñoo leen raw ñoo leen ñoo leen ëppalee at jamono ji fi ñu tolloon waaw ca lépp loo xam ne nag werd bi laajoon na ko ñu ngi ko daan def manu na nit ñaa ngi koy def ba pare di nekk ay nit dara du manqué ci ñoom nit ñaa koy def ba pare di jànkonteeg seen seen ittee àdduna du leen yàqal dara nit ñaa ngi koy def ba pare di nekk ay niti mu leen di yóbbu foo xam ne di jàpp nañ ne nit ku baax dana koy bëgg waaw ah, ñi ngi sant ak gërëm ñëpp di rafetlu it tànk yu diis yi nga xam ne def ngeen ko ba agsi fii ñu bokk ci ñi fi gën a néew xam-xam ci mbir moomu ah, di ñaan suñu boroom defal leen ci tawfeex ak taysiir ci liggéey bii ngeen liggéeyal Serigne Touba ba fépp foo xam ne bëgg ngeen mu àgg fa rek mu weesu ko ci barkeb Serigne Touba yaa rabbi ijaalil muridina maa fi hisnika al asini wa sannaj maa jërë ngeen jëf foofee ca la jote mahfuus du sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëpp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi xalayhillaahu sallaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa hësan nisaama xayra noorin xat xalaa foofee jasar saara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus bi waasiti rasuuli hindallaahi mu jox ko Seex Bàmba bismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ciy laayaxtilul xulaatu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 Euh, ñu ngi waxtaan ak yéen tey ji ci lu jëm ci wirdul maaxuus min allah bi wardi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne wirdul maaxuus mooy wirdu murit ñu bari am nañ ni xalaat nañ ni sax murit li ñu faralu dégg di ko wax tax na ba ñu bare bari xamuñ ne murit am na wird waaye wird Sëriñ Tuba moo ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, tuddee ko al maxuusu min allahi bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wérdu bi jëlee ci yàlla mu jaar ci yonent bi alayhi salatu wasalaam kon wirdu woowu sëñ bi mi ngi ko fekk mu gànnaar ci weeru koor waaw ci ko yonent bi jox wérdu wi ca gànnaar wérdu woowu nag bi mu ko joxee e, benn naaru naar la ko jox moom la ko njëkk a jox waaw moom la ko njëkk a jox naar boobu mooy ki nga xam ne moo ko way wax sart ya wax niñ ko war a defee ak niñ ko war a doxalee lépp ehm, wax sart ya ak yëpp wérdu bi nag e, sëñ bi bi mu ko amee dafa waxoon ne xuduuhu bi quwwatin da ngeen ko téye bu dëgër da ngeen ko téye bu dëgër dëgër dëgër dëgër loolu kon wérdu yi woyofalu ko ci genn wet woyofutu ci genn wet ndax wérdu dafa foor ci doomu aadama foor ci julit waaw ndax wérdu mooy li nga xam ne mooy sellal xolub nit mooy saabu bi nga xam ne mooy defar xol ba sel bi xol bi sel yàlla def ci leer def ci barake barke def ci tawfiq loolu wirdu koy def wirdu nag baatu wirdu li bu ngeen ko déggee mooy lu nit wutal euh, ab lim wirdu day am ab lim am ay jamono yu ñu koy def ay waxtu yoo xam ne ci lañ koy def am ay charte kon wirdu day am ab lim am waxtu yu ñu koy war a def am ay charte ñett yi mooy daje ñu door ko mën a tuddee wirdu wirdu bi nag bi dafa am yooyu yooyu yor di am yëpp da ko am bu njëkk bi mooy dafa am euh, waxtu ñu ko war a def muy boo jullee fajar ba boo jullee suba ba noppi nga koy def wala boo jullee takkusaan ba noppi nga def ko da nga koy jëf suba ak ngoon la sabaaxan wa masaan da nga koy def suba di ko def ci ngoon boo jullee takkusaan euh, bu la bu la faatee bu dee ci suba gi faat na la mën nga koo def ba beeg takkusaan wala sax lu ko weesu mën nga koo fay dañ koy fay ni ñuy fayee julli la ñuy fayee wérdu naka doon takkusaan itam bu fekkee ne faat na la mën nga koo def ba fajal waaw kon eh, loolu mooy waxtu yi nga xam ne ci lañu koy def dafa am ay sart sart yi bi ci jëkk mooy Euh, sëriñ bi dafa wax ne képp koo xam ne yaa ngi jël wird bi da koy jëlee ci koo xam ni dañ ko ko jox ba noppi mu am ndigalul mën koo jox keneen dañ ko ko jox ba noppi mu am ndigalal mën koo jox keneen ndax mën nañ koo jox nit waaye du am ndigalal mën koo jox keneen kon kiñ koy jox day fekk moom itam mu am ndigalul ku am ndigal ku am ndigal mu jox ko waaye ki ñu jox wirdu bi kese rek waaye joxuñ ko ndigalal mu joxe ko amul sañ-sañu mën ko jox kon loolu moom sart la mooy sart bu njëkk beneen bi ci des mooy war na képp koo xam ne yaa ngi yor wirdu bi ngay teewe julli mbooloo julli mbooloo saa soo amul benn ngant war ngay teewe julli mbooloo nit ñu bari nag buñ ne julli mbooloo eh, dañuy foog ni julli ci jàkka ja mooy julli mbooloo déedéet nit mën na nekk ci biir këram nekk ak soxnaam ak doomam ah buy julli ne leen kaay kenn taxaw ci gannaaw wala ñaar taxaw ci gannaaw wala kenn taxaw ci wetam mu julli bu noppee am na julli mbooloo moom ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee julli mbooloo ci lislaam am na ko yool ba it mooy nam rawee julli kenn am na ko mu des li nga xam ne ñoom moom la ñuy dégg mooy juli ci jàkk ji julli ji ci jàkk ji waaw julli ci jàkk ji julli mbooloo la ba noppi da ci am yoolub jàkk ji da nga ci am yoolub mbooloo waaye da nga ci am yoolub dem gi ngay dem di dem ba ci jàkk ji da nga ci am yool boobu moo tax jàkk ja gën bu fekkee dara si dara dara dara kiiw la maanaam dara gàllankooru la amoo benn ngànt kon moom wax dëgg yàlla dem ca gaay ka moo gën kon sart la ci beneen sart bi ci des mooy jàng li nga xam ne moo war ci yow ci say farata maanaam li nga war a jàng ci sa farata nga xamee sa julli li ciy farata ak li ci sunna ak li nga xam ne mooy defar julleeg li yàq julli yëpp nga jàng ko ba xam ko loolu itam benn la ci sart yi ku ku yor wirdu wi ku war nga koo fexe ba jàng ko beneen bi ci des moo di nga wattandiku di ànd ak nit koo xam ne jubul jubul nit kuy def ak mooy yàlla nga def ko xarit di ànd ak moom suba di ànd ak moom goon loolu itam dañ koy tere moom itam ci sart yi la la bokk euh, di jàng alxuraan euh, di ko naafila maanaam bis bu ne bu fekkee ku mën alxuraan nga ku mën alxuraan mokkal nga ko maanaam ba mu mokk bis bu ne nga naafila ñaari isib ak genn wàll guddi ñaari isib ak genn wàll yi koy naafila ñaari isib ak genn wàll yi du caagen da koy jukki di ko jàng bokkut ak lam digle ci ne euh, kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilaawatan li di zikrin xat xukim loolu moom murid bu ne da nga ko war a def boo booy wirdu ak boo wirdu loolu da ko war def jàngal ko lii nag boo yoree wirdu moom fokk sart la mooy ngay ngay jàng ñaari soo gen wàll boo mënee alxuraan bu fekkee mënoo alxuraan maa tayassara loo man aw saar sax xul huwallahu ahadun sax boo ko mënoon rakk bu ne nga jàng ko ñetti yoon sax baax maa tees xul wallaahu ahad nga jàng ko ñetti yoon mu dib kaamil nga am yoolub kaamil boo ko doon def te def ko fukki rakk ñaar am nga ba loolu ba waaye du jàngee dañoo sart rek foog nga jàng ñaar yi si ba ngeen wàll déedéet loolu ña ko mën lañ ko wax waaw loolu yooyu mooy sart yi nga xam ne sëñ bi dafa bëgg képp koo xam ne yaa ngi yor wérdu yi eh, nga di ko jëfandikoo sart yooyu eh, loolu mooy li nga xam ne sëñ Tuubaa moom la digle ñu di ko euh, def ci wérdu bi wérdu bi nag euh, bañ ko ko laajee moom sëñ Tuubaa bañ ko laajee ne ko mbiru wérdu wi mbiru wérdu wi bañ ko laajee ne ko wérdu bi euh, ndax nit mën naa am li ñuy tuddee taalluq bil xidma daf na leen nit ki bu yoree wérdu wi rek am na taalluq maanaam bokk na bokk na ci werante yi nag mi ngi bëri yéen a koy dégg ci rajo wax bari wax ji xaw na bëri tuuti ñii di wax ne wirdu obligatoire la ko ko yor maanaam képp ku nekk mu da nga ko war a am boo ko amul nangam man du ma egg foofu wax dëgg yàlla ndax gisuma awma benn fu ma mën a sukkandiku wax loolu awma ko en tout sëñ bi daal fonk na ko lool digle na ko ba mu noppee def na na ngeen ko téye bu dëgër loolu la wax léegi nag ndax bu fekkoonte ne loolu la am na ñoo xam ne xëy na ñëwoon nañ ci sëñ bi sëñ bi joxu leen wérdu am na ñu dikkoon ci sëñ am na ñu dikk sëñ bi jébbalu ci sëñ bi ba dem sëñ bi joxu leen te te am na lu mu leen digal leneen loo xam ne moom leen ko digal kon nag wérdu yi mu noonu charte yi it mi ngi noonu digal nañ ko képp daal koo xam ne jël nga jël nga ko boo ko xasee ba jël na dootoo ko bàyyi boo ko xasee ba jël dootoo ko bàyyi foo ko di ko jëfandikoo waxtu de ndax dañ koy jàppee ni niseur nisër ci wàllu sharia loo xas ba nisër ne lii danaa ko def lool day nekk waajib ci yow ni julli ware ci yow dootoo ko sañ a bàyyi waaw boo koy def it jublu penku jàpp jublu penku du ca du ca sart waaye nag mooy teggi nii bokk na ci boo ko mënee mën nga ko mën nga nag boo amee ngant nga yor sa kurus di ko def di dox sa soxla te du la wàññi dara waaye daal loolu moom boo ko mënee mooy li am na beneen sart buñ ci def boo xamante ne mooy Euh, dañu lay wax ne la bu fekkee yaa ngi wér wérdu bi ki nga xam ne mooy sa wasila sa diggante ak sa borom da nga koo war di xalaat ci sa xol maanaam lii tubaab di wax imagination nga di xalaat ci sa xol loolu bokk na ci nit ñu bari na duñ ko wax waaye wérdu yëpp am loolu pour il faut nga def loolu kon loolu itam ci la bokk ci teggin la bokk kon daal loolu ci gàttal mooy li nga xam ne mooy wérdul maaxoos sëñ bi nag digle na ko bu baax sëñ mu taxaay di yeesalaat na ko bi ñu demee ci jumaa yi Ndakaaru ji di ko ubbi yeesalaat na ko moom ba képp koo xam ne rek euh, yàlla dogal na mën nga ko da ci ci góorgóorlu di ko def ndax da dafa baax wird day sellal nit day raxas xol euh, day defar nit moo tax lu am solo la loo xam ne képp koo xam ne mën nga ko rek doo fas yéene di ko def euh, mag ñi jëmoon ci sëñ bi wax am na ñoo xam ne dañoo wax ne sëñ bi bi nga ko waxee ba noppi def ne képp koo xam ne yaa ngi koy def jëfandikoo da nga am xaatimatul xusna yàlla dana la may mujj gu rafet ah te mujj gu rafet day lu am solo la ndax nit ak njëlbeenam la xam waaye fu muy mujj moom yàlla rek ko xam yàlla dong moo xam doomu aadama fu muy ba tax na kon ñaan yàlla yàlla may la muj gu rafet goo xam ne euh, sëg mujj dara lépp day sell lépp day rafet bu fekkee da ngaa ñàkkoon yàlla mën na laa may bu fekkee da ngaa amutoon dara yàlla mën na la ko may bu fekkente ne ak noo man lu mën a doon rek suñu borom sëg muj te li am solo al umuru bi xawaatimiha lépp ci mujj la lépp lépp li nit di wut mooy ci mujj mujj moo ne lépp bokk na it lim ci wax mooy ku koy jëfandikoo euh, dina nga da nga dem àjjana bila xisaabin wala azaabin sëñ bee ko wax da dugg àjjana ci doo duñ la bugal te kenn du seet sa mbir kenn du seet sa mbir bila xisaabin wala azaabin so sëñ sëñ Tuubaa wax na ko ñaareel ba it wax nañ ne day joxe wërsëg maanaam nit ki koy def nii ñaareel te saxal ko ni muy sellalee sa xol di sellalee sa jëmm noonu lay la lay joxe wërsëg da lay yomb loo loo dugg ci wut wërsëg rek ñaari daf la koy daf lay yomb bokku na ci it nee nañu ki koy jëfandikoo sart yi da koy yomb maanaam kii jëfandikoo wérdu bi li sart yi li muy nuru lu bari lépp sart yi bariwul nit ñi nag li ñuy déggee julli li ma ko waxee rek maa ngi koy bàmmuwaat dañuy dégg julli mbooloo ak julli ci jàkk ji te bo te ñoom ñaar yëpp julli mbooloo lañ dëgg la julli ci jàkk ji moo gën boo ko mënee waaye julli mbooloo moom boo amoon sa doom mu taxaw ci sa am nga julli <clears throat> kooku moom euh, man ku ne mën na ko mën naa ànd ak mën nga ànd ak mën nga ànd ak kon loolu li nga xam ne moom lañ ci bëggoon wax laaj boobu mu ci laajit lu am solo la ci ñi nga xam ne ñoo koy wér di ñu xam ko bu baax a baax ñu xam ne nag sëñ Tuubaa dafa bari ay awraat bari nay awraat dafa wird mooy rek loo xam ne da nga saxal di ko def waxtu wu nekk loolu la waaw kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah ma Tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuulihil dallaahi mu jox ko Seex Bàmba bismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak ngërëm keroog bisub xiyaama dara jërul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu sallaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasan nisaama xayra noorin xat halaa اكتب لمن أخذ ودي يا كريم متعاملا بي ثوابا لا يريم اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم yaa rabbi yaj'al al-muridiina maa fi xusnika al-xasini wash-shamli ajmaa. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlaana rasulillah wa aalihi wa saxbihi wa asna xadimihi wa man waalaa. mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di. nuyu bokki alxadimiya di leen sant bu baax di leen ndokkeel ci taxawaay am solo yi nga xam ne ñu koy taxaw ci diine ji ak ci yoon wi jamono ju nekk euh, rawatina ci weeru koor wi ñu génn ak it lu mel ne bis bi ñu dëgmal muy juróomeelu fan ci weeru shawaal nga xam ne day fàttali ab euh, dat bu am solo ci yoonu murit ndax xam nañ ne Serigne Touba Cheikhul Khadim radiallahu anhu wa ardaahu wa nafaana bi ca Mauritanie ci atum ak Chachine muy mille trois nekk ci biir atum mille xaj na wala ci cat la ci la jote woon al wirdul maxuus min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci boroomam bisub juróomeelu fan yooyu ci weeru shawal muy weeru kori ci la ko njëkk a génne joxe ko ki mu ko njëkkoon a jox mu Cheikh Ahmadou ibnu Hasan ci la ko joxoon ba moom Cheikh Ahmadou ibnu Hasan mu taarixaloon ko ci xasiida gum taalifoon ci wérdu wi gannaaw bi it mu tuddaat ko ci mbi euh, téere bi nga xam ne taalif na ko ci wérdu Maxuus muy dalilu man rama dalil kon dat la boo ama am solo boo xam ne saa yu dikkee ñi ko xam ñëpp daañ ko fàttaliku ndax jëmmal na lu rëy rëy rëy rëy rëy ci yoon wi doon loo xam ne itam li muy jëmmal lu réyla ci Sëñ Tuubaa lu rëy la lool ci Sëñ Tuubaa loo xam ne bari na fu ko junj ci ay mbindam bari na fu mu ko wax sax wax ju leer ci ay mbindam ci xéewal goog ko suñ boroom jox muy du boppam muy loo xam ne naka jekk daan nañ ko wax ne euh, xaj na ñàkk koo xam moo tax léeg-léeg ñu di ko xaw a ñu bañ ko ñu ñu jo yëgewuñ ko daal léeg-léeg niñ ko war a yëge ndax buñ xamee li muy firi loolu lu rëy la loo xam ne lu màgg a màgg màgg la loo xam ne lu ni màggee yombut yombut a dégg yombut a gis ndax sëriñ bi radiyallahu anhu daa feeñ ci njaboot gu cosaanu ci diine ak xam-xam muy askanu mbàkkeek bu soobee ak aafe gi ko meññi sun boroom dogal muy ku teel a bëgg lu baax teel koo xeeñtu mu yitteem mu def ci yitteem ci wet yépp ba ci njëlbeenam waajuram sëñ Mor Anta Sali moo ko njëkk jox al wirdul xaadiri wii nga xam ne moom lañ jële woon ci waa kër Cheikh Sidi El Kabir ñu jële ko ci waa kër Cheikh Sidi Moukhtar Kunti seenu càlla la wooye wooye ba ci Cheikh Abdou Khadir Jilaan radiyallahu anhu sëriñ bi yor wirdu woowa jëfandikoo ko at yu bari sonn ca coono bu rëy bu ne dem ci fu ne di ca wut ay secret ki mbóot ak lu ko cay dolli am ca yaakaar jam ca am dox ca diir bu yàgg ba dox ca ay jéego yu sori ba am ca ay maqama yu kawe yoo xam ne yombutoon ñu gis ku ko am ci jamonoom surtout ndax dem na ba yegg ci ca mujjam gis na Cheikh Abdou Khadir Jeylaani jaxaran mu joxal ko boppam werdu wi loolu lu rëy loo xam ne yombutu dégg waaye ànd ak loolu lépp ci bëggam lu baax ak lu baax ak di ko wut ci lu ne demoon na ba yegg ci dajale yeneen xeeti wërd sax yu bokkut ak woowu dolli ko ca muy alwërdu chadali ak alwërdu tijaan yi doon den jëfandikoo ci jenn jamono loolu sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nettal na ko ci annub al Ighnaul Adim ki ko wax sëñ beeg ko waxal boppam direct wax ne ci njëlbeenam bu masaan a toog waxtu wërd day jëfandikoo ñetti wërd yëpp doog a jóg dellu ci item. ci diggante boobu itam bi mu demee ba nga xam ne waxal na boppam wax jooju nga xam ne sëñ Basiiru nettali na ko te sëñ Tuubaa jëmam bindal ko boppam te yax ba ci sëriñ bi bind sëñ Mouhamadou Lamine daga na indi na ko ci na diim indiwaat na ko itam ci Ignaa'ul Adiim boobu may wax sëñ Basiiru itam nettali na ko ci Minaanul Baaxil Xadiim loolu muy wax sëñ Tuubaa ju wér joo xam ne moo ko bind waxal ko boppam wax na bi mu demee ba nga xam ne nag dem na ba lam ca wut amu ko ca di yokk yitteem aj yitteem ci ak ajoom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi